ak hashtag bi di QG9 wala QGTFM 2024 waaye nag li gën a neex mooy seeni sukkaru koor nga xam ne dañu koy séddale boobu ba tey ñu ngi leen di xaar dès à présent la ñuy ibbi suñu ay numéro de téléphone 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 wala 88 676 05 05 88 676 06 06 wala 88 676 07 07 lii may wax yëpp la tubaab naan la répétition elle est pédagogique waaye sañ naa ni yéen ñëpp kenn ku ci nekk am ngeen numéro téléphone yu télévision Futur Média léegi nii ku dugg par exemple ki may njëkk jël mën naa ko jox deux cent mille ki ci topp deux cent mille ki ci toppaat deux cent mille ki ci toppaat am na nu muy demee ma yokk sama loxo def ko trois cent mille en tout cas un million lañuy ñuy maye chaque soir loolu nag euh, bokk ci parti yi gën a intéressant pour yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal ma may leen quelques secondes le temps ngeen daw dugg si kan mooy njëkk a dugg tey ci suukaru koor yi ñuy séddale et puis fàtte woon naa carême baa ngi bëgg a jeex suukaru carême itam dañu koy joxe wala suukaru ngalax puisque ngalaxi ak suñu mbokk kër yi c'est dans quelques c'est na quelques jours si je ne me trompe puisque ñoom ñoo ñu njëkk a um waaye nag ren sunu umteeg sunu koor dafa tombé ak seenu koor moo tax bu dee suukaru koor yi naa ko jox jullit yi bu dee euh, suukaru ngalax yi mën naa ko joxe itam donc tey euh, open la open open open service xaw ma open space en tout cas woote leen à tout moment ñu ngi leen di xaar 88 676 07 07 88 676 05 05 kii njëkk dugg léegi nii. deux cent mille lay laal à tout de suite. waaw TFM. Sénégal TFM. xale yi ñëpp naan TFM lañ dara. baguñ dara. seetu Sénégal TFM lañ bëgg teranga koor ak pastami ak farine farima wala sax ak roli. waaye tamit ñu waajal korité ak aliment NMA mooy li ñu moom. xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu TFM. Ah, c'est dit. lay ñëpp naan TFM ameublement. nous vendons ce que nous fabriquons nous fabriquons ce que nous vendons. mën dara seetu Sénégal waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw groupe yi litare moo leen di ñaanal kooru jàmm TFM lañ bëgg waaw TFM Jolof Assure SA mooy seen këru assurance bi wet di leen gunge ci lépp. chargé gaaw application Yassir Yassir la vie en plus facile. kan bi seeni loxo jotul seen ginnaaw moo ko tax a jóg. TFM lañ bëgg a. namuñ dara baguñ seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM. bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw Thé Flécha, le meilleur ak pastami ak farine sax ak waaye tamit ñu wàjjal korité ak aliment cher. mooy li ñu moom. tamate lingeer tamate cosaan dafa neex. xale yi ñëpp naan TFM na mun xamaguñ waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM Sucria mooy bégal Sénégal gépp ci seeni ñamu suukar Rama mi leen di jagleel seen poulet teral mi ngi leen di ñaanal Ramadan Mubarak. jërëjëf seetu Sénégal TFM inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha sunu borom ne bokkaale laa dul jéggale mais bàkkaar lu mu diis diis diis diis lu mu rëy rëy rëy rëy man yàlla maa koy jéggale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeem suñu borom nee na jullit yi ci sa barke bu nu may tooñ di ma jéggalu man yàlla ma di leen jéggal wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfiruun kon nag fukki fanu njéggal yaa ngoog bokk Sénégal yàlla nañu yàlla jéggal Ah, original neexal bu te na gu original 100 pour de fruits orange mmh. mu yéen ananas nag e mbay lii cocktail bi moom hmm. mango moom da ngay di saqami original original moo leen di wéttali si seen bépp xew ouvre un nouveau bonheur à chaque gorgée. di naan di sàqam yi déet bul pàkkar ñi nag. ñun yow rek la ñuy topp. originalement naturel. vous prêt à redécouvrir la magie intense d'un produit d'exception? Une seule goutte pour prendre le contrôle de votre cuisine. Des arômes, du goût et des saveurs incomparables. Faites gronder le tonnerre qui sommeille en vous et réveillez-vous en chef cuisinier. Laissez-vous emporter par nos produits variés pour vous transporter dans l'univers culinaire réinventé de Caddy. Agrémentez vos fritures, vos marinades et vos sauces avec nos savoureux produits faits de vrais ingrédients. Idéal pour toutes vos idées culinaires. Faites-nous confiance et maîtrisez votre cuisine. gën a jege sa ay mbëbët kon boog dem ci ba jeex kaas ci kaw kaas bés bu ne tàmbalee ak cawarte jeexale ak yokkute Nescafé ci biir weeru koor gu sell gi ñëw leen gaaw xool suñu offre yu spécial yi nga xam ni moom la ñu am ca DSL Dekakila ngeen mën a profité ci suñu promotion spéciale weeru koor ñu wàññi leen 10 pour cent suñu machine à café yi wala ngeen defar seen thé yu toog ak suñu bouilloire yu rafet yii wala suñu thermos yi suñu mixeur yu mën yi wala suñu air yi ak suñu micro yu pratique yi ak suñu four électrique am na ñu tamit ay cuisinières quatre ba six feux ay cookers minute yow leen xool suñu barbecue yi nga xam ni da siy def këriñ wala à gaz machine à toaster pour defar panini wala pizza suñu réfrigérateur ak congélateur yi nga xam ni dafa mën a denc fekk leen ñu suñu showroom 77 201 07 12 wala 78 711 87 52 wala 77 750 32 05 wala 77 680 14 75. ameublement ku ko xamul dégg nga ko liggéeyam dafa ànd ak jamono xool leen yile meuble de kalité made Sénégal ñii ñooy Touba ameublement xarañ lool ci meuble am nañu ay salon en tissu velours des salons en cuir authentique ci couleur bu la neex ay salon capitonage ay huit places ak ay salon sur mesure bu leen amati benn jaaxle salon marocain yi ngeen bëggoon mi ngi nii ci dimension bu la neex téléphone 77 555 64 78 pour une maison qui vous ressemble contactez Touba ameublement au 77 430 02 02 vous voulez un style de meuble unique des produits pour sublimer votre intérieur ay chambre à coucher ci ay design yu raar fii la am ci Touba ameublement ñu ngi ci rue 3 angle Blaise Diagne Médina en face stade Iba Mar Diop téléphone 77 431 03 03 Touba ameublement nous vendons ce que nous fabriquons nous fabriquons ce que nous vendons mel bu baax daal moo noppale ma ne fii ma ne fële daal la liyaa moo ma doy sa kaas ndekki c'est dit. waa Baye Café. Eh. naka mbégte mi. waa xanaa nekk ci mbégte mu dul jeex. ah jeex na door Promix 1375 bi. léegi. xanaa lii neex na SMS. ah eh. 2,5 mais mbégte mu dul jeex Sénégal ku bëgg a rek bëgg. mbégte bi yàlla bu mu dee. mais du mos a jeex. bay café ak mbégte bay <laughs> café téeméer laa yor bëgg bokk ci mbégte mi. mais bokk nga ci mbégte mi bu yàgg te yóbboo ko. 1,5 giga internet xanaa jommi nga. bay café waay lii lépp li mu xéwal la ni. mais yow bëgg ba faaw. li kay mooy bëgg ba faaw. jaajëf waay. Eh, eh eh gosse. waaw sama ne. mais 475 la xam nga ko. waaw waay jaajëf waay. mais bëgg ba faaw. <laughs> Oh. jëmm ju nekk am na lu koy aar ci biir ak ci biti jëmm ju nekk am na luy ubbi wërsëgam saabu jant soobee jëmm ju nekk am na lu muy tàmbalee ngir xewal yu saawaan baawaan man Oukaya ndox mi bàyyeekoo fii ci gox bu naat moom laa taamu ndax xewal bu nekk am na lu koy sabab bu nekk am na lu koy yombal xol bu nekk na lu koy seddal Okaya. Besoin d'un taxi? Il est dans l'appli. Tu ne cherches pas. Tu prends ce qui est à toi. Tu ne vas pas une fête, tu es la fête. Tu n'y vas pas simplement, tu y vas avec Yango. Téléchargez l'appli aujourd'hui pour profiter de courses à partir de 600 di peinture muy xollee ko mbaa muy furi xewwi na bu baax bokk na ci lii sàmm seen bâtiment TQG indi na leen ay peinture colorado yu mucc ayib ànd ak qualité pour yanjal ak sàmm seen ko bii mooy colo sud Colossi def di peinture lavable saa yu la neexee mën nga raxas sa façade te day aar seen bâtiment mi taw mbaa miy naaj du ko tax a soppeeku te itam mën nga ko am ci couleur yu bëri bi nag mooy Colo Vinyl 900 yéen ñi soxla peinture bu weex tàll te du xaala mi ngi nii sakkan na mën a dem ci maçonnerie ci yi wala ci plâtre peinture buy jaay weex Colo Vinyl moom bu ngeen bëggee peinture bu lisse lavable mooy bi gën kolozaan bu Colorado dañ ko liggéey muy penco bu mën a dékku taw naaj ak poussière te du soppeeku moom kolozaan baax lool ci bâtiment yi jege booru géej moisissure mënul ci moom dara granito doon na peinture pour extérieur wala intérieur u bâtiment granito mën a sa façade ba mu rafet ci couleur bu ba noppi protéger sa bâtiment ak colo sud

TQG Kër Massar rond-point guy gi route de Jaxaay TQG Wakam ci wetu Brioche Dorée TQG la qualité mooy suñu doole TQG moo leen di ñaanal weeru kooru jàmm. Nous facilitons les échanges commerciaux acheminons ce dont le monde a besoin là où il en a besoin imaginez tonnes de noix de cajou produites conditionnées et distribuées du Sénégal vers le reste du monde. Parce que lorsque les échanges commerciaux sont fluides, de nouvelles opportunités se présentent. DP World, change what's possible. bonjour mes amours. moo leen di ñaanal kooru jàmm. Leila Evans Co, le spécialiste des grands événements, décoratrice de renom. Leila Evans Co, la grande diva de Nord Foire kooku mooy borom décoré mariage ba ku ñëw ci mariage ba di seetaan kooku mooy décoré ngénte ba ku ñëw ci ngénte la di seetaan diine de gala bu ko décorer ba décorer entrée ba loolu yëfam la cocktail bu la ko defalee nga ne kii moo mën décoration amul lu mu amul ci wàllu matériel bu la defalee sa conférence wala sa conférence religieuse nga xam ne Leila Evans and Co moo la liggéeyal anniversaire wala concert bu la defalee concert nag dalay defal concert bu mucc ayib ba defal la son et lumière tegal la écran indil la ay chaise VIP indil la chapiteau indil la moquette en gason indil la ay fumogène muy saxaar rentrée artiste ba indil la ay feux d'artifice réew mi yëpp Evans and Co lay ñuy wër ci wàllu décoration ci wàllu événementiel Leila Evans and Co 77 563 34 34 ou le 77 330 42 06 kenn du Leila Evans and Co. da di boroom kër entreprise chauffeur de taxi wala ouvrier wala sax ngay voyage lu bari suñu cabinet de conseil on assurance bii di ci turu Jolof Assure SA moo leen di jagleel ay produits d'assurance yu mucc ayib li ko dalee ci assurance automobile assurance moto assurance habitation assurance entreprise assurance vie wala sax assurance voyage ngir am lu gën a leer ci yii produit wala ñu gaaw ci suñu numéro

ndugubu jàmp wala loo nam jaratul ngeen di déplacé wu ak application Yassir dangay toog fi nga toog commandé lépp li la yitteel si sa supermarché ñu livré la ko ci lu gaaw rax si dolli ñu baaxee leen ay produits yu am solo lool ci njëg yu gën a neexati Yassir dina la livre ci diiru ay simili yu néew bés bu jot diggante huit heures si suba ba minuit looy xaarati téléchargeel gaaw application Yassir kooru ren ji ay xéwal rekk la ak Yassir ci diiru weeru koor gi yépp livraison bi doo leen ci fay dara Yassir la vie facile. Sénégal ñëpp bëgg ñëpp fier ndax lu rafetee ni mësta am Sénégal fii la ñuy wax kër Khalifa textile 2KT mu lay jaay en gros bépp xeetu tissu ana tissu ba nga bëgg yaa xam gros yaa xam détail waaye boo yegsee ci suñu place kër xalifa 2K textile nekk fii ci parce Parcelles Assainies janoo ak station Total bu joor ci rez-de-chaussée bi maanaam ci suuf di nga fa fekk wax basin riche fil à fil brodé voile brodé lépp loo xam ni rek da di xeetu tissu boo bëgg premier étage ca espace VIP ba di nga fa fekk ay tissu de mariage ay til ay jipir original pirxa original lafaya tissu pour homme qualité supérieure yooyu ñoo nekk ca kaw Getzner boo bëgg ca qualité supérieure am na fa deuxième étage ba nag lépp luy rideau décoration pour kër ak bureau ah dama ni kër Khalifa textile sagal nga Sénégal Sénégal yëpp nga sigil lii nga def biir Parcelles Assainies en face station Total Dior ñëpp ci fier kër Khalifa textile de kt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 ak bouquet canal plus yii dund leen koor gu sell ak chaîne yi gën bu leen dara rëcc ci chaine religieuse yu mel ni Touba TV Al Mouridiya Mourchid TV Asfiyahi Lamp Fall ak Malikia TV chaîne sénégalaise religieuse yi dañoo xew ci biir weeru koor gi rax ci dolli ñu ngi ci bouquet canal plus yi dem leen léegi gaaw abonné wala réabonné wu ji ngir dund mbégte seetaan programme yi gën a neex si télé sukkaru koor daal canal plus rek moo ma si doy ne loo ko jox Découvrez maintenant le nouveau pot de tomate linguère en format 700 grammes. Avec son couvercle refermable, son pot réutilisable et sa qualité numéro 1. kor gi ñëw na xelkom pizza dikkati na da ngeen bëgg ndogu bu riche mbaa bu mucc ayib wala sax reer yu amul fenn ñëwal fii ci xelkom pizza xelkom pizza fait les meilleurs beignets Nutella du Sénégal Sénégal laa waxte yii beignet yu moelleux yii Nutella yu fondant beignet à la crème bi nag benn la fi ay jus naturel yu neex set te sell Xelcom Pizza rek la am te yamuñu foofu de Xelcom Pizza am na service traiteur boulangerie pâtisserie am na fast food glacier am na sax dibiteri Xelcom Pizza ñu ngi ci cité douane golf woo ñu ci 77 545 54 97 wala Mariste ci 78 165 33 33 wala nga fekk ñu HLM si 78 477 24 24 Xelcom Pizza te ñu leen a jox réew mi. yaa ngi teew ndax man maa ngi bég ndax yow li boole moo bari doole ceeb bu neex bi sàmm ma su ma gëstoo gis la su ma la xoolee ceebu sàmm ma. yow laa bëgg mandarga yi ñu koy ràññee mooy bopp Cherlysé couleur sac bu rouge bu bleu bu rose bu beige am na vingt cinq kilos Sangoma am na cinquante kilos Sangoma yow mii ma jaral dugg ci waañ toog bu bés bu ne am na parfumé Sangoma ak ci biir kër gi kenn du ko jaawale bu Sangomar yow la ataaya noo def da ma soxla woon. sukar waaw maa la woolu woon mais sukar foog ma libeere la. bul wax loolu mënoo maa libéré nit ñi dañoo bëgg lu saf suukar de. dëgg la waaye nit yi dañoo commencé moytu sukar gu bëri gisoo feebar yi ni mu bëree si àdduna bi diabète tension et cetera. yow baadu sucria bi may dégg moo tax nga bëgg maa dàq. <laughs> waaw waaw xamoon naa ko. sucria dafa neex dafa naturel amul arrière goût ba pare du yéege sa suukar képp ku bëgg wàññi suukar mën nga koo jëfandikoo yow moom gaa yi ñoo ngi lay commencé daw surtout diabétique yi. ah wax nga dégg de même ñi amul diabète sax commencé nañu maa daw léegi. waaw gis naa loolu moo tax nag aw ma choix foog ma bàyyi la nga dem. mais yow par défaut dictature ñëpp ànd nañ si. waaw waxtaan naa ci ak ñëpp ñoom café ñoom jus caakiri ak ñëpp sax ndax sucria daara ak gamu produit yu sell te wóor yi ngeen ko xamee saucisson nag ak ginaar viande hachée merguez ak jambon dellu si na di leen gunge te di leen ñaanal kooru jàmm deuxième édition li ne loo def daaw mu jig la ren da koy defaat ngir dàbbali ko ngir gën laa jig defar ay ndogu ay sandwich yi nga xam dañ koy séddoo ak doomu aadama yi Sedima slogan ñoo ko bokk lañu donc ñun lépp lu nga xamante ni tey jii mi ngi ruusee si li ñuy jaay dañ koy jël ñu koy bokk ak doomu aadama yi comme c'est une première fois comme nag SODECA ku ko xam xam na ne dafay dox ci mbirum euh, action sociale RSE ñu jàppale nit yi te dañoo nekk ci weeru koor donc ku ne weeru koor dañu naan weeru yërmande la weeru partage la donc tey ñu ñëw gunge waa Sedima ci teral pour tous donc tey incha allah dañuy def 2000 distribution kit jox ko waa Kër Massar TFM lañ bëgg waaw waaw TFM ñu ngi leen di gërëm bienvenue dans quartier général ñu tàmbaliwaat beneen guddi ci télévision Futur Média première télé euh, fii ci euh, Sénégal numéro téléphone yaa ngi jàllaañoo parce que xam naa ni kenn ku ne bëgg nañu jox ko suukaru kooram sànq ci euh, biforu quartier général bi maa ngi naan ku njëkk dugg tey naa ko jox deux cent mille guddi tey bi nag ñu fas yéene dalal kenn ci candidat yi di président Amadou Ba. Euh, ñu ngi jot ay yóbbante fu ne réaction yaa ngi jógee fu ne euh, candidat yi kenn ku ci nekk ak say nit kenn ku ci ne ak euh, objectif bi nga xamante ni am nga ko pour Sénégal ki ñu nar a dalal nag tey noppaluwul benn yoon puisque tey journée bi yëpp mu ngi ci ay caravane ak campagne clôture bi nag dina ko amal fii ci waxtaan woo xam ni bëgg nañu ko séq ak moom lii neex nag ci quartier général mooy gan mën na jaar feneen waaye yéen li gan yi di wax fii ci télévision Futur Média moo leen ñor ndax fii la lépp leere leeraange geeg euh, toj yàq wi ci seen i projet seen i programme euh, lépp dañu koy def ci ndimbalu journalistes yi nga xamante ni ñoom lay àndal ak chroniqueur euh, yi may wër guddi diggu jot ci télévision Futur Média donc bu ca kanamee tuuti euh, président Amadou Ba euh, moo ñu nar a moo nar doon suñu gan ci quartier général hashtag bi QG9 la wala QGTFM 2024 ngeen mën a réagir en temps réel Mamadou Ndiaye ci kanam dina taataan seen ay questions ak seen i commentaires ñu tàmbali di leen jël ci numéro de téléphone yi yéen rek lañuy xaar ku dugg ñu jox ko suukaru kooram tey lu waxtaan wi xat xat xat xat xat mobilisation bi dañu ko def ci ñaari fànn maanaam fii ci plateau bi en direct man maa ngi jël yéen itam euh, ci ginnaaw euh, mën ngeen profité jëlaaleel ma ay téléspectateurs Pape Samba Apulaay Pape Maguette non non bu ñu leen dénkee xaalis duñ ko joxe <laughs> Pape Samba <laughs> jox joxeloo ma joxeloo ma la Apulaay joxeloo toog mu Serigne Fallou joxeloo ma la Abdourahmane Gueye nag yow surtout joxeloo ma la. que l'on soit clair laay joxeloo ma la tonton mag yaay directeur technique groupe bi yëpp yow laa njëkk a ñàkk wóolu ci xaalis bi parce que xam naa ne luñ la jox nga jox ko Khady Gueye Pape Samba luñ ko jox mu jox ko ay Aïda Ndiaye Bouba Ndour luñ ko jox mu yóbbul koo sama umpaañ yooyu yëpp duma ko def déjà make up Khadija joxeloo ma la mademoiselle Kado laa ci wóolu muy Eva elle est sainte donc elle va distribuer moom tamit ci ginnaaw mais néanmoins puisque ñu ngi doog a tàmbali mën ngeen ñu jox seeni i euh, ngeen ma passe téléspectateurs yi ku dugg rek ñu euh, jox ko enveloppe am euh, Oustaz Assane mu ngi fi di la ñu tënk. ci euh, thèmes yoo xamante ni daf leen di euh, dimbali ngeen am sensibilisation ci alxuraan ak jamono xam naa dinañ ko fekk léegi nii ci euh, plateau bële Mamadou Ndiaye qui vient donc d'arriver vient vient t'asseoir y a pas de souci ñu jël téléspectateurs yi 88 628 wala 88 676 05 05 ban téléspectateur mooy njëkk a dugg tey ñu jox ko enveloppe gaaw leen ndax damay séddale suukaru koor yi. maa ngi gis eh, yaayukat yi Magui Chanel bëgg lool président eh, Amadou Ba moom tey nee na dafay nuit blanche maa ngi seen Kati Diop yaayu maam Bousso moom sopp lool président Amadou Ba nee na ma tey dafay nuit blanche waaye ki nga xam ni nag eh, moom laa bëgg njukkal di sunu xarit Lamine Camara doon nit ku baax. maa ngi koy seen ak euh, ñoom Ibou Sow Ardoog xale yi nekk xale yi nekk port ñu am taxawaay bu am solo ci euh, président Amadou Ba donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di euh, ñu ngi leen di ndokkeel borom ABN ABN technologie ko koy Pape Mor Pape Mor Ba moom itam bëgg lool président Amadou Ba ñu ngi koy ndokkeel en tout cas candidat ku fi toog rek say soppeek sa staff. Euh, dinaa leen euh, euh, bégee parce que ñoom ñëpp fi fi mu ne parti boo duggoo wala coalition boo dem rek am naa fay soppe donc tey waa kër président Amadou Baye aye donc ci kanam tuuti ñi tàmbali waxtaan bi ak moom ci télévision Futur Média di ndokkeel bu baax équipe yu ABN technologie nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu téléphone ci wàllu accessoire yu baax ñoo ñu koy jagleel donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar mu bëgg lool nag sama jigéen bi Sarah Cissé que nous embrassons et qui viendra général très prochainement 88 628 05 05 200000 laa bëgg a joxe léegi nii kan mooy njëkk a dugg ñu teral ko na woote yi gaaw balaa waxtaan wi tàmbali ak sunu gan allo allo allo allo allo. allo. 88 628. allo. 88 628. allo 628 22 22 wala 88 628 65 65. Adamo Bos de Negri sax président Amadou Ba la bëgg moom nelawul boobu ba ah. tey mu ngi partagé di statut mu ngi ci wax nag yu rëy nag moom daa wax a wax a wax a wax a wax a wax a ba nurootul ak nit <laughs> ñu ngi koy bëggee moom tamit bu baax Adamo bëgg président président Amadou Ba c'est vrai que Amadou Ba dafa bëri ay soppe nag ndeysaan 88 628 65 65 allo. allo. kooku. Mame Diarra. maam jaara na nga def. maa ngi fi. bu sa baali sa baat bi dafa neex xanaa koor gee la jàpp. <laughs> koor gee ma jàppal Cheikh. da mel ni ku tayal tey. waa gisoo. <laughs> déedéet bul tayal koor gi léegi mu jeex incha allah. waaw dafa tullu bëri de. <laughs> wallaay da ngaa lool fi mu ne da mel ni ku koor gi jàpp lool man bëccëg bi nii laay mel mais dama cee boole naqari deret. baadu. yow baa naqari woo deret rek. non grave maa man de bëccëgu koor ku ma ne na nga def sax damay foog ñu daf maa daf maa daf maa pes. déet bul mel damay tàppaas nit ñi di leen indil ay histoire boole kook tayal goo xame ni. baadu. te loolu dégg naa ñu naan baax bokkul ci jaamu yàlla. waaw dégg naa waroo jàmbat de. eh weeru koor àndul ak jàmbat àndul ak xuloo àndul xeex. loolu dëgg la te ñun dañ koy def foog ni suñu koor baax na mais àndul ak koor xam naa Assane il faut que mu ñu ci ay leeral. maam Diarra Bousso. oui. léegi xam nga lu may def ak yow. Hmm. comme da ngaa tayal. te koor gi jàpp na la. Hmm. bàyyi ma may la deux cent mille rek. waaw kontaan naa Pape muy sa suukaru koor yaa ko moom. merci beaucoup. kontaan naa ci yow. maa la gën a kontaan maa ngi lay yónnee léegi nii deux cent mille yi d' accord. d' accord merci beaucoup. jaajëf merci d' avoir appelé ok au revoir. bu amaatee beneen téléspectateur ngeen passe ma ko et puis j'embrasse très fort ma petite euh, c' est ma petite euh, c' est mon amour Adja Ndoye xam nga Adja Ndoye Adja Ndoye euh, Adja Ndoye mannequin Adja Ndoye bu rafet Adja Ndoye bu xees. <laughs> Adja Ndoye ndeysaan doxantoog moom ci champs ci ci champs yi loolu jar na 14 milliards naa la naa la naa la dundaloo expérience boobu ànd ak Adja Ndoye sur les Champs-Élysées ah ouais a rien de tel et puis prendre un café au bord des champs là ah c'est rien de tel vers Fouquet's et autres ah non c'est rien de tel Adja Ndoye je t'embrasse très fort neex àndal neex àndal Paris laa ko tuddee ca profité leen nag ci moment bi puisque bu ca kanamee tuuti euh, président Amadou Ba bu yegsee euh, dinañu euh, xootal waxtaan bi dinañu ànd nag ak Pape Lay moom moo ñu fas yéene sikaral <coughs> moo ñuy sikaral ci kanam tuuti Pape Abdoulaye Der Babacar Fall Charles Faye Malal Talla Badara Gadiaga Gadiaga Bouba Ndour ñoom la ñu àndal tey ñoom ñoo nar a nekk chroniqueurs yi euh, ci euh, quartier euh, général bi 88 628 22 22 wala 88 628 676 03 03 ban téléspectateur wala ñan ñooy njëkk a dugg pour ñu jox leen seeni suukaru koor allo allo allo alo donc pendant que téléspectateurs yi di dugg ñu nuyoog oustaz Assane Seck euh, di ndokkeel bu baax Diaw Imo man xam nga sama gars yi laay bëgg di dérouler balaa balaa balaa xat waaw ah, damay dérouler man tamit sama programme euh, mon ami Diaw Imo ñu ngi lay ziar bu baax. waaye bu leen fàtte ni ñu ngi ànd ak euh, Dekakila ñoom lépp lu jëm ci wàllu électroménager dañ ñu ko jagleel ñu ngi ànd itam ak Pau Mobile bëgg naa sénégalais bu ne am puce soixante-quinze maanaam ñun ñëpp dañoo war di laajante fi ñuy waxee donne-moi ton numéro de téléphone. est-ce que tu as donne-moi ton 75 file-moi ton file-moi ton jox ma sa 75 ñun ñëpp kenn ku ci nekk war na am numéro Promobile parce que non seulement promo yi dafa am solo mais yi fi Sénégal la doomi Sénégal moo ko ibbi doomi Sénégal la ko moom jagleel ko sénégalais yi donc ñun dañoo war di sot gis nga sot dafa baax sot dafa baax donc dañuy sot di sotal suñuy nit loolu dafa am solo ñu ngi béggee euh, képp koo xamante ni mu ngi ànd ak ñun. bu ngeen fàttalikoo ci bëccëg ba tey nag dañoo euh, daanaka euh, ndogu ak tiis di génnuk àddina koo xamee ni candidat la woon ci élection yi di Mamadou saay man mii di wax ak yéen gëj naa jënd ndox yàlla rek moo bëgg dëgg depuis plus d'un an ndox mi nekk sama kër yëpp li may naan samay doom di koy naan moom mii ak njabootam ñoo ma koy ñoo ma koy jox gëj naa jënd ndox barki borom tubaa gëj naa jënd ndox lool donc lu tax may insister ci loolu dafa di xeetu teraanga yoo xamante ni baax na ñu koy waxal nit ci dundam waaye bu demee itam ñu koy témoigner sànq nag bi ñu déggee génnuk àddinaam ça nous a surpris ñëpp la bett di euh, koo xamee ni sunu xarit la di koo xamante ni sunu soppe la di koo xamante ni mbaaxam àddina yëpp a ko doon waxtaanee bu ngeen fàttalikoo bi mu annoncé ni day doon candidat à la candidature def na tournée amal na ay programme def na ay caravane il a dépensé beaucoup d'argent ndax candidat gi mu doonoon doon ci ànd ak nag sénégalais yi réew mi nag kenn dofatul ku baax ñu ànd ak yow mu doonoon nit ku baax koo xamante ni ku ko ni woon élection yi doo ko fekkee defe naa kenn du ko gëm moom nag euh, euh, bi ñu ko invité RFM matin maa ngi gis mu koy annoncé yàggul sax. le mars dernier donc c' est des c' est yoo xamante ni suñu borom da koy def yenn saa yi ñu ngi ci profité di la nuyu yenn saa yi ma tooñ ni moom rek. day xëy ne bu leen lekk bu leen naan day jékki-jékki jël kenn koo xam ni réew mi yëpp da koo soxla woon donc suñu borom lii suma ustaas bi naan dee ci loxoom la nekk jërëjëf euh, El Hadj Baye di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla yàlla yokku la dëgëral ci daraja Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy sant yàlla julli si yonant boobu sallallahu alayhi wa sallam euh, nuyu téléspectateur yu télévision Futur Média rawatina ju quartier général yi nekk ci réew mi ak si bitim réew ñoom itam ñaanal leen yàlla yàlla defal leen kooru jàmm si daraja yonant bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu itam moom Mamadou Ndiaye moomu nga xam ne moo toog si sa wet euh, laaj Baye Cheikh lii nga wax dafa nekk loo xamante ni alquran la ndax boo xoolee suñu borom subhanahu wa taala avertir avertir nañu démb alerter ñu démb laata tey di ñëw te boo demee si alquran da nga ko fay fekk yàlla di wax ne wala nablu wannakum bi cheyin min al xawfi wal juuci wa naqsin min al amwali wal anfusi wa thamarat waaye wa bashiri sabirin ñu ne nan mu ne alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nga xam ne aaya boobu daanaka saa yu yàlla jëlee kenn si ay jaamam rek El Hadj Baye Cheikh si la ñu war a dellu yàlla day wax ne jamono dana ñëw boobu ñun juddooguñu suñu ay maam juddoogul ba alquran di wàcc danaa leen nattoo yi may bëgg a wax jamono dana ñëw ay bakkan yu bëri danaa ko wàññi e, meññemteef danaa ko wàññi jamono dana ñëw di ngeen tiit jamono dana ñëw koom dina wàññeeku waaye bu boobaa nag yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga bégal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di muñkat yi ñu ne muñkat yi ñooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ne yu mel noonu ak yii nga xam ne wàcc na si ki nga xam ne moom moo di tey yatasaay eh, fa tabarakallahu mooy ñii di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xam ne si yàlla la ñu jóge te itam si borom bi subhanahu wa taala la ñuy dellu laaj baay cheikh mu nekk loo xamante ni tiis la comme ni nga ko waxee waaye itam toujours buy ñëw suñu borom subhanahu wa taala waxoon ñu ne dafay bette te luy bette te xamuloo kañ la xamuloo fan la xamuloo naka la mhm. loolu dafa nekk loo xamante ni itam lu waaw moom lu ko waajal lu tax ku ko neex mu jël waaw xam nga moom moo ñu bind comme bi mu ñuy bind tàgguwul kenn dëgg la tam bi muy bind mhm. tàgguwul kenn mhm. coobareem la demee ah, bëgg-bëggam la demee li nga xamante ni moom mooy sagesse muy xereñam moom la demee moom borom bi subhanahu wa taala waaye itam buy jël du tàggu kenn El Hadj Baye Cheikh léeg nit dina nekk si àdduna di dund. di dund mhm. di dund yàlla xool ko ni muy dundee. si mhm. mbaax. si mhm. teraanga comme seede bi nga def si yetasaay. ci taxawu jaami yàlla yi si solidarité si jàppalante. yàlla ne ah man kat sama jaam bi mu ngi dund si kaw suuf. te xam naa lu mu lu mu xamul. maa ngi gis lu mu gisul. te amaana bu ma ko bàyyee si kaw suuf. mën naa dem ba ca topp ko. loolu mooy li muy faral di wax ni moom. Euh, mm. faalun lima yuridin. mu ngi noonu. macha allah faalun lima yuridin. waaw ah. Serigne Cheikh radiyallahu anhu ba mu koy ba mu koy faram fàcce. faalun. lima yuridin lima yuridin. mu ngi noonu. <laughs> non benn grand laay dosé pour waram ko ni nag man aussi. Euh, macha allah j'ai fait les bons quand même. <laughs> macha allah j'ai fait les bons coraniques. <laughs> yaa ngi dëgg. damay tooñ ngeen baal ma. fa boobu mooy yàlla nee na hmm. moom mooy def lu ko soob. Hmm. léeg-léeg jaam di dund si kaw suuf. Hmm. yàlla gis na kii bu ma ko fi bàyyee. si kanam tuuti cat topp ko. Ah bu amoon mën na ñàkk. bu gëmoon yàlla mën na ëlbatiku àdduna mën na ko fëkk. yàlla ne kii naa ko indi sama wet parce que nitu aljana la. te su ma ko bàyyee seytaane mën na ko moom wala cat topp ko wala mu dugg ci loo xamante nii ëllëg xëy na mën na nekk lu muy rëccu. yàlla jël ko andi teg ko si wetam di ko teral sa àjjana ja nga xamante ni fa la ko fa la ko fa la ko fa la ko yóbbu mhm. li mën a xew rek alaaj Baye Cheikh mhm. mooy borom bi subhaanahu wa taala nee ne mhm. nañu ko waajal nañu ko bàyyi xel te ñu xam ne day ñëw kenn mënu ko daw dee kenn mënu ko daw ba kenn mënu ko daw de déedéet kenn mënu ko daw te loolu ku nekk da nga ko war a bàyyi xel ñu ne waaja ba mu jógee fekk par exemple fii dem Tamba ne tey jii nii kat fii ñii dee dafa bëri na dem Tamba comme ça mu xëdd foofu fa la fekk dee toog di ko xaar parce que fa la war a deewee. waaye dee bi mu seet góor gi loolu yàgg naa ko nettali ci euh, télévision Futur Média ñëw seet si ko. ne ko mm-hmm. yow kat laa jël si. Mm-hmm. dégg naa góor gi ne ko buggumaa dem léegi te comme ñun fii Sénégal teraanga la ñu xam. Mm-hmm. nit bu ñu seet see dañ koy teral. comme nag seet si nga ma te man maa nekk tête de ci ñi nga war a jël si tey. toogal nga ndékki. dégg naa mu defaral dee ndékki dee ndékki ba pare. ne ko léegi jot na. Mm-hmm. parce que tey ci journée bi yaay tête de liste. Mm-hmm. première personne bi ma war a jël yow la. mu ne ko comme ndekki nga ba pare te ngaa xaar añ. Mm-hmm. bu ñu añee ba noppi nga yóbbu ma. dee ne ko d'accord ci misaal rek. bi dee añee ba pare ne ko léegi jógal nag yóbbu la jot na parce que tey ci journée bi yow laa war a njëkk a yóbbu yaay tête de liste. waa ji ne ko comme añ nga ba noppi. te ngaa xaar ataaya. te siestaale. dégg naa dee ne ko d'accord. añ ba noppi sieste. yeew ne ko léegi jot na pour ma yóbbu la mhm. waa ji ne ko léegi comme da nga fee sieste te fii nga añee doo njogonal boo njogonalee nga reer bu ñu reeree bu reeree ba noppi ba ma julli gee nga yóbbu ma mhm. dégg naa ndeysaan dee euh, euh, reer waxtaan ak moom ba kontaan mhm. ne ko nag léegi comme yow laa waroon njëkk yóbbu ci bis bi léegi duma la defati tête de liste yow laay mujjee mm. tombeeg heure boobu mu doon yóbbu mu doon yóbbu ki mujjee heure boobu jot donc ci instant boobu la ko yóbbu loolu comme quoi loo daw dee daw dee daw dee daw dee mm. dee du du du jaas li nga wax ni alquran la mm-hmm. aaya la mm-hmm. suratul jumuat boo demee mm-hmm. yàlla mu ngi ko fay wax qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum summa turadduuna ila aalimi alxaybi walshahada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun yàlla nee ne dee gi nga xamante ni moom ngeen di bañ di ko daw bu ne lee fii la jaar ngeen dem feneen yàlla nee na saa yu ngeen dawee rek moom tamit mu ngi daw di daje ak yéen kenn du romb sa de déedéet kenn du romb sa bés yaa moo tax damaa di dee ma may la suukaru koor waaw mu ngi noonu fa innahu mulaaqikum <laughs> yàlla ne summa turadduuna ilaa aalimil xaybi wa shahaada mm-hmm. bu ngeen ñëwee nag man yàlla ma wan leen li ngeen doon jëf si lu baax di ko nëbb danaa ko génn ak li ngeen doon def si sofaan itam yàlla nag bu boobaa ne ma tegal leen ku si nekk nag sa carnet ak sa film nga gis ni nga doon doxee si àdduna kon alaaj baay Cheikh tiis la wàcc na tey si yatasaay fa tabarakallahu macha allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am bés ñu denc benn saxaaba mu sëgg si bàmmeel bi di ko ñaanal jooy ba si kimbi tooy bi mu siggee moom Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yaa ngi ko wër radiallahu anhum ajmain benn kàddu rek la leen wax alaaji baay cheikh kàddu boobu mooy li misli hada fa aiddu ne leen lii mhm. képp kenn si yéen na nga ko waajal mhm. ndax dee bu fi doon bàyyi alaaji baay cheikh du yóbbu Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. du yóbbu ay soxnaam mm-hmm. du yóbbu ay doomam mm-hmm. te lu si nit dund lu mu metti metti moom moo la gën a metti le ndax jël na doomam mu am deux ans mu fab ko war a julli ji bésu tabaski yàlla jël doom ji xam nga ne loolu moo gën a metti moo waral inna a'taynaaka kon nañu ko waajal ñu xam ne du jaas ñi jiitu yàlla na leen borom bi subhaanahu wa taala jéggal ñu itam ñi fi desandi ñu jekkalaat suñu toogaay te xam ne àdduna du kër et puis sa maam Maodo nee na araaka waaw araka na siital mawt nee na araka ca ca ca ca faakihatu tullaab suma juumul wallaahi yaa ngi dégg mhm. muy wax ne yow ki nga xamante ni yaay nit ki yow doomu aadama bi yow mi nga xamante ni yow yaay yow yaay mbindeef yi maa ngi la gis yaa ngi fàttal fàttalu dee mhm. ndax koo gis muy dox rek day jàpp ne moom moo fi bàyyi boppam mhm. kenn bàyyi fi sa bopp yàlla rek moo ñu fi bàyyi ak app yàlla na app sori yantoo te loolu ku nekk danga ko war a bàyyi xel boo demee sa xutbaam ba itam mu ngi koy wax nee na am na loo xamante ni day ñëw gan lay doon te gan googu bu ñëwee soxlaawul benn bernde soxlaawul kafe soxlaawul ay méchoui soxlaawul ay beñe soxlaawul leneen ak leneen benn rek nga ko mën a jox comme bernde mu kontaan mhm. mooy li nga xam ne moom moo di sa ruux mu ndoxoon ne moom Maam Maodo radiallahu anhu mhm. fa kayfa alxaal ida nazala dayfu wa maa lahu qiran illa al arwaax mu nga allah allah ibadallah alaaj baay cheikh kon nañ si bàyyi xel te xam ne du jaas luy ñëw la nañ ko waajal nag yal na appasoor yantoo ñi jiitu yàlla jéggal leen yërëm leen xaar leen ajjana si darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nga yaa ngi wax maam Maodo sëtam sax dafa génn àdduna tey moom laa doon waaj wax maam Ousmane si mm-hmm. waaw maam Ousmane si mm-hmm. maam Ousmane si da baax maam Ousmane si da baax moom tamit euh, dañu koo ñàkk tey di euh, euh, perte bu perte bu perte bu mag sax fii ci Sénégal. tariqa yëpp ñoo ñàkk. Mhm. Mhm. diine l'islam ñoo ñàkk. Mhm. ndax lii fi way juróom liggéey ak maamam ji nga wax suñu maam. Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu àddina yëpp teg nañ ci seen bët. dañ koy jaale xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour ak magam léppam Serigne Maodo si suñu papa suñu Serigne sa xarit moom itam ñu ngi ko koy jaale Serigne Mountakha. ndax Touba mooy Tiwaawan Tiwaawan mooy tuubaa Cheikh Mouhamadul Mokhtar xalif général des Layènes ak kilifa diine yëpp ak Sénégal yëpp ndax moom mii itam fa tabaarakallahu bés bii waajaloon na ko ndax bari waay na ay jataay yu ñu doon dajee si ay conférence ak yu ni mel doon na bàyyiloo nit ñi xel bés bii kon moom mi nga xam ne moom moo di maam Ousmane waajaloon na ko. Mhm. àddina nag nii rek la bàyyi Cheikh. Mhm. dee daf ñuy jéggi di dem si ay nit. du jaas bés day ñëw. Mhm. nit ñooñu muy jéggi. day bàyyi ñeneen ñëw si ñun ñëw si ñun yàlla na yéex kon na ko parce que des fois da nga naan yow doo dee quoi fekk dee moom du jaas. yàlla na ñu yàlla na yéex. amiin ñii dem itam yàlla na suñu borom. Euh, euh, accueillir leen ci àjjana yi gën a kawe ñu ngi masawuwaat njabootu Mamadou Yassa Yatassay yëpp y a des gens qui symbolisent la vie bu ñu mm. demee da ngay am mm. mbetteel boo xamante ni euh, maar day taali mm. nekkoon candidat ci élection présidentielle yi li ma wax sànk rek laay waxaat ku ko ni woon dina du fekkee élection yi doo ko gëm ñu ngi masawu équipe yi mu doon liggéey ci ndox moomu la di Aquaterra man gëj naa naan beneen ndox gëj naa naan gëj naa jënd ndox mhm. te noonu mu ma doon defal noonu lay defal loola defal loola yàgg defal nit ñi fii ci Sénégal mhm. euh, Cheikh Yatta su ma rakk la euh, bokk ci njabootam euh, waaye ak képp koo xam ne rek njabootu Mamadou Yatta Saay nga bokk ñu ngi lay massawu ci génnuk àddinaam sànq lu ñu yëg mauvaise nouvelle bi mhm. on va itam pour jaale sëriñ Maodo Sy Euh, sunu maam ji nga xamante ni euh, génn na euh, àddina itam yaa ngi koy wax léegi nii Oustaz Oustaz Assane Seck mm. donc ñu ngi jaal njabootu njabootu Seydi Hadji Malick yëpp suñu maam Ousmane Sy mm. euh, donc di ko jaal njabootu maam Abdoul Aziz Sy Dabakh yëpp rawatina sama sama papa yu bopp mm. euh, sëriñ Maodo si moom itam yàlla na fi yàgg te ànd ko njabootam ràññee naa ci sama sang soxna Umu Xayri ak képp ko xam ne rek bokk nga ci njabootu Serigne Maodo ñu ngi lay jaal sunu euh, maam ji nga xamante ni moom lañu dénk sànq moom lañu ñu dégg sànq génnuk àddinaam on va en profiter jëlaat yeneen i téléspectateurs lu mënul ñàkk faw mu am. lu mënul ñàkk faaw mu am donc suukaru koor yi la ñuy continuer di séddale ci numéro téléphone yi euh, bu leen fàtte itam euh, ne ci kanam tuuti euh, daañu dalal kenn ci candidat yi di président Amadou Ba bëri na ay ponk yoo xamante ni bëgg nañu ko waxtaane ak moom ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal mais en attendant ñu jox leen prévision yi suba ci wàllu météo lan la météo prévoir des demain thermomètre bi day yeewoog minimum yi waaye daanaka bu ñu demee ba ci après bi tar le sénégalais yi di dundu Dakar par exemple ëllëg dina yeew ak 21 degré Thiès 18 degré Louga 18 degré Saint-Louis 19 degré Diourbel 20 degré Fatick 20 degré euh, Kaolack 20 degré Sédhiou 21 degré 19 degré Ziguinchor Kolda 22 degré Kédougou 28 degré euh, Tambacounda 27 degré Matam 29 euh, degré xam naa tayal moo tax nga bind ce matin pour boole ko. Euh, info matin mais mënoon nga def rek demain après bu demain matin ñu modifier mais da ngeen tayal léegi xale yi vraiment te tey moom balaa émission bi di jeex damay ragal ma dóor fi nit je te jure man ragal naa dóor fi nit de gis nga bu ngeen ma téyewul ragal naa fi dóor nit nag sa Assane parce que tayal weesuwul lii. sama mu bind ce matin. dafa juum rek. maanaam léegi même même defar bi da koy teg carte général teg ko suba info matin. xoola bëgg yomb loolu. njumte la rek. c'est-à-dire Chérif Dia dootul surveiller liy jàll info matin <laughs> c'est pas normal Chérif Dia il faut il faut superviser euh, vraiment euh, liggéey bi. quand moo mon ami Chérif Dia on t'attend dans quartier général donc lii mooy prévision yi suba ci suba bu ñu demee nag ba après midi bi météo mu ngi ñu xamal ni thermomètre bi mën na yëg daanaka ba 42 jàpp 43 ba 44 degré boori Tambacounda Matam Kaffrine euh, Kédougou. waaye nag après midi bi euh, dinañu am 42 euh, degré Kolda 42 degré Sédhiou 43 degré Kaolack 42 degré Fatick 38 degré Ziguinchor 26 degré euh, Dakar 32 degré Thiès Saint-Louis dina yendoog température yu toll ci 29 degré. et ñu dem ci marée haute yi euh, waxtu marée yi plutôt mare bu njëkk bi météo ngi ko prévoir 7h58 du matin j'ai envie de leur montrer que nous sommes en direct ñoom dañoo jàppee télé bi grand place ñu ngi def direct waaye ñu ngi ci ginnaaw di ambiance tey damay ragal ma dóor fi nit donc 7h58 euh, le marée haute bu njëkk bi bi ci topp météo nga ko prévoir boori 20h08 waxtu marée basse yaa ngi nii bu njëkk bi euh, météo nga ko prévoir 1h52 marée bi ci topp ñoo ngi ko prévoir 13h47 du matin. kuy live na nga live gaaw puisque que ca kanamee tuuti kenn dootul xool dara lu dul waxtaan wi ñu nar a séq ak ki nga xam ni moo di président Amadou Ba mooy sunu gan ci quartier général li ma ciy toftal balaa may jëlaat beneen wala yeneen téléspectateur pour jox leen euh, ay suukaru koor euh, jant bi 7 heures 13 lay xëy dina tëddi. guddi gi bu 19h19 jotee taux de change bi itam ñu baaxee leen ko bu ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi 1 dollar américain ñoo ngi koy weccee 602 virgule 581 francs CFA 1 euro ñoo ngi koy weccee 655 virgule 957 francs CFA une livre sterling xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 768 virgule 476 francs CFA 1 yuan chinois ñoo ngi koy weccee 83 virgule 7703 francs CFA 1 dirham xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 59 virgule 915 francs CFA wan dalasi xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee huit euh, virgule euh, huit cent soixante cinq franc CFA. kan mooy dugaat ma may ko ma may ko deux cent mille suukaru koor 88 628 22 22 passaat leen ma beneen téléspectateur 88 676 05 05. wala 88 676 06 06 ak it 88 676 07 07 na woote yi gaaw ñu mën a accélérer cadence bi laataa ñuy dalal sunu gan tey ci quartier général on attend vos réactions vos réactions ci sunu ay plateformes télévision Futur Média première télé digitale fii ci Sénégal li ma ne woon li ma ne woon buuba démb xanaa xamoo boo invité Pape Samba Thiam tonton mag day live <laughs> nii la kaa bi demee tey. Pape Samba ak naan bàyyi si ñaawal yi ngay ñaawal ah tu mais j'ai raison c'est-à-dire tu invites Pape Samba tonton mag day live. c'est ce qui fait le charme de sa pays quand en tout cas fan la ñu nar mu mujjeek élection yii loolu la ñuy xaar foo war ne di mujjeeki gëtam mais l'essentiel mooy ak kuñ ko mënti dénk xamal ni ñu ngi lay waaja dénk réew mu metti xamal ni ñu ngi lay waaj dénk dëkk bu compliqué fi mu ne ñun ñëpp mer. ku ne am na lu la tax a mer waa bitim réew yi sax dangay xëy dem di lijjanti sa carte de séjour boo amul carte de séjour nga jiñ ko président wu Sénégal bi da ngay xëy nekk bitim réew banque soxla cinq euros am 2 euro 3 euro matul nga mer sippi ko Macky Sall yooyu yëpp am na fi ñun ñëpp a mer man sama problème yi ma am ci télé bi président bi laa ko jiiñ donc ki fi nar a toog réew mu compliqué la nar a jiite. moo tax kenn ku ci nekk chaque soir boo ñëwee ci quartier général on fait le maximum pour jox la ay questions yoo xamante ni c'est ce qu'on appelle des questions de l'heure ki nar a ñëw tey itam dinañ ko jox yépp yéen di ngeen ci bokk ñun dañ ciy bokk ndax kenn ku ci ne kenn ëppaliwul kenn ci réew mi Modou Mamadou Ndiaye mi ëppalewu ma ko Sénégal kii ëppalewu ma fi dara ñun ñëpp bokk réew mi donc lan le président Amadou Ba prévoir si toutefois il gagne dinañ ci xam dara bu ci kanamee tuuti puisque day doon laaj ak tontu mais en attendant dugg leen ma jox leen seeni sukkaru koor passaat leen ma beneen téléspectateur 88 676 06 06 ñu gërëm bu baax maître dattier tubaab bi dañoo am maître chocolatier fii nag Sénégal dañoo am maître dattier maanaam moom ci tàndarma rek lay dox il nu propose des dates d'exception imaginez tey ils nous ont offert un plateau de dates boo xamee ni dañ ko décorer ak ay friandises vert jaune rouge regardez ça alors numéro de téléphone maître Dathier naa leen ko jox ci sama ay plateformes Pape Cheikh Diallo univers bien entendu tout mon univers sur les réseaux sociaux regardez regardez ah the tandarma, <laughs> tandarma maître dattier, bien décoré. Tout ça, on mange. Voilà, donc les couleurs du Sénégal, c'est ce tey merci aux équipes de maître Dathier euh, ñu ngi fóon bu baax waa Stras merci à ma princesse euh, Vanessa. 88 676 05 05 wala 88 628 22 22 Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu. téléspectateurs yi mën nañoo réagir en temps réel tey ci quartier général bi grâce ak hashtag bi du QG9 wala QGTFM 2024 Ramadan 2024 bien entendu effectivement El Hadj maa ngi lay euh, maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yeeg euh, internautes yi ñuy suivre nañu euh, di suivre télévision Futur Média ci Facebook live bi YouTube live wala Instagram live fépp foo xamante ni suñu plateforme ligne de paix sociale TV am ngeen possibilité comme chaque soir interagir. ak suñu invité wala ci ki nga xamante ne lañ fas yéenee dalal ngir ngeen mën a poser seen ay questions comme ni ko El Hadj waxee sànq mën a participer bu baax ci eh, émission bi rawatina eh, ci fi réew mi toll ak eh, élection présidentielle yi nga xamante ni moom la ñuy waaj ci jamono ji mu nekk loo xamante ni soxal na internautes yeeg téléspectateurs yi. tey nag ki ñu invité El Hadj moom ko am présence la comme yeneen candidats yi ci réseaux sociaux yi mi ngi Facebook mi ngi X mi ngi Instagram. mi ngi eh, ci plateforme yëpp rawatina ay eh, followers yu bare bare macha allah muy eh, am kii di Amadou Ba. kii tamit ci réseaux sociaux yi raw na rawatina sax ren dañoo innové ñoom ci seen campagne bi def li ñu duppee fii intelligence artificielle yi toll chatbot maanaam euh, interagir ak euh, ñi nga xamante ne ñooy militants yi grâce ak seen euh, plateforme bi wala di WhatsApp ngir mën a gën a mën a jege ñii di militants yi xam naa ci kanam dañ ci ñëw gën ko détaillé gën ci indi ay leeral j'en profite pour jaale ki nga xamante ni moo nekkoon candidat à la candidature ci élection présidentielle yi di Mamadou Yatassaye mi génne àddina gannaaw malaise bi nga xam ne moo ko daaneel di di ko jaale waa Sénégal gi yëpp comme li nga wax ci taxawaayam ci mbirum social mais nekk koo xamante ni amul yéene lool ci réew mi yal na ko yàlla xaaree àjjana may xolu muñ ñi nga xamante ni ñooy njabootam ak ñi nga xam ñi nga xamante ni ñoo ko soppee laa jaajëfal nañ mu ngoog donc ñu ngi koy jaale koy jaalee njabootam yëpp c'est vrai que da ngay bëgg a reetaan mais après doo ko mën parce que c'est tellement lii dafa dafa dafa dafa dafa metti Euh, décès bi voilà moo tax waykat yi ak animateurs yi amu leen suñu fay fi mu mettee ngay war di reetaan pour bégal nit ñi boo reetaanee di nga gis ab dof bu ne lu tax muy ree te ñu nekk ci dëj donc doo comprendre finalement ñoo gën a métti le métier ah. suñu métier bi dafa métti lool sax boo reetaanee sax ñu indi ay affaire fañele am na ay dëmm yu jóg naan kii day jaxase catholique yi julliti loo def ñu wax man daal xam naa ren mooy nekk sama dernière saison ki yéen sax ndax sonn na yaboo ngeen wutee beneen animateur ah. Eh, xam nga ci. luy faut pas eh, bu xoolee eh, damaa faut pas depuis vingt ans nga naan ma faut pas en deux mille vingt quatre arrêté ay faut pas ay bu leen tontoog yooyu ah astafurlah benn grand mu ngi may seetaan. Ah non chaque année je vous donne rendez-vous sur la TFM pour quartier général. 88 boo gis am na malarti <laughs> Pape Cissé léegi mu ne ma benn booy foo jëm fii ngay toog laa wax kenn ëppalewu la ci réew mi. <laughs> merci allez 88 676 05 cinq passaat leen ma ay téléspectateur ma jox leen seeni suukaru koor na woote yi gaaw ku dugg léegi nii am dara tey di ngeen am enveloppe yu bëree bëree bëree bëree Sophie ñu ngi lay fóon Sophie tey mën nga bañ a ñëw dégg nga ci télé bi ah garaawul quoi baal nañ la ko nel Sophie baal nañ ko ko tey tey baal nañ ko ko tey du ñu am temps quoi tey Amadou Ba mooy ñëw te du ñu am temps. su fi nag xam naa ko daa mën bis bi nga xamante ni tey bu doon day génn ci télé bi xoola marron beige lay def xam naa Sophie je connais Sophie madame Ndiaye on t'embrasse très fort moom tam ci jàmbaaru jigéen yi fi nekk la bokk ñu ngi koy béggee bu baax moo ñuy toggal xëdd moo ñuy toggal euh, moo ñuy toggal ndogu di ndokkeel tamit sama penda ma ca sama kër nga xam ne depuis 9 ans boolam day ñëw chaque soir gërëm tamit euh, ngóone ngoone bu Damas équipe bu Damas ñoom chaque soir dañuy dresser dresser table voilà dañuy dresser table nga xam ne affaire bi tànn sa bu la neex la bu la neexee nga ànd dem ci boolu penda ah dem ci gëble gi bu la neexee boo silwisee dem à table bureau bureau buuba ça dépend de vous donc Damas Damas plutôt boulangerie pâtisserie ñu ngi nekk fii ci Dakar lu ngeen soxla ci viennoiserie bu ngeen demee Damas di ngeen ko fa am dañuy dresser table euh, chaque soir ci quartier général mon ami Omar ñu ngi lay bëggee bu baax nee na li nga sol rafet na tàmm naa ko oh, sañ si sama yëf la nag tàmm naa tàmm naa tàmm naa tàmm naa lii te kenn rek ka may créer yenn saa nit ñi ma kan moo lay ñawal mais wax dëgg yàlla Kayfa la depuis 9 ans bàcc jum ak ñi mu àndal ñoom ñoom ñoom vieux cassé tout le staff Kayfa euh, merci ci collaboration bi ngeen ànd ak man depuis 9 euh, ans oui marron beige la sol dafa tombé tombé waral ay gaaf <laughs> donc mu ngoog ñu ngi gërëm bu baax waa Kayfa moom kay fi ne yi ngeen ma bëgg a wax yi balaa balaa ngeen ma koy wax ma wax ko bopp yéen xamul leen ma sax yow réew mi dafa neex nekkuñu ci benn terrain ñoom daal au terrain la ñu nekk rek di seetaan waaye ñooy wax nii nga war a waxee nii man daal jaaxal ngeen ma bu leen tollee noonu ngeen ñëw animé quand même bàyyi leen tooñ tooñ du gàllaaj ñàkk tooñ doy na gàllaaj qui sera le prochain téléspectateur ma jox ko suukaru kooram 88 628 22 22 allo allo allo allo hello allo allo 200000 200000 gaaw leen damaa bëgg a euh, euh, ñu tàmbali waxtaan bi ak euh, sunu gan ci télévision Futur Média yéen rek lay xaar 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 gaaw leen ci woote yi. ku dugg ñu jox ko suukaru kooram mm, daf may réaliser ba pare di traité ay ka an loolu xaw na maa jaaxal man daal ah, yàlla waxul kenn dara 88 628 20 20 ban téléspectateur mooy dugg léegi nii ñu joxaat ko ñu jox ko suukaru kooram allo allo allo allo 88 628 xanaa xamoo Amina Poté sax daa bëgg président Amadou Ba. <laughs> démb ba tey mu ngi jubili na am dama am ay question yu may laaj mais Amina Poté tey bokkuloo ci équipe bi <laughs> Amina Poté nee na ma xoola damaa am lu ma bëgg a laaj Amadou Ba parce que bés buñ ko dénkee réew mi il faut ma am lu ma wax ak moom mais Amina <laughs> mais coo allez ban téléspectateur mooy dugg léegi nii ñu jox ko suukaru kooram 88 628 88 628 22 22 wala 88 628 ay ca gaaw leen 88 676 06 06 Mbaaco Ndiaye coppati mbaa yooyu da ngaa bëgg président Amadou Ba tey di ñu ma gëj a dégg maa ngi leen di dégg kenn mësul gis li ah ay ca na woote gaaw et maa ngi TikTok live ah n'est-ce pas. TikTok live mais TikTok bu TFM pas sama TikTok parce que man tamit am naa TikTok waaye yenn saa yi ma di dugg TikTok gis ci 15000 Pape Cheikh Diallo réew mi mujj naa métti mais quand même euh, c' est bien c' ce qui fait le charme de ce pays comme je donc pendant que téléspectateurs yi dugg pour ma jox leen euh, seen i euh, sukkaru koor Oustaz Assane ñu dem ci naafilu bis bi jébal ko téléspectateurs yi. balaa ñuy dem ci ci euh, ci waxtaan bi ñuy séq tey ak président ànd Amadou Ba euh, bu leen fàtte ni ñu ngi ànd ak Tamaate Linguère waa Agroline ñoo ñu ko jagleel vache qui nag toj na dëkk bi ndax boo ndogoo ba jël sa mburu rax ci sa ñaari sa ñaari triangle vache qui rit y a de tel xel comme pizza nag mi ci beñee Nutella yi moom ay beñam boo ko dee ndogoo da ngay lekk chocolat bi rogalaat sa tuñ di dogalaat ci suuf nii ngay mar loolu yaa a rien de tel c'est tellement délicieux donc ñu ngi gërëm bu baax waa xel comme pizza saucisson daara mooy saucisson bi ma ŋàbb keroog di ko yëngal dafa sakkan boo jëndee benn saucisson bu dijj bi mën nga cee ndogoog sa njaboot xëdd ci sa njaboot pendant quelques jour donc bu ngeen dematee ci grande surface bu ngeen dee jënd saucisson fexe leen ba mu nekk daara voilà na nekk saucisson daara daara D A R A j'ai bien prononcé donc na ngeen di jënd saucisson daara soo euh, so so resto moom la su fi di safalee tey dama ko bëgg a comme nee na dafay noppalu du ñëw <laughs> am na yoo xamante ni man rekk ko ko mën <laughs> mën naa ne ci télé bi ba 24 heures sur 24 billaahi mën naa commencé 22 heures jeexal suba 22 heures ci guddi te mus naa def exploit boobu man ak Kebs mus nañu def benn direct defe naa bi ndongolo ndongolo gaañoo jour boobu est-ce que defuñu 24 heures de direct <laughs> damay télé télé je l'ai dans sama ADN la <laughs> yooyu laay bëgg a dégg Pape yaa aay yooyu laay bëgg a dégg Pape yaa professionnel yooyu laay bëgg a dégg Pape yaay Sénégal yooyu laay bëgg a dégg Pape yaa yooyu laay bëgg a dégg. <laughs> allez sucria itam ñu ngi leen di gërëm bu baax tout le temps Sophie day wax ni ñu bëri dañu foog ni pour ay diabétique kese la mais sucria dafa di suukar boo xamante ni euh, dafa baax ci yaram maanaam maara day taali euh, euh, doo am benn tawat te mën nga ko jëfandikoo donc bu ngeen dematee ci grande surface pour suukar seeni i ñoom seen da ngeen jënd suukar bi nga xamante ni moo tudd sucria ceebu sangomar nag moom la penday moom la penday sóor saa yoo lekkee ceeb bi sa xol bi sedd te nag da ci am famille yu bëri yoo xamante ni comme sama waa kër papa yi ñoom bu ñu ndogoo rek dañuy teg ceeb bi donc ceebu sàngomaar nag moo baax ci weeru koor gi nga xam ni boo ko xëddee wala boo ko ndogoo boo xëyee bëccëg bi doo am benn problème da ngay voilà du diis quoi et puis du la xër ñeeñ donc ceeb bi mu ngi disponible un peu partout riz sàngomaar la ñu ko tuddee Nescafé nag ay doosam mënul ñàkk ba ndogoo ba noppi bëgg si daan quartier général nekk en forme n'hésitez surtout pas na ngeen jënd seen ay Nescafé puisque Nescafé depuis très longtemps dañu ànd ak moom fii ci euh, Sénégal Pape bu amee téléspectateur ngeen paas ma ko léegi nii ma joxaat ko suukaru kooram 88 676 05 05 allo. allo allo allo. allo. kooku. man la Nabou. def yow. maa ngi lu tax lu tax ma namm la. ah maa la raw Pape Cheikh Diallo bëggoon la jot rek boobu ba léegi. ah man de nabu man lii jaaxal na man namm yi ma la namm nii man daf maa jaaxal. ah maa la raw maa nabu noo sant. Saane. nabu Saane Joola dégg nga Joola. <laughs> déedéet laa dëkk. ah noo sant nga ni Caane. Saane waaw. Ah, Saane. mais dégg nga Joola wala déggoo Joola. joolaa bu gàlle nga maa ko yow laa sant nit ñi foog ni Guinée laa dëkk am na sax ñu foog ni damaa jënd identité. ah. te pourtant man jàllo fii laa. Ah waaw waaw. ah jàllo nga ni nga ni nga ni yaa ngi tudd waaye fàttewaat ma tur bi Nabou nabu Sané. Nabou Nabou quartier général may na la suukaru koor bu toll ci deux cent mille Nabou. kontaan naa kontaan naa monsieur na la yàlla sama yaram neexul sama xol neexul sax waaye naa la applaudir rek. merci. oui Nabou carte générale may na la deux mille. merci kontaan nañ ci yow. ñu ngi lay gërëm bu baax. Eh, moom ndeysaan ku tudd jabar ji mu kontaan jëkkër Amina Poté Malick yónnee na ma léegi ni sukkaru koor <laughs> waa ji dafa garaaw de il est rapide ah. man nii laa bëgg dama bëgg ay beau frère yu gaaw voilà jabar ji laa tudd mu suukar koor kon bu ñu tuddaatee te ñu ko tuddaat pour abaat beneen pour ku ne mën a am <laughs> voilà euh, ñu ngi leen di béggee ñoom ñaar ñëpp depuis Paris euh, di leen ziar bu baax euh, yàlla na yàlla dëgëral digg Amine Apote ngay laajte fu mu ne ma ngay lune de miel moom nee na lune de miel lu un an lay def ren <laughs> xaw nga d'habitude lune de miel une semaine maximum Mamadou Ndiaye week-end la lune de miel yow defe naa yow ña yow deux jours nga lune de miel Assane mais est-ce que xam nga Amina Poté ñaata taalee lune de miel nee na un la bëgg lune de miel mook Malick naa ak atu atu lune de miel. atu yàlla pour def tour du monde. nekk na mu nuyul Malick. ah ku jara nuyu merci pass leen ma beneen téléspectateur ma jox ko suukaru kooram 88 628 22 22 Ami Mané ñu ngi lay béggee yow tamit bu baax c'est vrai que koor gi moom euh, daanaka période la boo xamante ni ñëppay nekk ci jàmm saafonte bi ñun dañuy joxe couleur yi maanaam nii ñu nekkee ci plateau bi rek noonu lañu ñu bëgg ngeen nekkee seeni kër ñu ngi jëm nag ci ay élection élection yu tombeek carême élection yu tombeek ramadan signe la pour wane ni lu dul jàmm jàmm ko gën te ñun on prône la paix oustaz Assane Baye Cheikh l'islam mooy paix paix mooy l'islam al islam salaam mooy diine ji nga xam ne yàlla moom la jox sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te itam jàmm jooju moom la jox yonte yàlla isa alayhi salaam nga xam ne tey suñu mbokk yi nga xamante ñoo di chrétiens yi nekk si kerem bi itam moom la ñu gëm fa tabarakallahu kon li nga xamante ni moom moo am solo mooy jàmm jooju ñu fexe mu nekk loo xamante ni lu ñuy suuxat la waaye itam nekk loo xamante ni lu ñuy sauvegarder la ba ëllëg suñu ay doom ak suñuy sëti bu ñu ñëwee man ko fi fekk dinaay faral di wax ne am na loo xamante ne ni nit ku nekk war nga koy bàyyi xel maanaam boo ñëwee fexe sa ay maam sa ay wéyjur mhm. instauré fi jàmm mhm. jàmm jooju war ngay fexe noo ko saxale mhm. maanaam waroo fexe ba nga mujjee pusu bi mu réer sa ay loxo te diine ji nga xamante ni moom la ñu bokk alaaj Baye Cheikh toujours si jàmm la woote jëmale kon loolu itam dañ koy bàyyi xel te boo xoolee turu yàlla yi assalaam daf si bokk muy jàmm te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu mu waxoon euh, muy alfitnatu naimatun laana allahu man ayqazaha yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ne mhm. fitna mu ngi nelaw mhm. yàlla suñu borom subhanahu wa taala rëbb na mhm. képp koo xamante ni moo ko yee xanaa xamoo fitna ki ko yee mën na jibile bu fitna bi jibee de waaye ci kawam lay mujjee waaw mooy lu ñuy wax deretu mbagg du mooy la su aal ala kulli aal ala kulli aal sa kaw lay mujj te boo ko tàmbalee mm. man nga xam ne tey lay tàmbali mm. mais doo xam fu muy yem doo xam fi kan lay mujjee te bul bul jàpp ne mukk ne da nga yee fitna ba mm. pare mucc si tôt ou tard si yow lay dellu sowat kon jarul yee nañ dem si ay élection yu apaisé mm-hmm. ànd ak dal. Mhm. yàlla noppi na démb. Mhm. laata tey di ñëw. macha allah nañu wutee sago alaaj Baye Cheikh. Mhm. su koor la ñuy joxe waat pastel ma beneen téléspectateur ma jox ko 200000 balaa président Amadou Ba di installé wu ci plateau quartier général ñu tàmbali waxtaan bi ak moom 88 628 22 22 88 676 wala 88 628 76 76 lii itam numéro bu baax la mais maa ngi gis pendant que euh, ngeen may passe téléspectateur yi maa ngi gis kuy laajte naan. lan mooy njëriñu sarax njëriñu aumône sarax. sarax waaw alaaj baay cheikh sarax dafa nekk loo xamante ni euh, lu am solo la waaye itam nekk loo xamante ni yàlla daf ko bëgg waaye sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam itam mi mu yónni daf ñu ko digal waaye itam wax ñu ay bienfait yi nga xamante nii aumône muy sarax am na ko alaaj baay cheikh ndax tey bari waay na ñoo xamante ni ñu ngi koy waxtaane sànq dëddu nañ dem àllaaxira yàlla nee na suñu borom subhanahu wa taala ñu bëree bëree bëree bëree bëri bu ñu demee bu ñu ñaanee yàlla pour mu indi leen si àdduna dañ naakaan dañ lay ñaan bu ñu demee waxuñu ko may ñu ñu julli duñ ko wax may ñu ñu woor buñ duñ ko wax may ñu dem màkk liñ koy ñaan mooy bu ma demee rek ma mën a saraxe ak julli ni mu amee importance ak dem màkk ni mu amee importance ak woor weeru koor ni mu nekk amee importance nekk ay farata si diiney l'islam yàlla nee na ñooñu bu ñu ñëwee àllaaxira lenn rek la ñuy bëgg bu ñu dellu sa woon àdduna muy muy génn li nga xamante ni moom moo di sarax d'où l'importance de l'aumône pour nit ñi xam sarax li nga xamante nii loolu la mën a def si aw askan waaye itam noonu la ko borom bi suñu borom subhanahu wa taala euh, bëggee moo tax boo demee si alquran suñu borom subhanahu wa euh, wax na ko fa te loolu ku nekk da nga ko da nga ko da ko war a bàyyi bàyyi bàyyi xeex fa asaddaqa wa akum min as-salihin noonu la ko yàlla waxee si alquran bu ma delloo àdduna day danaa saraxe lu ma mën ngir bu ma ñëwee waat fii si àllaaxira ma mën a bokk si ñi nga xamante nii dañuy dañuy texe waaye alaaj baay cheikh beneen euh, bien fait boo xamante ni sarax am na ko hmm. yonante bi sallallahu jàngal nañu ko nee na nattu ak musiba wala feebar yàlla dana ko pareel pour wàccee ko si xeet wala si ay jaamam xeet yooyu di ñaan di saraxe di ñaan di saraxe ba yàlla jël loolu nga xamante ni moom waroon a nekk natt wala musiba wàcc seen kaw musal leen si moo tax mu waxoon ne laa yuradul qada wala yaa laa yuradul qadar illa du'a te loolu dafa nekk lu jar a bàyyi xel mu yaram sallallahu alayhi wasallam nee ne amul dara lu mën a delloo ndogal loo xamante ni sofaan la lu dul li nga xamante ni moom moo di moom moo di ñaan mu waxaat na ne inna sadaqata sirri tutfi'u ghadaba rabbi di saraxe te yàlla rekk tax day dindi day taxat yàlla suñu borom subhaanahu wa taala teggi li nga xamante ni moom moo di meram si xeet fi may jéem joxaat la mhm. daaneel mooy sarax mhm. Seydina Ousmane ali radiallahu anhu dafa am bés mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam def levée de fonds woote lu waay am rek andil ku nekk di indi ku nekk di indi ku nekk di indi waaye Seydina Ousmane radiyallahu taala anhu Baye Cheikh. Eh, baal ba leen dogg ba leen. Hmm. kii fan yii Miss Monde la jàppee boppam. xaw ma kan moo ko ni yaa daq ci réew mi wala jigéen ñi génn ci télé bi yëpp yaa leen dàq biso ngi dox di bonde léegi léegi buy dox day def ak kii maanaam adresse boobu nga xamante ni grande dame yi moom la ñu am maanaam léegi day kii dafa nonchalante naqari deret ay saag yu jar dix lay gàddu. ay or yoo xamante ni jaaro bisu rek sama salaire la frigo bi jig na la nag man tey ñu maa frigo ma mën a gagner ma vie comme il faut ay saak yu jar quinze millions ay jaaro nopp yoo xamante ni man daal ay tissu yoo xamante ni yaar bi rek yaar bi rek mètre deux cent mille xaw ma nag kii tëpp guddi je sais kii tëpp xaw ma ku la mën xaw ma kii tëpp <laughs> et boole fuuy de <laughs> bisu qui l'eût cru qui l'eût cru. soxna Diallo jéggal bi sedd waaye am na côté bu mu ah oui grave balaa ngay nuyoo yow toogal rek yaa ngi doog a yegg si parce que bu la nuyoo léegi da ma ne may ma ma nopp ma noppalu ba pare comme da naqari deret léegi toogal nga respirer on tamit un bon café ñu àggali euh, thème bi ci euh, sarax ak oustaz Assane. jërëjëf Baye Cheikh mhm. ma nuyu waale ko bijou Seydina Ousmane radiallahu anhu bii yonente bi sallallahu alayhi wasallam wootee def de levée de fonds dafa indi loo xamante nii lu bëree bëree bëri la mhm. am ñu ne yonente bi sallallahu si bërëb bi la ko ñaane la séance mhm. am ñu ne daf ko fanaanee ñaanal ba fajar xar loo si mën a dégg mooy ñaanal na ko waaye bi mu ko ñaanalee ba yeggal dafa gëstu ne maa darra maa amila Ousmane baadal yawm ne Ousmane ñëpp toog di mu ne ko yàlla nee ne toppeetu la dara loo def baax na te a ngi boobu mu ngi woor mu ngi jàng alquran waaye joxe si la ko borom bi subhanahu wa taala defalee loolu ñu ñu xam ne joxe dafa nekk loo xamante ni lu am solo la waaye tam surtout alaaji baay cheikh ni ñu koy waxee def lu baax baax na waaye xam fa nga koy tàbbal moo gën te loolu itam dafa nekk loo xamante ni lu ama ama am solo la waaye borom bi subhanahu wa taala mane la gan mhm. doo dib parce que témoignage bi nga def si yeta saay mhm. dafa am solo eh. yàlla na ko yàlla yërëm man sama kër yàlla xam na ni damay euh, gëj naa jënd ndox te li gën a li li gën si sarax yi lay def muy ndox est décédé te t'es pas au courant te li gën si sarax moom lay def muy sarax bi nga xamante moom moo di sarax ndox nee nañ dafa am benn soxna bu nekkoon jamono ba nuy Israël di def lu ko neex benn bés muy ñibbi këram daawul jaamu yàlla lu ko neex daal nekk si boppam topp ba kanam gis benn xaj bu mar mu fexe tànk si teen bi ba may xaj bi bi mu deewee yàlla ne ko xaj ba nga mayoon mu naan loolu moo tax tey jéggal naa la nekk nga nitu àjjana ah. kon ku dimbali nit mu naan El Hadj Baye Cheikh mm-hmm. xaj mala la yàlla moo ko bind mbindeef la ah. waaye ku ne xam na ne nit moo gën mala mhm. sagam nit mooy dimbali xaj mu naan mhm. yàlla araamal yaram safara dugal ko àjjana mhm. waxuma laa ku dimbali nit mu mu lekk wala nga mais yow da ngay xool da ngay xool makka c'est-à-dire picc yi naaw noonu. Hmm. voilà nit ñi dañuy génn di leen jox ñu lekk. ay dugub ak ay pepp ak yu mel noonu. man doon seetaan loolu di affaire bi impressionné ma. ay tuyaabay kese ay tuyaaba la kay. ay tuyaabay kese la donc c'est mala boo ko joxee. Hmm. mu naan wala mu lekk. Hmm. dinga nga ci am payoor ak sunu borom. waxatuma la ak doomu aadama. suñu maam lépp ci sarax la. suñu sëriñ. sa sëriñ Cheikh Mouhamadul Fadel. radiyallahu taala anhu doon na wax ne jaamu yàlla. si jaami yàlla yi mhm. jaamu yàlla si jaami yàlla yi comme ñun ay nit lañu dañu matadi xëy na suñuy julli mën na manqué mhm. suñuy koor mën na manqué suñuy nàngam mën na manqué mhm. nañ kay mottalikoo si li nga xamante moom moo di jaami yàlla yi di leen dimbali di leen taxawu di leen jox te yàlla rekk tax te loolu dafa nekk commerce boo xamante ni amul fayit amul pertement boo ko defee fii yàlla loo joxee fukk mu fay la ko téeméer fii si àdduna wala lu ko ëpp te boo demee àllaaxira itam fekk fa li nga xamante ni moom moo di sa yiw mu toog di la xaar joxe ñam ak saraxe mm-hmm. dara gaawu kaa dugal gënu kaa gaawal dugal nit àjjana mm-hmm. waaye itam dara tax gënu la gaaw borom bi subhaanahu wa taala di la bindal ay tuyaaba yoo xamante ni kenn xamul nu mu yem fi ma lay delloo mooy li yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne mhm. alxalqu wala annaasu kulluhum iyaalullah mhm. afdaluhum anfauhum linnaasi mhm. nja nit ñëpp njabootu yàlla lañ yàlla kii mu gën a bëgg nag si njabootam mooy ki nga xamante ni da koy taxawul njabootam amal njabootam njariñ di leen dimbali di leen taxawu te yàlla rekk tax kon nañuy jàppalante day dimbalante mhm. rawatina si weeru koor gi ak karam gi mhm. ndax borom bi subhaanahu wa taala ñu defal yërmande alaaj baay cheikh mu ngoog jërëjëf yaa oustaz defe naa kàddu yooyu am na solo eh, ci eh, sarax wax ju neex sax sarax la sarax la da ngeen di dégg ñu koy faral di wax fii ci Sénégal mais sarax la am na yenn taxawaay yoo xamee ni am ko ak nit ci yërmande sax sarax la suñu borom daf la ciy taxawu donc merci ci euh, sarax ak njëriñam bu ñu àggalee dañuy xoolaat yeneen téléspectateur jox leen seeni euh, sukkaru koor le temps président Amadou Ba euh, di jóge fa mu ne Euh, di ñëw ak délégation am ñu fas yéene tàmbali waxtaan bi dans quelques instants heureusement ba weeru koor la ñu nekk parce que weeru koor toujours damay tooñ ni dafa mel ni épidémie d'insomnie mooy sonal ñëpp bitim réew par exemple c'est plus de deux heures de décalage si je ne me trompe ah c'est plus d'une heure de décalage mais néanmoins dañuy fanaan ak ñun ba fajar yeneen dëkk itam da nga fay dem euh, du ñu bokk heure mais néanmoins dañuy fanaan ak ñun ba fajar donc ku ci euh, pare ñun pare nañu pour tàmbali waxtaan bi ak sunu invité di président Amadou Ba ci kanam lay doon ci euh, quartier général bi xanaa profité ci rek euh, ndokkeel bu baax a baax sunu xarit ci ak fu ñu mënti nekk ci àddina merci d'être fidèle euh, ci quartier général monsieur et madame Diallo ñu ngi leen di ziar bu baax Ami Dieng ak boroom këram Amadou depuis New York yaayu Dadi ak Soufia Bijou Ndiaye moo ñu fekk si léegi ne ci plateau bi ñu ngi lay nuyu ci kanam ñu dalalaat beneen candidat parmi candidats yi. yi moom. ni ngay wax rek sama kër fontaine baa ngi fa si tout le temps dañ lay jékki-jékki woo la ne la ñu ngi lay indil ndox sa grand ah frère moo la ko jox yal na ko yàlla yërëm te xaree ko aljana adduna bi dafa ma koy jaal njabootam yëpp si une triste nouvelle non vraiment adduna bi daal moo ngi noonu moo ngi loolu hmm? yal na ko yàlla yërëm te xaree ko aljana amiin amiin amiin donc ci kanam gis nañ commentaire xalaat ci invité bi ñàkk faaw am. waaw ah, ma question ma question c'était pas qu'est-ce que de Mamadou Diatta c'est juste que. il faut que mënay def nii pour nga pour nga <laughs> mooy loolu. <laughs> invité bi waaw bi moom mënuñu si ñàkk wax parce que quoi qu'on euh, la fi président teg nekk moom moo koy euh, représenté. Euh, mu nekk parti boo xamante ne ñoom ñoo nekk parti au pouvoir ñoom nga xamante ne. Euh, continuité la woote war a aussi loo xamante ne dina tax sénégalais yi voteel ko euh, opposant ya sax boo gisee ku ci ñëw booy dal ci kawam ngay dal ndax moom mooy seen euh, principal opposant donc ñi ngi koy xaar mu ñëw bu ko defee ñu waxtaan ak moom ci question yi nga xamante ne sénégalais yi ñu ngi koy xaar notamment lan moo tax ñu war ko voteel fi mu toll nii ci dëkk bu nga xamante ne ñu ci bëri rupture la ñuy woote moom mu ñëw ne continuté xam naa du ñàkk bu ñëwee daal ñu waxtaan ak moom Euh, am question yu ñu ko posé xool moom it bu ñu ko joxee réew mi naka la ko nar a yoree euh, ndax fi mu toll euh, quelques jour moo des ci élection yi te yaakaar naa ni li mu nar a wax ci programme ci li muy waajal sénégalais yi lu soxal waa dëkk bi lay doon donc président Amadou Ba bu ñëwee ci kanam ñu gën a waxtaan ak moom rek gën a xool ban vision la am pour Sénégal di d'ici quelque jour merci euh, euh, Bijou donc ñu ngi xaarandi sunu invité et puis euh, ñu fàttaliwaat leen ni le 9 ak le 12 euh, dinañu amal ca Paris salon bu am solo boo xamante ni dañuy promouvoir teranga sénégalaise muy salon bu am solo diggante Paris ak fi nga xamante ni moo di Lyon. ak euh, ay jigéenu producteur donc rendez-vous bu am solo un événement de l'élégance passion ak séduction euh, di am ci dëkk boobule euh, donc ñu ngi encourager ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci nekk boobu ba tey voilà muy salon de la teranga sénégalaise donc salon de la teranga sénégalaise nara am entre Paris ak dëkk bu ñu naan Lyon le 9 ba le 12 ñoom ñu ngi Paris le 18 ba le 19 ñoo ngi Lyon tout était dans ton téléphone fan yii yëpp mais lakkal nga ma ak Oumy Ndiaye envoyé na la message vraiment Pape ba tey moom sa professionnalisme daf la réer quoi mais adduna amul solo xam naa dina xeex ak yow. donc je disais salon de la Teranga sénégalaise j'y reviendrai dans mes prochaines éditions à moi parce que yéen ma leen toppee dinaa xeex allez. suukaru koor yi la ñuy séddale léegi nii 88 676 07 07 pendant ngeen di daw di woote ba ñuy tàmbali waxtaan beeg président Amadou Ba euh, chroniqueurs yi ma nar a àndal tey ci quartier général bi ils vont nous rejoindre tout de suite maa ngi seen El Hadj Abdoulaye Der borom jàng yi maa ngi seen Charles Mou Françoise maa ngi seen mon ami Badara Gadiaga nu ci sañse yeeg teranga yi mbokk ndeyam Pape Diouf ak euh, suma xarit Matar Diop suba teel mais Matar Diop suba teel gëj naa ko dégg de. ñaari koor a ngi joxewul suukaru koor. ci campagne mu ngi ci dëkk bi. campagne day campagne mbaa du Amadou Ba lay campagne al. ñi ñoo bëgg Amadou Ba nag. oh là là Matar suba teel <laughs> nam naa la de <laughs> gëj naa la dégg lool donc ba dara gajaga maa ngi koy seen Malal Talla maa ngi koy seen Bouba Ndour maa ngi koy seen euh, ñoom laa nar a àndal tey ci waxtaan bi ñu nar a séq ak président Amadou Ba bu ca kanamee tuuti ci quartier général bi premier rendez-vous première émission télé euh, fii ci Sénégal premier animateur première émission télé première télévision ñetti premier daje boo ci boolee <laughs> deux yi day nekk cinq étoiles donc moi je suis cinq étoiles wala bon quel calcul lii moom xoolal <laughs> c'est trop dama lay meilleur animateur meilleure émission télé meilleure télévision plus les deux bons journalistes avertis Bijou et Mamadou Ndiaye ça fait cinq donc je suis un animateur cinq étoiles. dama lay fay mënul ñàkk. <laughs> réalisateur bi ne c'est le meilleur réalisateur mais on veut pas de six étoiles on ne réclame que cinq étoiles voilà <laughs> donc j'ai mes trois normaux l'émission la télé l'animateur plus les deux journalistes qui m'accompagnent je suis l'animateur cinq étoiles allez vingt 628 22 22 wala 88 628 04 05 ñu ndokkeel bu baax euh, sunu beneen kilifa euh, di euh, soxna Ami Mbacké mooy DAGE bu ministère des affaires étrangères maa ngi gis démb tabb goo xamante ni président Macky Sall tabb na ko ko def ko rang ambassadeur donc Ami Mbacké kor imam ñu ngi koy ndokkeel bu baax ma nga ca Touba waaye mu ngi liggéeyal président Macky Sall di liggéeyal itam président Amadou Ba liggéey bu am solo foofu ca Touba donc soxna Ami Mbacké ñu ngi koy ziar bu baax puisque Euh, moom euh, président de la république euh, dafa jël décision boobule nii la ñu ko defee madame Amy Mbacké directeur de de l'administration générale et de l'équipement du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur est levée au rang d'ambassadeur donc excellence Amy Mbacké ñu ngi lay ndokkeel di la ziar bu baax yow itam bokk nga ci ñi nga xamante ni ñoo jàppale président Amadou Ba mi nar a nekk suñu gan ba ca kanamee tuuti ci quartier euh, général. projet président mais loolu man sama mbébét la. xale yi député la ñuy wër rek poste président. il faut ñu nommer la ah tel pays l'ambassadeur euh, yu mag yi rek nag. <laughs> ñu dem Qatar. ñu gën a mag yi. boobu mag a mag la di. baax na de. mais. c'est des pays qui se voient la face c'est des pays qui se voient la face. j'adore la liberté. man dama dem ci ay dëkk ñu def VPN. <laughs> waaw dañ lay VPN. j'adore la ah la liberté. non États-Unis yow demal États-Unis. <coughs> États-Unis maybe. <laughs> maybe maybe. defal la ambassadeur son excellence. <laughs> mu ngoog et euh, dañoo nar a weexal jotaay bi ak njabootu Seydina Limamou. lépp rek ngir prôné jàmm ba tey euh, Pape Xaan Laay mooy sunu gan moom moo ñuy sikkaral euh, tout au long de cette soirée ci quartier général ci télévision Futur Média guddi na guddiwul l' essentiel mooy da ngeen di ànd ak ñun ba keroog ñuy xëdd ci euh, télévision Futur Média bu amee ay téléspectateurs ñu jël leen. man ndokkeel bu baax ajatu ki ne Ndiaye ak Omar jigo ci dëkk bu ñu naan Gambie Amina Savage maa ngi lay béggee bu baax moom itam suma suma suma suma suma xarit la. et puis j'embrasse mm, Vanessa euh, moom mu ngi Stras ak équipe yu maître Dathier xam nga tàndarma yi yëpp may ndogoo ci ñoom lay jógee am na plateau bu rafet boo xamante ni je vous je vous ai montré ça cinq et tout ce qui est euh, contact yu maître Dathier je partage avec vous dans mes réseaux sur Pape Cheikh Diallo Univers 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 na woote yi gaaw ñu mën a jàll ci ñu mën a jàll ci ñu mën a jàll ci waxtaan bekk président Amadou Ba sama xarit yi nekk Canada nee nañ ma loolu lañu bëgg excellence nga nekk ambassadeur du Sénégal fii <laughs> xoola liggéey bi taxul ñu yàkkamti ma ñëw de <laughs> ambiance bi ak sama neexaay. <laughs> ñooy ay nit yu bon. di ma gaawal gaawal ñëwal Canada. Moustapha Paye maa ngi koy ziar bu baax allez 88 628 22 22 na téléspectateurs yi gaaw ñu jox leen seeni suukaru koor na téléspectateurs yi gaaw ñu jox leen seeni suukaru koor yéen rek lay xaar yéen rekk lay xaar ay ca gaaw leen dina mel ni xale bu jigéen bi doon xuloo sànq waaw parce que Amina Poté day joxe ay day joxe ay ndogu. léegi nag joxe joxe joxe joxe joxe joxe ba ndog yu jeex xale bu jigéen bi ñëw joxu ko mu sippi ma histoire bi waaye yaa tax jox Amina Poté joxuñu suñu suukaru koor ma ne ko mais attends dafa jeex moo tax <laughs> te dafa yóbbante ay yóbbante la donc Amina Poté ak borom këram euh, Malick ñu ngi leen di ndokkeel depuis France euh, merci ci li ngeen di def di nuyu tamit euh, Alice Newman maak moom ñoo bokk fan si club Oustaz Pape Hann fan si club 5 minutes de Pape Hann mais tey nag ki ma yërëm mooy Oustaz Modou Fall Amadou Ba ñëw QG te Oustaz Modou Fall ko. donc oui euh, ko représenté. vocal bi du la ko yónnee. dafa la vocal kii dama koy woo téléphone xaaral xaaral ko bëggoon dama bëgg a woo balaa balaa chroniqueur yi di ñëw <laughs> lu toll ni Amadou Ba. vocal na si di ñëw QG Oustaz Modou Fall fekkeewul lii. vocal na ma. kii yàlla ma jël. <laughs> Fall du jël day bàyyi ba Amadou Ba ñëw toog mu doog ma sonal ak ay woote naa ma gisuma woon sa appel te moo gën a gis sama appel Oustaz Modou Fall ah kii maa ko yërëm lu tool ni bisu président Amadou Ba Oustaz Modou Fall ñëwul ci télé bi ñuy <laughs> envoyé message yéen bu ngeen foogee ni man damay tëgg tama boole ko waxatu dina leer <laughs> xoola woowu Modou Fall de ndekete yow laa doon woo man sama xel bi dem na de damaa xam. naax ñëw am na gàllaaj de. dinaa war numéro am est-ce que xam ngeen ni woowu ma woo woon Modou Fall Oustaz asan la yow laa doon woo di gis nga sa téléphone mu ngi sonné silence la nekkoon léegi xaaral ma woo bi xaaral ma woo bi bandi tey def nañ ko ko <laughs> te lii maa bi booy bandi. fexeel nag ba wax jàmm. salaamaaleykum ah, eh, eh, eh, aleykum salaam. fexeel ba wax jàmm dama laa mais libre ci télé bi laa la jëlee. lan. dama laa <laughs> nee na lan mais Oustaz. lu toll bis bi ñuy invité président Amadou Ba yow ñëwoo ci télé bi Oustaz Oustaz Modou Fall. Amadou Ba tey lay ñëw Pape. waaye yow dina mel ni ki ma wax sànq mu naa ma seen émission mi day am tey ma ne ko amul tey kan ngay invité ma ne ko xaw ma kan la te gis naa ni soo ba tey mu may woo. yow tax xam nga man gis naa avis bi mais comme démb dañoo avisé woon Mimi Touré dem ba ca biir ñu changé ko pour man dara safu leen. Mimi Mimi du Amadou de Mimi Jomaay la. Amadou mooy ñëw tey. Amadou mooy ñëw tey di. ban oustaz nekk Assane. Ah! yow xanaa seetaanoo télé bi Modou Fall Modou Fall bàyyi yëfi sénégalais déggoo ma ne la tey nit woo na ma ne ma ndax seen émission bi day am tey. non mais man nit woo na ma ne ma ndax da ngeen di ndax ndax ndax ndax ki ngeen di invité day ñëw tey. non man dama génnoon seetaanu ma mais kan moo fa nekk. waxuma waxi waxuma waxi seetaan àddina yëpp xam nañu ni quartier général c'est chaque soir àddina yëpp xam nañu ni tey. xam naa ne tey Amadou moom la ñuy invité mais yow lu toll ni bis bi ñuy invité Amadou Ba Oustaz Modou Fall tegoo si kàddu télé bi. nekk kan mooy sa ah? premier kan mooy <laughs> mais Fall dama la dama la haut-parleur Fall dama laa haut-parleur de. Fall. ah Fall. dama laa haut ngi waxee Assane waxal. Fall. Modou. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa waaye yow xam nga ne. Euh, buñ ne président Amadou Ba mooy ñëw quartier général. ñu ne oustaz Assane Seck la fi fekk. oui. yow yow loolu waru laa bett. waaw. yow loolu dara waru la see bett. <laughs> nee loolu waru laa bett lu toll nii Amadou Ba di ñëw QG Assane fekkee ko loolu waru laa bett. yow boo waroon ñëw sax moo tax nag affaire yi affaire yi Pape war nañ <laughs> parce que man sama ay ma waree ñëw def première partie wax dëgg yàlla ñi may moom dañoo yaru trop. <laughs> waaw léegi léegi dama lay may comme président Amadou Ba ñu ngi may xamal ni mu ngi ci loge quartier général yow boo fi nekkoon loo koy wax. Euh, li ma koy wax mooy ñaanal ko yàlla yàlla defal ko jàpp. d'abord mhm. beneen bi ci des it xamal ko ni gëj nañoo gisee. Mhm. Fall yooyu yëpp vocaloon nga ma ko. te itam namm naa ko te maa ngi feddali sama kóllëre suñu diggante. yooyu yëpp mu ngi si vocal bi mu ngi si vocal bi. léegi man xam nga lan laa lay promettre ah? xam nga lan laa lay promettre ah? bu Pape see bu naa na naa ko woo paas ko tey moom xoola bu yeboo yow nga may xalamal di ma waxal lu baax de may bind ay ay ay messages yu sedd sama xol. parce que boo Amadou Ba ñëwee mun naa ko mun naa la koo paas boo bëggee. ah yow de baax sa mbaax gi nag daa wër réew mi. benn carte nga yor koy votel kan laa koy votel ku dul Amadou Ba. Eh, man pour man man ngay wax. da xam ba pare. damaa xam. yow leer na ni Modou Fall mooy Amadou Amadou mooy Modou Fall. Eh, waay. <laughs> waaw baax na message bi jàll na dama la bëggoon ruube rek yaa oustaz ñu ngi lay gërëm mais namm nañ la torop yow boo gëjee ci télé bi du ñu kontaan saa yoo ñëwee ñëpp kontaan ñun ñëpp a ngi lay ñun ñëpp a ngi lay bëggee ñun ñëpp a ngi lay bëggee jaajëf yaa oustaz <laughs> mais oustaz oustaz yow oustaz aka gaaw a coupé boo demee ma nga kër Assis njaay <laughs> baa xam nga ni xoolal Baye Ndiaye ko yàq ci muy dugg yëpp Baye njaay moo ko ci dugal moom du coobare boppam maanaam Baye Ndiaye moo ko détourné yii ustaas bi def yëpp Baye Ndiaye da ko yóbbu du ko yóbbu vogue ci Wally Seck wa nix mal ma kii wul nix mal mawla bu àgg foofu kii day dem bay dem fii nii am na restaurant bu wuy wi di fréquenté je te jure mais je blague quand même c'est c'est c'est c'est c'est notre xam naa ni tey ñàkk teewaayam ci quartier général bi ah dina metti boppam mais bon noonu la cas bi demee daal kenn mënu ci dara 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 bu koor gi paasee nag li di Diop daan wax naan après koor gi après koor gi dañoo fas yéene ànd ak Pape Diouf Londres le 20 avril dañuy ànd ak Pape Diouf Londres. loolu nag événement la boo xam ne xam naa naa ci ñëw ci sama ay édition bopp nous reviendrons léegi dama am j'ai mes éditions à mois j'y reviendrai dans mes prochaines éditions incha allah voilà donc Pape Diouf ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak soxnaam bébé baas yaay Corombaar Ndiaye Seck ñu ngi euh, préparé donc dem fi nga xamante ni mooy Angleterre dëkk Oumy Ndiaye London le 20 avril man je serai à Londres ak Pape Diouf en tout cas xaw ma nag yéen mais en tout cas je serai avec lui ci ci Grand Béguet bu Londres je vous montre l'affiche euh, d'ici euh, tout à l'heure président Amadou Ba mooy nekk suñu gan bu ca kanamee tuuti ñu jëlaat seen i euh, woote 88 600 voilà restaurant bi l'amiral la tudd defe naa ñoom fa la ñuy fréquent dama am man dama am team. gis nga politiciens yi dañuy amee team ku leen di defal veille Facebook Instagram TikTok TFM ak yeneen télé yi ah ki la yónnee turu restaurant bëggul <laughs> sama xarit yi rek ay xaritu wayu laa àndal <laughs> Serigne Modou Serigne Modou nag sama sama sama sama sama fils la voilà mooy papa yu sama sama sama sët bi sama sët bi ñu ngi nuyu soxnaam euh, Mata madame Mbeng ñu ngi lay ziar bu baax Mata Mbeng Mata mu Serigne Modou ñu ngi béggee toute la famille et mon ami Chon Chon Angleterre Chon photographe Chon mu Londres oui bu ma dama leen di fekki ah le 20 le 20 maa ngi Londres de Pape Diouf lay àndal ay dama leen di fekki Pape Diouf lay àndal te yow yaay foofu léegi cinq étoiles bi pour mu mat foofu waaw mais ku mu neex ku mu neex mën nga ñëwaat ah, le 20 avril del confirmé del confirmé bu may wax ku mu neex mën nga ñëw cinq étoiles bi Londres la liveal. <laughs> c'est bon <laughs> ki yàlla ñu yàlla àtte ak moom papa ñëw na <laughs> kay ak grand boubou bi papa grand boubou la def tey papa ngi doog a ñëw donc moom la ñuy xaar mu ànd ak Charles Faye ànd ak Malal ànd ak Badara Gadiaga ñoom laa nar a àndal tey ci quartier euh, général bi premier rendez-vous infotainment bu ñu leen di jagleel ci euh, télévision Futur Média oustaz nag demaguloo de il faut ñu xaar nag ba. ba ñëw ba. ah. nee naa la bi ñuy commencé quartier général leen. nee la neuf ans. Eh. du neuf mois du neuf semaine donc <laughs> moom neuf ans. dañ koy xaar ba mu ñëw ñu dalal ko doon. dëgg la de incha lu na dal nañu si kër gi ndax moom. wallaahi wallaahi <laughs> wallaahi laajal bijou. wallaahi alfi. Eh? njaaye nga le. alfi ndeysaan. <laughs> et puis may ziar bu baax euh, naaru al bamba yaayu Cheikh Bamba. Khady Al Bamba borom euh, KM Prestige kaami li ngeen di gis ma koy maye yëpp ñoom ñoo ñu ko jox donc ñu ngi gërëm équipe yu. Euh, albamba yëpp ak KM Prestige am na ci kaamil boo xamante ni naa ko génne ci kanam keroog jox nañu Oustaz Pape Hann kaamil boo xamee ni xaalisu gal lañ ko defaree kaamil boo xamante ni 700000 600000 1 million la ñu koy jaayee donc ñuy gërëm bu baax. Euh, Khadi euh, naaru al Bamba yaayu Cheikh Bamba ku ci bëggati ñu personnaliser la sa kaamil wala sa ay xasida mën ngeen leen woo ci 77 712 71 71 77. 712 71 71 n'oubliez pas donc de réagir ci hashtag bi di euh, QGTFM wala QG QG9 ñu ngi xaar seen réaction ak seen ay question dañ ko jébbal bu ca kanamee tuuti président Amadou Ba tous aux urnes ci bisu élection yi loolu mooy leitmotiv bi na ku ne def ko slogan nga xam ni ci bisu élection yi bu ñu xëddee ba noppi bu ñu neexee sax bañ nelaw voilà ku nekk dem voté ñu tànn nag ki nga xamante ni moo nar a jiite dëkk bu metti bi nga xamante ni dafa toj bu ku ne yaa ngi war ku ne yaa ngi xool sa sa fellitu <laughs> sa fellitu damm-damm donc qui sera notre prochain président de la République on ne sait pas encore nañu dem voté ji loolu mooy dëgg 88 628 22 jëli carte yi surtout voilà mille laa bëgg a joxe léegi nii wala mille ban téléspectateur mooy dugg ñu jox ko léegi nii wàllam ci enveloppe yi nga xamante ne ñoo ngi koy euh, séddale bu ngeen duggee léegi nii ñu bégee leen et puis dem ba Kaolack. Euh, ndokkeel fa mu du Modou Ndiaye Rahma Modou Ndiaye Papa Djibi Modou rax ma nag moo bëgg président Macky Sall waaye bëgg képp ko bëgg président Macky Sall te ba mu leer ma ni bëgg na président Amadou Ba donc Modou rax ma ñu ngi koy ndokkeel bu baax. ki yàgg def social te barki démb rek maa ngi leen koy wax mu ngi ànd ak euh, xale transitaires yeeg xale yi nekk port kooku mooy suñu xarit Lamine kamara donc Lamine Camara euh, bëgg lool Oumou Tall madame Ngaydo Oumou Tall nag moom sama sponsor la à vie waaw moom xaarul dara pour def dara. moom ay jëfam moom saa yi ko defee mu mat donc ma dem madame Ngaydo ñu ngi koy ndokkeel bu baax waaye gërëm itam Lamine Camara ci taxawaay beeg social bi nga xamante ni moom la nekkee boo demee euh, boo demee dëkk bu mel ni Fatick at bu jot. daf fay joxe ndogu pendant tout le mois de Ramadan gàmmu yeeg màggal yi lu fa xew moom xaarul politique pour def lu baax. donc Lamine Camara ñu ngi koy gërëm bu baax yenn saa yi mbaaxam day tombé sax ak ay enjeux yoo xamante ni da foog ni lii moo tax mu def fekk loolu taxul mu def donc Lamine Camara ñu ngi koy gërëm bu baax. di ndokkeel itam Ibou Saw Ardo waa port yëpp ñu ngi leen di bëggee xam naa ni fi mu tollu tembe ñu ngi xaar euh, waxtaan bi ñu nar a amal tey ak euh, président euh, Amadou Ba bu ca kanamee lay doon paasaat leen ma ay téléspectateur ma jox leen. oh <laughs> ndeysaan man gis nga su may ànd ak nit ba mu xam ma dama koy bëgg a bàyyi ànd ak keneen li may wax yëpp damaa mar <laughs> jus bi nag xam ngeen nu mu tudd original jus bi mu ngi disponible fii ci Sénégal te ku ne war na koo mën a am dama leen di expliquer tuuti rek ci jus bi bu ko defee bu ngeen amatee xew comme bijou bi nga xamante ni njëkkee woo njëkkee ñu may ko cëroo cër ñu may ko léegi ay dëkkandoom sax dañ koy may ay cër évoluer nga nag ku jóg may ko cër ñii di ko tuddee doom ñii di ko may ay premier njëkke man daal xale bi jaaxal na ma ku ci amati xew na nga jënd jus bi nga xamante ni original la tuddu alors pur jus de fruits sans colorant sans conservateur canette originale avec cinq parfums orange mangue ananas pour ne pas dire ananas mën na dagg sama xol bi ananas cocktail pêche on dit pas gens on dit gens donc mangue ananas pour ne pas dire ananas lépp mën ngeen ko am ci canette bi nga xamante ni original la tudd donc boisson fruitée maanaam da nga koy naan fruit yu di des ci suuf boo paree fëgg ko sàq mi ñu ngi koy jaay fii ci Sénégal donc c'est un produit boo xamante ni Arabie Saoudite la jóge maanaam lii la naari di naan boo demee màkk moom la ñuy naan original waaye nag dañoo am ndukkumaan groupe ñoom ñoo dem ba Arabie Saoudite jëndal ñu jus original indil ñu ko fi képp ku am boutique wala képp ku koy jaay euh, ci grande surface bu la neexee nga woote ci service commercial bi bu ngeen ci bëggee tam ci quantité bu mag mën ngeen woote ci 77 644 15 67 77 644 15 67 mooy numéro ju original jóge Arabie Saoudite naar yi moom la ñuy ndogoo moom la ñuy serloo waaye Ndoukoumane groupe moo ñu ko indil fii ci Sénégal merci d'avoir <laughs> pensé à moi Modou Ndiaye Bale ban téléspectateur mooy dugg léegi nii fu internet ci toll ñu ngi réagir j'espère ah affiche bi jàllee ba nañu xaar père nañu xaar père doléance yi de bari na doléance dina bëri kay li nga doon tout est urgence ah oui lépp urgence la ba pare ñëpp a mer domaine bu ci nekk ku nekk ngi wax sa jafe-jafe eh, mais nekk na lu nga xamante ne actuellement depuis bi ñu defee affice bi daal gis nga ci réseaux sociaux yi. Mhm. Euh, internautes yaa ngi commencé poser seen ay question ñun ñii ñëpp ñun ñëpp ku ñuy ku ci nekk sa téléphone portable ñu ngi lay envoyé ay messages questions yaa ngi jóge fu ne waaye continuer leen di réagir ci suñu live Facebook ñu ngi euh, X ak hashtag bii di. Mhm. Euh, QGTFM 2024 wala QG9 mhm. ñu ngi YouTube actuellement ñu ngi en direct même sur TikTok bu télévision Futur Média am am ngeen possibilité interagir tey jii ci suñu gan gi di Amadou Ba jiite coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yi ñu jëm. ñu ngi ko jàpp 24 avril 24 euh, mars ci atum 2024 muy dimanche euh, tey daal lépp li nga xamante ni seen ay question la dinañ ko daal di taataan fas yéene koo jëbal tey si tey ji suñu invité di Amadou Ba El Hadj. ba ci tutaan ji ak journaliste qui n'a jamais réagi. Ah, nee na ma nuyul ma président Amadou Ba. xam moom dafa bëgg Macky Sall nag. ah, ah voilà dafa dafa dafa dafa bëgg Macky Sall bëgg président Dame Diop. waaye bëgg Ami Mbacké. mi mhm. ñu fal démb ambassadeur donc tout à ñu ngi koy ndokkeel bu baax voilà merci. très respecté il fallait venir depuis ah. monsieur le directeur merci ñu ngi lay gërëm bu baax bu baax. nga bëgg grand bu bam de ak waxu bi merci et mon ami Charles mon ami Badara mon ami Charles. ça va bien maa ngi merci de li mu sañse tey gëj na koo sañse. sañse yëpp rafet na bii bi moo dàqati. mais buuba kan moo kan kan kan moo la sagalatil. <laughs> waaw ni nga toogee a na mon ami Ablaye mais bienvenue ça mon ami ah, Babacar tout blanc malal mi sagal Mansour jëkkëru Aïssata et puis comme un hasard beaucoup de blancs ci plateau bi macha donc waxtaan bi la ñuy waaj dans quelques instants euh, président Ada euh, euh, euh, Amadou Ba mais c'est pas grave c'est pas grave mon ami Babacar. Babacar <laughs> yaa sagal Mansour nag. <laughs> mais yow yaa yaa sagal Mansour <laughs> yaa jàppale Aïssata allez on va démarrer donc waxtaan bi dans quelques instants bu leen fàttee su koor yi du ma hésiter ci di joxe. ci numéro de téléphone yi nga xamee ni mu ngi affiché wu ci euh, suufu écran bi Babacar Fall ñu ngi lay nuyu avec beaucoup de plaisir ñu àndaat ak yow ci quartier généralu tey bi tey quand même ñu am invité bu mag parmi les candidats il y a des candidats quand même ça il faut oser le dire. oui il y a des des grosses pointures. voilà grosses c'est ça. xam nga compétition bu ne day am favori am outsider. Mhm. mais tekkiwul ni outsider mënta mm, ñàkk a gagner. Mhm. tout est possible. surtout que genre élection bi ñu jëm dimanche. Mhm. Euh, affaire bi moom wadd na ci mbedd mi te ku ne mën na koo for. Mhm. et euh, on est content de recevoir le candidat euh, de la coalition présidentielle sortante. Mhm. parce que candidature bi. àndoon ak coow. bëri laxasu ci. beaucoup de questions maag gars yi tey pour moom pour laaj ko alors nu mu taxawee. parce qu'on est déjà vendredi à 48 heures. Euh, C'est là. Hein? Oui, Dugg nañu vendredi déjà. Ah oui, on est heures de l'élection. Donc euh, élection particulière, candidature particulière pour lui <coughs> ak euh, yi ci yi ci am yëpp les derniers développements suivre nga ko. Les deux candidats yi nga xam ne ñoom Sonko lañ bokk gëm-gëm. te ni Diomaye lañ doon jàppale te jaar fii ñoom ñaar ñëpp di Habib Sy ak mhm. Cheikh Tidiane Dièye yóbbu seen lettre pour euh, ne nekkatuñ candidat. Mhm. Euh, waxuma la sax rejeté parce que boo wee mooy lu ñu examiné mais ils n'ont même pas pu déposer les lettres c'est-à-dire que lettres yi sax conseil euh, constitutionnel recevoir ko il n'y a même pas d'accusé de réception. Ah d'après le mandataire. mais normalement je cite le mandataire de Habib Sy. ah d'accord d'accord donc euh, jotuñu sax examiner qu'est-ce que la loi dit ça gis naa Ndiaga Sylla mhm. expert électoral wax ni constitution moo may droit candidat bu ne nga ni bokkatuma. donc euh, lui cette décision du conseil constitutionnel lui pose problème mhm. euh, xam naa ça va faire euh, débat ça va perturber peut-être euh, le jeu de ah. Diomaye Sonko ak ñi ànd ak ñoom de mhm. la coalition Diomaye président en tout cas des choses à observer les prochaines heures pour pour voir ba xam voilà on fan la wànnent di mujjee gëtëm mais il ne reste que quelques heures pour élection yi ba ci ñun média yi on a encore ba ci kanam minuit pour clore tout ce qui campagne et propagande. oui minuit. sànq saa waa ji monsieur programme la. Ah. mi ngi fi wax affaire yu grave yoo xam ni xaw ma xam dañu ko attan dem ni mu nar a suba. c'est pas le ci tey sax man man bëgg a suba. c'est pas le nit ñi tam samedi vraiment. war ngeen wax ci moom tamit. <laughs> nga bàyyi nga bàyyi ndogoog xëdd ñëw uniquement pour téléspectateurs yu télévision Futurs Médias en tout cas merci euh, pour ça Babacar Fall Abdoulaye Der ñu ngi lay nuyu sa teewaay dafa am solo ci jàngat yeeg question yeeg séddale bi nga xam ni yaa koy séddale waxtaan bi li ma laaj Babacar laa lay laajaat tey itam on a une grosse pointure quand même comme invité jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu di ziar euh, téléspectateur Télé Futurs Médias yëpp ak askanu Sénégal ni nga ko waxee ak ni mu koy faral di waxee rek saa suñuy euh, tàmbali dañu dëgmal lu am solo ñiy laaj réew mi it bëri nañ ku ci nekk ñu bëgg xam nag euh, foo ñu jëmee euh, ba tax laaj ak tontu gi dox suñu diggante fii bu ñu fi ñëwee day am solo et comme ni nga wax ñi nekk ci nguur gi tey ñoom ñoo aye ñoo war a ñëw ñu war leen laaj ba ñu yoree nguur gi ba léegi lu luñ ci def waaye it euh, lan mooy seen bébét ci li ñu dëgmal Babacar Fall tamit dégg naa léegi mu wax lu am euh, solo et pour man jàngat bi mooy gis élection yi dafa bëri jàngat yu ñu ci war a def mais aussi ay joyanti ci début processus bi ba fi ñu toll nii ba ci tamit lii mosuñu ko gis candidat yoo xam ni dañuy dem ba ci biir di bàyyi. bàyyi gi mel ni mbàccum gerte wala tureek màlle ni ko ñeneen ñen non mu am non c'est vrai ñu jàngat si seet nu ñuy defaree code bi ba nga xam ni bu dee amul vraiment ngant mhm. bu sérieux bu la tax a bàyyi mhm. eh mu am daam lu la ciy fekk bu ñu bu ñu tollee fii te it ni may wax caution bi ñu seetaat ko bu doon ca njalbeen ba boo ñëwee bëgg jël feuille bi rek. Hmm. lañ la naan joxeel caution defe naa kon tamit du ñu toll fii dina am ñu bëri ñu mel ni man. nga xam ni yoruñu lu suukar baraada dinañ toog seen kër seen kër mais boo jëlee kayit bi ba pare nga xam ni dara du la ci fekk am na ñoo xam ne am nañ fitu dem conseil constitutionnel sax yóbbuwuñ fa 1000 parrain parce que boo ñëwee dañuy jël après la ñuy xool. donc je diir ci processus bi am na yu bëri yoo xam ni buñ de defee jàngat ci 2024 bi présidentielle bi li ci xew war nañ ci indi ay joyanti yu bëri bëri bëri ci code électoral bi defe naa loolu yëpp tamit mun nañ ko waxtaanee ak euh, gan gan bi puisque ñoom ñoo nekk ci nguur gi lan moo ciy seen gis-gis ak euh, la nga xam ni ci jooyanti war nañ ko ci mën a mën a def pap Cheikh. voilà donc loolu mooy nuyoo Abdoulaye Der mon ami Charles. j'allais dire Charles Françoise mais Charles Faye ñu ngi lay nuyu merci encore d'être là euh, tey ñu nar a passer encore soirée bu exceptionnelle ak téléspectateurs yi élection oblige mais candidat bi ñuy recevoir tey ñu bëri dañu koy xaar pour mu expliquer en détail jël taawam ci programme bi muy proposer sénégalais yi ci élection yi Charles. waaw jërëjëf Pape Cheikh euh, comme ñeneen nun ko defee moom euh, waxtu am la tey. ñëw fii euh, TFM si quartier général. pour expliquer comme ñeneen yi euh, moment bu am solo la parce que moment boo xamante ne pendant quatre heures quatre tours d'horloge. di nga toog expliquer Sénégalais lu bëri comme ça ñoom aussi ñu comprendre. et loolu moy lu normal. ci dëkk boo xamante ne démocratie mu ngi daw bu baax a baax. mais il faut dire aussi que pour ce qui me concerne. c'est avec un très grand plaisir parce que def nañu xaw ma si les gens ont conscience de ça mais pendant quelque jours jox nañu opportunité en tout cas ñu am jot a ñëw ñu am possibilité ñëw ñu may leen ñu wax te loolu indi na lu bëri faram fàcce ñi farañ faram fàcce def lii di def na le te dafa bokk si loo xamante ne moom mooy construire diversifier ba pare may ñi ñu gën a xam parce qu'une mm-hmm. opinion mm-hmm. elle a besoin parfois d'éclairage xam kan kan ak lan lay proposer kii est qui waaw pendant ces trois dernières années mm-hmm. on a souffert d'une dualité euh, mu nekk ba nga xamante ne ñëpp daanaka ñaari nit lañ doon wax loo xamante ne moo fi nekk ak loo xamante ne quasiment en face avec Ousmane Sonko et là on a permis mais vraiment avec une grande vitesse permettre ñeneen ñi wax ba mu am ay sénégalais yu jaaxle parce que dañ nekk ci réewu ndaw 75 pour cent de sénégalais bu ñu amee moins de 35 ans am na loo xamante ne bu ñu ko jàngul si livre wala ñett waxuñu leen ko ko xam mhm. et ça pour moi ça a été un grand plaisir une grande fierté et je félicite vraiment je vous félicite bu baax baax yow mais une grande félicitation à Bouba Ndour euh, vraiment à partir de vendredi ba samedi defe naa xaw ma dimanche am parce que defe naa dafa bokk si loo xamante ne dafa indi Sénégalais yi nu gis nu dégg gën a mën a def seen choix mhm. et ça c'est quelque chose euh, d'avoir participé à ça à ce moment-là demain lay jeex mhm. c'est vrai mais c'est quand même historique mhm. qu'on ait pu avoir dans notre pays et pour la première fois ay candidats di fi jaar am 14 lu ñuy wax seen programme voilà télévision privée à vocation publique xanaa c'est une mission de service, service public voilà voilà c'est vrai mais ça ne s'est pas passé ailleurs sant yàlla. sant yàlla. voilà nañu sant yàlla te ñu ngi doon wax si presse. Mhm. et je pense que c'est aussi un grand moment. xëy na léegi dafay teel. Mhm. mais koo xamante ne mooy nekk président presse mhm. dafa war a nekk place am. waxu politique waxu culture waxu euh, environnement waxu pétrole waxu gaz avec des journalistes spécialisés. xam lu ñuy wax. ak waxuma sax ñuy dimbal. parce que fu ñuy dimbali presse mooy que dëkk boobu amul économie. parce que finalement dogguma la loolu mënuma ñàkk di ko wax même les les autres télé. defatuñu sax pour les téléspectateurs mais dañuy jonkon di xool lu TFM di def pour ñu jéem a contrer TFM finalement ñoom liggéeyatuñu <laughs> liggéeyalatuñu sax di téléspectateurs dañuy liggéey pour xool bu TFM invité Charles fay ñu ne xaar ñu xool nu ñuy jëlee Babacar Fall il dort plus finalement ah. santal yàlla. quand même. nekk ci oto boo xamante ne ci kanam la ne il ne peut sa kanam rek nga mën a xool. mais dafa jar dafa jar di waxtaanee. pour nit ñi ko xam c'est euh, important. gis nga c'est très important. waaw c'est très important loolu tax ma ne gis nga santal yàlla parce que j'ai eu la chance de travailler avec des intelligences vives. Mm-hmm. ñu am intelli ku mel na buuba intelligence sociale doo ko ko mm-hmm. jàngal pragmatisme intelligence situationnelle dama yàgg liggéey ak moom. Mm-hmm. ne lui demande pas de dérouler mais l'idée tu l'auras avec lui. Mhm. Mhm. et ça lu muy won tey c'est que quand il est là à réfléchir quand ça fait mal dans sa tête xëy na ñeneen amuñu loolu ku nekk yàlla da lay may dara. Mhm. et ça c'est pour ça que je parle de fierté mais na nga sant yàlla. ñu lay copier. yàlla na yàlla def. du leen di copier. merci toujours copier. mais jamais égalé jamais égalé. jamais égalé merci. <laughs> merci Charles. 88 628 22 22 ma xoolaat fan la suukaru koor yi toll amaat ngeen tuuti temps quand même pour di woote ñu leen di jox seen wàll ci enveloppe yi nga xamante ni ñoo ngi koy séddale Badara tamit euh, mu ngi fii Badara ñu ngi lay nuyu béggati ci sa teewaay ci quartier général euh, li neex ci yow mooy kilifa yi ku fi ñëw rek da nga am relation bu particulière ak ñoom donc ça veut dire que miin nga politique yi ba ci candidat yi nga xamante ni ñoom ñooy laaj pour jiite réew mi mm-hmm. tey kii ñuy invité defe naa bokk na ci candidat yi quand waaw Pape maa ngi lay ziar. di kontaan di ñëwaat ci ëtt bi. di la wax comme d'habitude sañ seeti nga. <laughs> mais tey nag moom sama doom day sama doom day tey surtout Siré. non sama soo gi xam nga lu may fàttali. sama doom day tey Youssou keroog ba muy woy xam nga ñu Ndakaaru neex na. waaw loolu la ma loolu jox tey. <laughs> mais doom day tey foo jaar. <laughs> mais defe nga de mënul nga maa yóbbaale géew la waaye doon wax wax booy sikki sikkaale <laughs> waaw waaw <laughs> dugg leen fi YouTube bi xool archive sam benn copain Youssou ba muy way Ndakaaru <laughs> moom la mu moom la ma buuba jox lu bokk nuroo buuba sam benn copain li nga def léegi bu solee trois pièces danaan boo jubee nit ñi da ngay peese un kilo deux kilo trois aj dëgg la defaat un kilo deux kilo trois aj kon mais loolu la def léegi mais euh, sa euh, sant yàlla bu baax. Euh, lii def nag ma xamanteeg. Mhm. candidat yu bari yu fiy ñëw ak way mhm. politique yi. Mhm. sama particularité mooy un peu ñi fi toog ñëpp. ñenn ñi ay journaliste lañ. ñenn ñi nekk ci beneen domaine. Euh, mais man dama def politique. yow politique nga. waaw man dama def politique de 2004 hmm. ba 2005. baal ma Badara mais Pape ku woote rek même bu ñuy nuyoo nga paas ma ko nga dugal ko ma jox ko 200000 nuyoo bi itam war na mën a ànd ak allo may naa la 200000 sukkaru koor. ayca baal ma Badara waaw donc nag ci biir ni ngay defee politique xam nga ki nekk opposition tey mooy nekk hmm. pouvoir suba. Hmm. ki nekk pouvoir démb tamit presque da ngeen di dem ba da ngeen di liggéey liggéey ba da ngeen di nekk comme ay frère xam nga ngeen ngeen ngeen bokk lu bari bokk ay combat yoo xam ne mën a ngeen ko. Mhm. ba dafay am relation yu muy développé ah, seen biir. xam nga tey par exemple bu may jël kaaw benn malal rek. Mhm. presque jàkkaarloo boolewuñu. xamante nañ ci géewu défendre euh, la démocratie sénégalaise mener des combats de principe yoo xam ni bokk nañ ko. Mm-hmm. mu waral ñu xamee avant même ñoo ñëw ci plateau bi loolu moo may dal ci politique yu bari. Euh, élection yi ñu nekk nag pap maa ngi koy xool sànq ma ni am na tamit lu jar a sant yàlla muy élection buñ ci tollaan ci moment yii nii ci soit ci accident wala soit ci ay xeex ay bakkan daan na ci rot. naam dégg nañu ay quelques problèmes yuy am ci cortège yu dajee xaw a defante ay affaire mais ba fii ñu toll nii presque ñu nekk vingt quatre heure campagne bi di tëj bakkan rotagul ci diw jàkkaarloo naag diw ñu xeex ba bakkan rot te loolu am na fi ci ay campagne yu bari yoo xam ni am na ci campagne tamit yàlla dogal na campagne yu bari ci biir nit ñi ni ñuy dawalee war a dem distance bi jóge distance bi fekk fa say militant euh, ci biir baral boobu chauffeur yi di baral ay bakkan yu bari daan na ci maa ngi fàttaliku daaw rek bëri na candidat yu mu dal 2012 bëri na 2019 euh, am na candidat yu mu dal 2012 am na candidat yu daloon yooyu yëpp suñu borom musal nañu ci ren dafay ñëw nag ci le génie bi télé bi am mooy li ñu wax léegi Charles wax ko muy ni mu nekkee privé mais comprendre mission bu mu am pour le Sénégal moo tax candidats yi tamit war nañ leen laaj les télévisions privées yi nga xamante ni tey nan lañ leen war a accompagner parce que bu Sénégal soxlaa dëgg dañ ci indi seen loxo parce que tey Pape bi élection bi nekkee douze jours de campagne muy situation bu exceptionnelle bu mosul am je pense que ingéniosité am na boo xamante ni jàppale nañ yenn candidats yi ñu. combler gap bi nga xam ni am nañ ko nit ñi toog seen kër ñu egsi ci seen biir kër egg ci seen i biiri saal waxtaan ak ñoom ba gap boobu nga xam ni amoon nañ ko ñu mën ko récupérer à travers la première chaîne vraiment bi nga xamante ni tey Sénégal ñëpp moom la ñuy suivre. Mhm. émission bi nga xam ne tamit quartier général. Euh, l'ingéniosité a été aussi quartier général. ak ni ñu ko xamee ci diine mais en même temps garder caractère diine bi mais dugalaale ci tuuti fi ñu toll ci ci jamono ji ak moment bi muy campagne électorale ñu dugal ko ba sénégalais yëpp presque du ñu nelaw Pape dañu lay suivre ba ba émission bi jeex maa ngi la ciy féliciter Pape di ci féliciter mon frère Bouba di ci féliciter waa Futur Média yëpp jërëjëf. mu ngoog merci euh, Badara Gadiaga Bouba Ndour ñu ngi lay nuyu itam bu baax ci kanam ñu dalal président am am président Amadou Ba. Euh, waaye tey carte euh, général bi dafa tombé ak génnuk àddina koo xamante ni non seulement candidat la bu ñu recalé recalé woon ci élection yi mais yàgg nekk partenaire bu télévision Futur Média di Mamadou Yatassaye. waaw ah, jërëjëf Pape <clears throat> maa ngi lay nuyu di nuyu ñi fi nekk ñëpp parce comme. ñuy commencé habitué di ñëw tous les soirs peut-être dañuy gàttal nuyoo yi rek parce que sinon day day compliqué di nuyu sama sama mbokk axlu laayeen paparaan maa ngi lay nuyu nuyu ñëpp ah di la wax Laay Maktar di la dalal ci sa kër di nuyu Oustaz Assane di wax effectivement am nañu am nañu fierte aussi am euh, di vivre moment yu mel nii et j'espère que moment yu mel nii au-delà de élection présidentielle bi dina inciter euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, bëgg li nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk ñu bëgg koy téye ñuy di wax ak askan bi di leen nemmeeku pas que bu ñu amee campagne électorale mais tout le temps ñuy leen di wax ak ñoom pour ñooñu aussi mën a nekk en contact ak ñoom je pense que c'est important et je pense que en tout cas ñi fi jaar ñëpp ils bien compris message boobu saa yu ma solee nag grand bu bu nii bi gars yi di wax ba dara di wax daf may fàttaliku benn daf may fàttali ay anecdote xam nga Youssou Ndour nag dañoo yàgg tuuti waaw maanaam ci ci rakkam yi man maay góor maa ci mag donc grand bu rapport bi ma am ak moom mooy bi ma gënee nekk xale dama doon yàkkamti yuusu ci kër gi apartement bi mu kii bu fa nekk bu tukkeeg bu yooyu yëpp man maay dëkk ci appart maay nekk ci appartement ba mu dellu si léegi bu jiyee jiwaan Sorano xam nga poche yu rëy la daan def léegi fu ne la ko xaalis fu ne la gaa yi doon jox xaalis day ñoox a ñoox a ñoox a ñoox ñoox a ñoox a ñoox Pape Samba wane ma parce que lii histoire lay nettali nii voilà bàyyi ci li nga nekkee. yaa may dégg dama daan ñoox a ñoox a ñoox a ñoox grand maa ngi jéggalu nag mais non après bu ñëwee. sumi kii bi man maay compter. yaa ngi may dégg. maa ngi koy doog wax nii bu ma compter cent jël cinq dugal sa poos. duñ ma def dagan moom la may fayeeku nii moom la may fayeeku nii donc vraiment histoire laa lay wax nii te boobu. Eh, eh, yow li nga def Youssou. Mhm. ñun ñoo koy def. waaw yéen ma voilà xam naa ni yéen a koy def loolu xam nga lu muy wane. ñoo la koy def wel. <laughs> bu baax parce que xam nga xam nga loolu ndeysaan xam nga loolu lan lay wane. dama am sama sponsor. personnel. Mhm. waaw personnel moom la may def may gis ko du yow rek nag ñuy def diine ci ëpp. bu mu jóg kaw dama ciy profité. dama ciy profité. non non non non non damay profité. oustaz Modou Fall. Pape Anne. oustaz Assane. bon Seyda Faat Bintu sama xarit la. duma ko mën a boole ci affaire mais non non non bàyyi ma génne ko ci mais ñett ñooñu. ñoom ñoo li ma def Youssou Ndour yëpp ñu ngi koy fayee ak Pape Cheikh Diallo. kon bëri ngeen ci ay morom. ñun dañ am ay sponsor personnel. non yéen fu ne ngeen am. mais man bu man man j'assume. non non yow assumé nga mais macha allah dañ ciy profité parce que bu toll nii suñu amuloon sponsor yu ñu accompagner. c' est le lieu de les de les remercier. yu ñu accompagner gëm émission bi. vraiment euh, di ñu accompagner ñu ko mën a def. c' te loolu aussi. bu bu bu dix duggee. Mhm. ah mhm. nga jël zéro virgule cinq. Mhm. récupéré ko. vraiment su ma dee gor. dama naan alhamdulilah. parce que bëggee woo quand même. loolu moom mun naa la ko sedde <laughs> donc loolu dafa am solo di wax daal que ni boobu. xam nga grand bi bi muy màgg comme candidat bi dafa tardé. te dafa nekk di def euh, meeting. waa caravane ñu ñu rey suñu temps parce que il faut ñu commencer émission damay joxe ay anecdote rek. waa ñoox bi parce que ndeysaan grand bi. grand grand grand bi. ndeysaan ba pour mu am liberté liberté jóge jóge sama kër pàpp ak sama kër yaay dem dëkki feneen loolu beneen problème la woon mm-hmm. dafa am kilifa moom dafa amoon kilifa ba nga xam ni mm-hmm. bi mu demee ba nga xam ni ba boobu tur bi yéeg yéggi na dayo mm-hmm. li mu def mooy kër bi nga xam ni moom la ñu dendaloon ah? dafa jënd genn wàllu kër gi ñu toj mur bi mu def fa appartement pour mën a des ci biir kër gi loolu dafa dafa dafa lu yéeme la te boobu fu nekk àddina bi xam nañ ko. parce que il tenait à à rester ci kër gi. donc bu demee man maay dem bu duggee ci kii bi. ci léegi bu ñëwoon gaare oto bi am na benn BMW bu bees sàkk bu mu amoon. imaginel da doon bàyyi otoom ci biti bàyyi paa bi mu gaare otoom ci biir garage bi te paa bi xant la yoroon bi mais day day génne oto grand bi moom ci biti. ci moom rek laa déggee ak daya mu am. sama papa mu ngi ñëw papa sama papa ñëw dëgg la ci moom laa ko déggaate dëgg la moom dañuy reytaan rek mu ngi ñëw a mm. tout la may fàttali mm-hmm. léegi maa naan sama xel nag heureusement que Philippe ma nga États-Unis Fadi dafa dem ma njaga màggagul <laughs> bay bëra ba mooy ba may jël kii. kon bu doon heure bii di nga am ay fis yu fay quoi xanaa xanaa yaayu njaga te yaakaaruma ko. <laughs> donc daal waaw eh, buuba yaayu njaga ay reer yu neex yi. waaw waaw waaw deseeroo fan waaw kon waaw donc vraiment kontaan kontaan di wax que ni vraiment. Mm-hmm. lii moom bu ñu liggéeyee rek. Mm-hmm. ñun ñëpp. je pense que. Mm-hmm. yàlla mën nañu dimbale. incha allah donc li li credo bi li ëpp solo ci nit. Eh. pour man te loolu lay candidat yeeg ñëpp war a inculquer ñëpp. Mhm. mooy nañu liggéey. Mhm. suñu liggéeyee tak xar suñu tànk tubéy. Mhm. concentré jël suñu responsabilité. dans tous les domaines yàlla mën nañu dimbale donc je pense que loolu moo ci ëpp solo. merci. voilà. maintenant pour gagner du temps ñu ngi may wax ni euh, caravane euh, président Amadou Ba soreetul ak locaux yu télévision Futur Média il va donc nous rejoindre d'un moment à l'autre ci plateau bi pour ñu tàmbali waxtaan bi Pape nga baal ma rek Yatasaay xam nga moom nga ma njëkk a laaj Mamadou Yatasaay waaw Mamadou Yatasaay waaw waaw vraiment nit ku baax mhm. nit ku baax euh, ñun ñii maanaam naan gars yi jàkkaarloo temps yi ñu koy def ni yëpp buté yu ndox ndox yu rafet yooyu ngeen doon wax Yatasaay moo ñu ko doon yónnee moom moo ñu ko doon yónnee vraiment nit bu amoon njëriñ la. surtout ci milieu culturel bi. Mm-hmm. bëri na ay artistes yu nekk fii tey jii ni wóoruma gisuma gisuma Waly Seck mm-hmm. gisuma Pape Diouf gisuma ñooñu ñëpp mm-hmm. gisuma ñoom Bijou Ngoné ñoom euh, Alima pouponnière yi vraiment si quelqu'un boo xam ne danaan jàppale le monde culturel et artistique donc ñoom ñoo perte quoi donc vraiment mu nekk nit di ko jaale Kals aussi vraiment bëggoon na ñëw ci plateau mais daal nit ku baax dem na. Uh-huh. nit ku ku ubbeeku. koo xam ne lépp lu mu am rek daf ko bokk. jeudi image yi ñuy wane ni jeudi bi passé la. moo nekkoon invité RFM matin. ku baax. voilà jeudi bi passé la nekkoon euh, invité tey ñu dégg génn ko àddinaam ñu ngi koy jàll encore une fois njabootam yëpp moom Mamadou Yatassaye ni ñu ñàkk sànq moo tax euh, dañuy apaiser avant. président bi di ñëw euh, di Amadou Ba mooy suñu gan tey Pape Rane moom moom la dénk lépp lu jëm ci wàllu sikkër ak. mais Pape da nga mere malal euh, ah, doon seetlu rek sama waa ji cest à ma rek waa dàq ma waa dàq ma waa dàq rek. léegi dama bëgg ñu régler problème boobu. la dernière fois am na kuy expliquer affaire café Babacar Fall ma c'est le moment nga dugal café bi. ab Ablaye de naan comme un hasard tout est dans ma tête <laughs> c'est pas pour rien ngeen teg ma fii quoi. non non ñu ngi ñu jéggalu rek après si ça je mais déformation bi ma lay li ma lay daj fee ci sa nopp yi rek laa lay wan. fii ah bu ma la koy def sa nopp yi doo ko bañ. <laughs> léegi dama doon bàyyi ba daaneel ci présentation wu Pape Khane doog a nuyoo malal. mi nga xamante day dóor de. moo sagal maa barke si kii gëm naa ne buy dugg àjjana euh, kii àjjana. buy dugg àjjana ñu ne ko doo dugg nii bu dë bu dëppee affaire bi waaye da ko naan damaa jiw maa ngi jégal. waaye waaye barki xaadimul xaddim lu jëm ci présentation télé du ma ci du ci def loolu dama doon waaj dem ci malal barki borom Touba. billaahi waaw gëm naa la rawal wallaahi dama doon waaj a dem ci malal mais. Babacar maa fatigué la dernière fois kooku indi histoire u café rek jugalal café bi c'est le moment. <laughs> finalement ni ma ko bëggoon defee sax neexul. c'est comme quand Bouba en fin d'émission il me dit maye bi bu ko fàtte maye bi. <laughs> quand même. bu fekkee yooyu da ci euh, parce que parce que li nga xamul nag. <laughs> Pape wuy ma wuy ma da nga sonn de. soo dogguma quand sa tonalité voix bi nii da son sonn xam <laughs> non ma ni. parce que ci la jëm commencé na sonn. da ngay rek te nga xam. gis nga bu sonni wax tuuti toog di nelaw. loolu yegg seegul yegg comme day ruube rek ñun dañu ko nekk moom rek. yàlla yàlla baax na bon continuons l' émission balaa balaa invité bi di ñëw Malal ñu ngi lay nuyu yaa sagal Mansour. Pape yaa jàppale ay sel. yes merci waay ah. ñu ngi euh, jaale mbokku Yatassay. moi j'ai pas eu la chance de le connaître. musuma ko sax gis ah, mais fan yee passé bi ñuy commencé def un peu des émissions si report bi mm-hmm. élection si jàkkaarloo mm-hmm. il a toujours insisté en m'envoyant des messages pour ma wax ni que recalé yi mm-hmm. dañu war a taxaw clairement ne ñoom d'accord ñu si report bi quoi il avait même fait un texte dans ce sens quoi donc nit la woon aussi boo xamante ne ndaw la mais aussi am sañ-sañ am bëgg-bëgg yàlla na ko yàlla xaare àjjana di nuyu ñu nag ci plateau bi yëpp di nuyu grand Charles di nuyu euh, imam Assane di nuyu Der di nuyu ñëpp di wax ni suñu appréciation un si ci campagne bi parce que campagne bi quand Badara wax na ko defe naa Badara wax na ko euh, jàmm la ak salaam lañ ci gis c'est comme si on ave appris de weesu en termes d'événements chauds et que campagne bi nit ñi ils ont appris à se ressaisir quoi. et que y a une bonne ambiance de campagne y a la culture dedans tout le monde bouge sa intéresse tout un chacun. Mm-hmm. c'est-à-dire on, on en parle beaucoup. Mm-hmm. donc vraiment en attendant ñuy xaar suñu invité. Mm-hmm. Euh, war a waxtaan mais man après dinaa leen lébal benn léeb bu tudd dox rasé. <laughs> dox rasé mais dooñu ko may léegi nii. c'est que dafa am benn grand bu doon jaay mu ngaa ngaa suñu koñ quoi. bu doon jaay lan mu ngaa ngaa. luy mu ngaa ngaa. mu ngaa ngaa mooy ñax mu bon bi xale yi di. suuf te ah, baaxul ah yow xam nga mu ngaa ngaa bis. oui mu nga booy xam nga grand bi la. mu nga grand ah, grand bi da ko doon bu bu defaloon cornet yi da ko doon suul quoi am nga géejawaay daf bëri suuf quoi. mu nga nga. léegi bu ko suulee amoon suñ benn copain ndeysaan léegi yëmbal dëkk Pocho lu tudd quoi. Pocho mais Pocho dafa yaboon grand bi quoi. Pocho day fekk grand bi suul rek Pocho commencé def nii genre sulli affaire bi quoi. bu ngaa ngaaye. grand bi ne ko Pocho eh dox rasé. <laughs> moo gën dox gas. <laughs> mu ngaa ngaa mais mu ngaa ngaa yaa am ba tey wala. ah non loolu la <laughs> loolu moom la mais Seydi Gassama bu Amnesty International Sénégal. Uh-huh. Euh, sulliwaat na débat bi yàgg na ko wax temps yi sulliwaat na ko. Mhm. nee na pour arrêter consommation de trafic beeg lépp. Mhm. il faut ñu légalise ko. mais pourquoi c'est légalisé dans d'autres pays. waaw yu ñu ëpp doole. pour man c'est et pas et prohibé. il faut pas fermer la porte au débat. nañ ko analyser rek xool. parce que bu fekkee il faut qu'on nous invite alors pour ñu participer ci ñun. argument yi mu joxe bokk na ci ne. Euh. bu ñu ko légaliser. Euh. trafic dootul am. trafic et cetera bon bref après nag. boo ko boo ko légaliser ah, parce que dans des zones parce que dans des zones comme New York. non non dem ba dëkk bi sax day xeeñ affaire bi mu nga nga. non oui oui débat boobu moom kenn ko fi ubbi. débat bi fan la ah, déedéet pour que ñu ubbi débat. waaw euh, mais non si on est. ah, ah non non mais du bu boobaa on est on est on est des hommes libres. ah mais ñii duñ ko fi nangu. non non nangu ñu ubbi débat bu bon yàmm mel naa ni maa nga koñ ba fële li nga légalisa kenn waru ko fee nangu sax kenn waru ko fee nangu waaw kenn ko fee nangu quand même waaw bon ubbi débat boobu kañ xaw ma fa lañ ko ubbee waaye du fii waaw du fii de légalisation yàmba du fii lañ ko ubbee der eh, du ñu ubbee fii légalisation yàmba yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal ah, ah. buuba xëy na ñoom Pape oui mais mais mais Der je pense que c'est des ah. sujets yoo xamante ne ci mhm. ci jamono. nit ñi dinañ ci waxtaan lu jar a waxtaanee la kanam incha allah Pape Cheikh Pape Cheikh wax nga ko sànq mais damay jéggalu rek. Euh, di dellu wax ngeen ko. jaalewaat euh, waa Tiwaawan yëpp. ak euh, dëddu maam Ousmane Sy ah. oustaz defe naa wax ngeen ko bu maam Abdou Aziz Dabakh. maam euh, ñu ngi koy ñaanal. yàlla dolli koleer leer. si. waaw jege woon na ma trop ndax dafa dëkkandoog samay cousin mhm. euh, à la Médina ñoom Cheikh Ba. Mhm. Cheikh Ahmed Tidiane euh, Ba. ñu seen kër yi ak Jaba Amadou mhm. Jaba. ñoom ñaar ñoo jàkkaarloo kër maam Abdou bi nekk foofu donc Médina ci ci angle bi juste en face la ñoom kii dëkk donc miinoon naa foofu trop. ñu koy jaal donc njaboot gi di ko jaal askanu Sénégal ak umma islamique yëpp. di kon ñaan yàlla ñaanal yàlla dolli ko leer c'est avec beaucoup d'émotion qu'on le dit ñoo ma ko fàttali léegi nii rek. jërëjëf. ok alors ko ñu ngi doon waxtaanee mu ngaa ngaa quoi mais tënk nga débat mu ngaa ngaa bi <laughs> peut-être pour une prochaine fois. Mm. merci Abdoulaye Der Paprane Lay Maxtaar ñu ngi lay nuyu di la ziar bég nañu ci sa teewaay tey ci quartier général bi dañu lay waaj a jox kàddu gi <coughs> bu ko defee nga. Euh, nuyoo ak sunu xarit yi mais ñu profité ci fàttaliwaat leen ni suukaru koor yi li tax ma ci insisté daf leen soxal et que jamono dafa naqari 200000 koo ko jox mu jël bu amee ay téléspectateur ngeen paas leen léegi en attendant invité bi di ñëw di ñu fekk si euh, ci euh, plateau bi Paprane yow la ñuy bàyyi nga nuyoog téléspectateur yi am loo ñu may ñu léemoo ko jotaay bi laataa ñuy tàmbali waxtaan bi lay maxtaar bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن

rabbi la ilaha yónneen la ilaha yabal yoneen wuyu leen yoneen laay laay lay Maxtaar kontaan nañu ci ubbite bi si sikkar si neex lool dugg ci ay xol ñu ciy bégal képp kuy wuyoo lay Mati lay Ka Laay Maxtaar ñu ngi lay ziar bu baax euh, Fat Kourou depuis France moom itam ñu ngi koy ziar bu baax lay maxtaar mu mel ni nag euh, sunu invité daanaka yegsi na pour ñu tàmbali waxtaan bi ak moom président Amadou Ba mooy ganuk quartier général tey ku ne xam ne ni l'actualité reste marquée par présidentielle yi nga xamante ni ñoo ngi koy waajal président Amadou Ba candidat présidentiel 2024 sunu gan tey ci quartier général ñu tàmbali waxtaan bi juste après cette page de pub. waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM yàlla inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha sunu borom ne bokkaale laa dul jéggale mais bakkaar lu mu diis diis diis diis lu mu rëy rëy rëy rëy man yàlla maa koy jéggale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeem suñu borom nee na jullit yi ci sa barke bu nu may tooñ di ma jéggalu man yàlla ma di leen jéggal wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfiruun kon nag fukki fanu njéggal yaa ngoog bokk Sénégal yàlla ñu yàlla jéggal Ah, original neexal pot te na gu original pur jus de fruits orange mmh. mu yéen ananas nag eh mbay lii cocktail bi moom hmm. mango moom da ngay di saqami original original moo leen di wéttali si seen xew-xew ouvre un nouveau bonheur à chaque gorgée di naan di sàqami déet bul bàkkar ñi nag <laughs> rek la ñuy topp originalement prêt à redécouvrir la magie intense d'un produit d'exception une seule goutte pour prendre le contrôle de votre cuisine. Des arômes, du goût et des saveurs incomparables. Faites gronder le tonnerre qui sommeille en vous et réveillez-vous en chef cuisinier. Laissez-vous emporter par nos produits variés pour vous transporter dans l'univers culinaire réinventé de Caddy. Agrémentez vos fritures, vos marinades et vos sauces avec nos savoureux produits faits de vrais ingrédients. Idéal pour toutes vos idées culinaires. Faites-nous confiance et maîtrisez votre cuisine. gën a jege sa ay mbëbët kon boog dem ci ba jeex kaas ci kaw kaas bés bu ne tàmbalee ak cawarte jeexalee ak yokkute Nescafé ci biir weeru koor gu sel gi ñëw leen gaaw xool suñu offre yu spécial yi nga xam ni moom la ñu am ca DSL Dekakila ngeen mën a profito ci suñu promotion spéciale weeru koor ñu wàññi leen 10 pour cent suñu machine à café yi wala ngeen defar seen thé yu toog ak suñu bouilloire yu rafet yii wala suñu thermos yi suñu mixeur yu mën yi wala suñu air fryer yi ak suñu micro yu pratique yi ak suñu four électrique am na ñu tamit ay cuisinières quatre ba six feux ay cookers minutes yéew leen xool suñu barbecue yi nga xam ni da nga siy def këriñ wala à gaz machine à toaster pour defar panini wala pizza suñu réfrigérateur ak congélateur yi nga xam ni dafa mën a denc fekk leen ñu suñu showroom 77 201 07 12 wala 78 711 87 52 wala 77 750 32 05 wala 77 680 14 75. ju nekk am na lu koy aar ci biir ak ci biti jëmm ju nekk am na luy ubbi wërsëgam saabu jant soobee jëmm ju nekk am na lu muy tàmbalee ngir xewal yu saawaan baawaan man Oukayaa ndox mi bàyyeekoo fii ci gox mu naat moom laa taamu ndax xéwal bu nekk am na lu koy sabab wërsëg bu nekk am na lu koy yombal te xol bu nekk am na lu koy seddal Kayaar dafa neex ma ma ne ndekki waay xoyal ci sa kaas ndaanaan ñaar ñu mën a bëri ñaar ñoo xamante ku ci nekk def nga sa ay preuve fu laak fayda ci sama gars yi na waaye Sénégal ñu xool ndaanaan ah kuréel roog seen. di tan connexion yi booy gàlloon rek. connexion Serigne Thianoum a faga. man yéen seen connexion jeex na newoon naa leen dem leen ci promobile moo ko yor ngeen ban léegi nag affaire bi fee la. ñëw leen fii la. bëre bëre bi muy bëre musuma koo gis ci boo xamante ni. nii nag booy joola dugg na sa bopp wax naa la li muy bëre bàyyi ko xel prise lay indi boo eh, xamante ni nii mësta am. daan eh, eh, na ko jël bu rëy bu amul benn yoon te nga ni. promobile yaa mën yaa bu doole yaa gën a fay a Besoin d'un taxi Il est dans l'appli. Tu ne cherches pas. Tu prends ce qui est à toi. Tu ne vas pas une fête, tu es la fête. Tu n'y vas pas simplement, tu y vas avec Yango. Téléchargez l'appli aujourd'hui pour profiter de courses à partir de 600 francs CFA. Nous facilitons les échanges commerciaux, acheminons ce dont le monde a besoin, là où il en a besoin. Imaginez tonnes de noix de cajou, produites, conditionnées et distribuées du Sénégal vers le reste du monde. Parce que lorsque les échanges commerciaux sont fluides, de nouvelles opportunités se présentent. <laughs> DP World, change what's possible. mbokk yi di peinture muy xollee ko mbaa muy furi xewin peinture bu baax bokk na ci liy sàmm seen bâtiment TQG indi na leen ay peinture colorado yu mucc ayib ànd ak qualité pour yanjal ak sàmm seen kër bii mooy colo sud colo sud def di peinture lavable saa yu la neexee mën nga raxas sa façade te day ar seen bâtiment mii taw mbaa mi naaj du ko tax a soppeeku te itam mën nga ko am ci couleur yu bëri bii nag mooy colo yéen ñi soxla peinture bu weex tàll te du xal mi ngi nii sakkan na mën a dem ci maçonnerie ci boiserie wala ci plâtre peinture buy jaay weex Colo Vinyle 900 moo la mën Colosane moom bu ngeen bëggee peinture bu lisse lavable mooy bi gën Colosane bu Colorado dañ ko liggéey muy peinture bu mën a dékku taw naaj ak poussière te du soppeeku moom Colosane baax lool ci bâtiment yi jege booru géej moisissure mënul ci moom dara granito doon na peinture pour extérieur wala intérieur u bâtiment granito mën a décorer sa façade ba mu rafet ci couleur bu ba noppi protéger sa bâtiment ak colo granito ak Colosane bu Colorado disponible chez TQG di nga aar sa bâtiment taaral ko ba noppi sakkanal sa poche TQG Kër Damel extension rond-point Parcelles Assainies unité 26 TQG 65 rue Ngalandou Diouf TQG 84 rue Ngalandou Diouf TQG route nationale après croisement Saly TQG 28 ci wetu grande mosquée bu Touba TQG Kër Massar rond-point Gouy route de Diakhaay TQG Wakam ci wetu Brioche Dorée TQG la qualité mooy suñu doole TQG moo leen di ñaanal weeru kooru jàmm Touba ameublement ku ko xamul dégg nga ko liggéeyam dafa ànd ak jamono xool leen yile meuble de qualité médine in ñii ñooy Touba ameublement xarañ lool ci meuble am nañu ay salon en tissu velours des salons en cuir authentique ci couleur bu la neex ay salon capitonage ay huit places ak ay salon sur mesure bu leen amati benn jaaxle salon marocain terrain yi ngeen bëggoon mi ngi nii ci dimension bu la neex téléphone 77 555 64 78 pour une maison qui vous ressemble contactez Touba Ameublement au 77 430 02 02 vous voulez un style de meuble unique des produits pour sublimer votre intérieur ay chambre à ci ay design yu raar fii la am ci Touba Ameublement ñu ngi ci rue 3 angle Blaise Diagne Médina en face stade Iba Mar Diop téléphone 77 431 03 03 Touba

Bichri moo leen di ñaanal kooru jàmm. Leila Evans Co, le spécialiste des grands événements, décoratrice de renom. Leila Evans and Co la grande diva de Nord Foire kooku mooy borom décoré mariage ba ku ñëw ci mariage ba di seetaan kooku mooy décoré ngénte ba ku ñëw ca ngénte la di seetaan dîner de gala bu ko décoré ba décoré entrée ba loolu yëfam la cocktail bu la ko defalee nga ne kii moo mën décoration amul lu mu amul ci wàllu matériel bu la defalee sa conférence wala sa conférence religieuse nga xam ne Leila Evans and Co moo la liggéeyal anniversaire wala concert la defalee concert nag dalay defal concert bu mucc ayib ba defal la son et lumière tegal la écran indi la ay chaise VIP indi la chapiteau indil la moquette en gazon indil la ay fumogène muy saxaar ci entrée artiste ba indil la ay feu d'artifice réew mi yëpp Leila Evans and Co la ñuy wër ci wàllu décoration ci wàllu événementiel Leila Evans and Co 77 563 34 34 ou le 77 330 42 06 kenn du Leila Evans and Co. ak bouquet canal plus yii dund leen koor gu sell ak chaîne yi gën bu leen dara rëcc ci chaîne religieuse yu mel ni Touba TV Al Mouridiya Mourchid TV Asfiyahi Lamp Fall ak Malikia TV chaîne sénégalaise religieuse yi dañoo xew ci biir weeru koor gi rax ci dolli ñu ngi ci bouquet canal plus yi dem leen léegi gaaw abonné wu wala réabonné wu ji ngir dund mbégte seetaan programme yi gën a neex si télé sukkaru koor daal canal plus rek moo ma si doy Vous êtes particulier ou professionnel Notre cabinet de conseil en assurance Jolof Assure SA vous propose des solutions adaptées à vos besoins pour vous accompagner au quotidien. Nous avons l'assurance automobile, l'assurance moto, l'assurance vie, l'assurance habitation, l'assurance entreprise et l'assurance voyage. Contactez-nous au 77 235 75 75 78 581 85 85 78 529 11 11 ou au 33 868 50 21. Jolof Assure SA, votre assurance de proximité. ndugg bu jàmp wala loo nam jaratul ngeen di déplacé wu ak application Yassir da ngay toog fi nga toog commandé lépp li la yitteel si sa supermarché ñu livré la ko ci lu gaaw rax si dolli ñu baaxee leen ay produit yu am solo lool ci njëg yu gën a neexati Yassir dina la livré ci diiru ay simili yu néew bés bu jot diggante huit heures si suba ba minuit looy xaarati téléchargeel gaaw application Yassir kooru ren ji ay xéwal rekk la ak Yassir ci diiru weeru koor gi yépp livraison bi doo leen ci fay dara Yassir la vie facile. Sénégal ñëpp a bëgg ñëpp a fier ndax lu rafetee ni mësta am Sénégal fii la ñuy wax kër Khalifa textile 2KT mu lay jaay en gros bépp xeetu tissu ana tissu ba nga bëgg yaa xam gros yaa xam détail waaye boo yegsee ci suñu place kër Khalifa 2KT textile nekk fii ci Parcelles Assainies janoo ak station totale bu joor ci rez-de-chaussée bi maanaam ci suuf di nga fa fekk wax basin riche fil à fil brodé voile brodé lépp loo xam ni rek da di xeetu tissu boo premier étage ca espace VIP ba di nga fa fekk ay tissu de mariage ay til ay jipir original pirxa original lafaya tissu pour homme qualité supérieure yooyu ñoo nekk ca kaw Getzner boo bëgg ca qualité supérieure am na fa deuxième étage ba nag lépp luy rideau décoration pour kër ak bureau ah dama ni kër Khalifa textile sagal nga Sénégal Sénégal yëpp nga sigil lii nga def biir Parcelles Assainies en face station Total Dior ñëpp ci fier kër Khalifa textile 2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 يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا xale ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara baguñ dara seetu Sénégal TFM waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seen rabbana la ilaha illa allah hasbuna la la برحمتكم ما أغرب يا سليم من الكرامتكم ما أغرب يا سليم من الكرامتكم ما أغرب يا سليم من الكرامتكم ما أغرب عليك يجي من الكرامتكم ما أغرب من الكرام وتكون أكرم كجيك من الكرام وتكون أكرم من الكرام وتكون أكرم boy Abdoulaye Baye Abdoulaye yaa sëriñ soo jazaaka boy Abdoulaye Baye Abdoulaye yaa sëriñ boy jazaaka Baye boy Abdoulaye Baye Abdoulaye yaa sëriñ soo jazaaka boy Abdoulaye Baye Abdoulaye yaa sëriñ soo jazaaka Baye boy Abdoulaye Baye Abdoulaye la ñu bàyyi lay jox la la jox layla ila la ila ila la la ilaha illallah xale naan bu fi yemoon sax neex mais a fee am ndax gan gi day doog a yegg si président Amadou Ba mooy suñu gan tey ci quartier général lu mu guddi guddi da ngeen di ànd ak ñun ba keroog ñuy xëdd merci euh, ci ànd beeg quartier général premier rendez-vous infotainment bu ñu leen di jagleel ci télévision seeni réaction ñu ngi koy xaar ak hashtag bii di QGTFM QG 9 euh, wala QG 2024 ñaa xarañ loo wala ñaamu Amadou Ba wala bo ñaamu Amadou Ba jaajëf waay merci euh, ñu continuer aussi xool fan la téléspectateurs yi toll pour euh, li ñuy séddale sànq ba tey jëm ci ay suukaru koor 88 628 22 22 ak yenn numéro téléphone yi nga xam ne ni mu ngi affiché wu noonu ci suufu écran bi ba ci bii ngeen di gis 88 676 07 07 je sais que fi mu ne am na effervescence ci réseaux sociaux yi parce que grosse pointure la ñuy am. et que ñi ngi commentaire ñi ngi hashtag ñi ngi posté ñi ngi posé question. effectivement ni nga ko waxee noonu la demee déjà sunu chaîne YouTube bi actuellement ñu ci bari comme ni li xew léegi mooy télé ci poche yi euh, chaîne bi ñu baree nga fa toog fi mu nii di xaar ci suñu live Facebook bi pareil ci euh, X bi nga xamante ne hashtag bi di QG9 wala QG TFM 2024 effectivement ñi ngi xaar doléance yi bari na wala question yi bari na ñi ngi jóge fu ne euh, internet yi di interagir en attendant ñi xaar ci ki nga xamante lañ fa yéene daal di amoon Amadou Ba ngir mu indi ci ay leeral en tout cas doléance yeeg questions yi El Hadj depuis bi ñu defee affiche bi ce matin ñi ngi euh, interagir di euh, poser seen ay question ngir xaat indi ci ay leeral ay wala ay tontu. mu ngoog merci euh, Mamadou Ndiaye ñu xoolaat fu téléspectateurs yi toll rapidement ci woote yeeg jot suukaru koor yi 88 628 676 05 05 paas leen ma. Euh, ñaar ba ñetti téléspectateur gaaw balaa président Amadou Ba di yegg si euh, ci plateau bi ñu mën a tàmbali waxtaan bi ak moom jébbal ko yenn ci ay question c'est vrai que ñoom candidats yi noppaluwuñu benn yoon parce que dañuy nekk à cheval entre jaar yi ñuy jaar ci plateau yi plus euh, caravane yi nga xamante ni boobu ba tey ñoo ngi koy organiser c'est normal campagne beek ni mu xatee tombeek weeru koor ak carême je pense que ñoom profité nañ ci quand ku ci nekk déroulé li nga mën a déroulé li ci des mooy moom ci teewaayam. président Amadou Ba déroulé moom itam li fii ñi fi jaar ñëpp def te ñu ngi jëm ak yéen ba suba wala ba ci kanam vendredi bu min wi jotee ci la ñuy dakkal lépp lu jëm ci propagande ak campagne je pense que Babacar Fall ce serait bien itam ñu fàttaliwaat téléspectateurs yi vote dafa am mode d'emploi du nu la neex ngay demee du heure bu la neex ngay dem c'est-à-dire y des conduites à ci ay élections. bu dee bu dee ci waxtu yi muy tàmbale bi muy jeexee boobu moom leer na. huit heures lay tàmbale jeex dix huit heures. huit heures ba avec de possibles petites dérogations. ok euh, léeg-léeg bureau yéex a ubbi. Mhm. Euh, ñu ni euh, dix huit ba teg nangam. wala léeg-léeg mu tardé waxtu. Mhm. la mu tardé léeg dañ ko ci dañ ko ci dañ ko ciy ah, teg. mais buñ ko ci tegee itam. Mhm. ba kenn nekkatul ci buntu bi de vote bi. dañ koy arrêté. donc voilà. plus maintenant euh, vote nuit ndax boo jëlee tànnee xob ki nga bëgg a woteel dugal ko ci enveloppe bi. Mhm. waroo mhm. boo ko coller rek sa bulletin nul la. Mhm. sa vote baaxatul. donc euh, boo ko coller mooy lan boo ko. moo boo tafee boo jëlee enveloppe boo dugalee bulletin bi. ah amoo droit <laughs> amul. li gën a li gën a wóor bañ sax li nga dugal ci biir watt da nga jël langet bi maanaam li tëjukaay bi. waaw nga dugal ko ci biir ah. pour sécuriser sa sa vote. ça je savais pas. sinon leneen lu ci doon lu mu ci doon rek bulletin nul lay doon. ah d' accord. Wow. est ce que am naa droit par exemple sol t-shirt Amadou baax dem voté mukk mukk ñi nga xam ne am na candidat yoo xam ne ñoom ay bracelet la ñuy takk. ok bracelet la sax boo ko takkee. Euh, loi bi da koy tere. ah ça c'est bon euh, que ah, dem faak noonu ñu génne la fa après nga euh, yi nañ ci seen i seen i militants. man déggum benn candidat yedd ci seen ah, militant. ñoom ay ay campagne les tous les signes ostentatoires yi wane ni da ngaa far fenn. dañ koy mhm. aaye ci bërëbu vote yi. Mhm. dégg naa itam. oui yooyu yëpp ci la bokk mooy pii si euh, euh, fii bool sax ak Elisabeth Diouf boolu tegale yi amoon. tegale yi waaw. sama maam Kiné Diouf moom la amoon. <laughs> ak Ami Cissé ñoom moom lañ daan sol tey rek am naa sama benn jigéen bu ma seet seek wax su Amadou Ba. Ah, di ma di ma kii di ma jéem a jënd. <laughs> donc euh, am na ay sew sew yu am ci biir boot bi. <laughs> Uh-huh. Euh, loi da koy euh, da koy da koy aaye même média yi c'est très difficile à gérer boo nekkee ci antenne nga koy xam. Ah, je pense qu'il vient d'arriver là. il ah, est kër gi. Amadou Ba yegsi na. voilà tardement bi nag xóot na. ah mais écoute <laughs> yëpp mais bon dinañ ko ko baal ndax caravane bi. caravane bi waa dinañ ko ko baal mais nag mais nag techniquement. Mhm. waxtaan wax dëgg ca la su ma doon équipe campagne Amadou Ba. Mhm. dem bi mu dem Pikine ngoon te am rendez-vous. ak télé. ak bu important da nga koy bëtal. waaw quand même boo après problème bi mooy c'est-à-dire quartier général écoute euh, <laughs> ñàkk fee. ñaar sax wóorul c'est euh, lu ñu xat xat xat xat xat ñu confirmer sa jaar ci quartier général munoo muusa ko wànne ba ñu bañ ko li ma ci jaaxal. macha allah sur parce que je suis très curieux ci li Mamadou. non tu es très digital faut le dire. <laughs> tu es très digital. plus de 32 000 euh, sur YouTube. Euh, ah. jamono ji li 34 000. instant bi donc. Euh, Facebook bi fi mu daan toll waxtu bi da nga gis nit ñi di bàyyi ndànk-ndànk parce que dañuy tëdd ak yooyu. Mhm. mais euh, Facebook bi fi mu toll nii kawe na kawe boo xam ni. ça veut mhm. dire que l' émission est tam dee koy dégg ah dañuy décrocher Facebook pour taal seen télé xam nga léegi suñu télé yi moo ñu mooy suñu kii nu mu tudd mooy suñu médiamétrie voilà <laughs> Facebook mooy suñu médiamétrie mais fay yi moo leen di yeetal merci beaucoup Magnès télé yi moo leen di yeetal en fait. dañ koy fàtte ci xayma gi voilà parce que loolu kenn mënu ko revendiquer fi ñu toll nii maa jiitu ci seetaanukaay télé classique. Ah. merci. tey Dieynaba euh. Seydou Ba amul benn jot. la ilaha illallah tey mu Amadou Ba. yow naka njëkk bu ma la gis gisuma la QG laa xam ne ànd nga ak Amadou Ba mais c'est normal et puis je je je maa ngi béggee seen com seen communication yëpp. bu euh, président Amadou Ba suma suma suma frère euh, Khadim Dia Khadim Dia nga xam ne ñoo bokk benn euh, ñoo bokk benn papa Bousso Bousso Adja je t'embrasse très professionnel aussi moom itam yàgg ànd ak président Amadou Ba Khadim Dia mu Alaaji Bay Dia ku ma xam-xam ne Alaaji mbay Dia papa la woon ci man moom itam bokk ci euh, cellule communication bu président Amadou Ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm quoi ça c'est mes amis quoi ça c'est vraiment mes amis euh, euh, Dieynaba Seydou Ba on a on a le même père quoi son père Seydou sama papa moo ko jàngal nu ñuy tiré fetal je pense que président Amadou Ba war na yegg si oui c'est un père qui c'est un père des classes de guerre ma noppi ah voilà donc président Amadou Ba yegg si actuellement ci plateau bi xam naa ni Lamine Camara fi mu nekk war na kontaan ndax président Amadou Ba rek la bëgg je pense à plein de gens yoo xamante ne fi mu toll tembe ñu ngi concentré wu di xaarandi ñu tàmbali waxtaan bi ak suñu gan li Babacar fal naan grosse pointure moom la ñu am tey président merci d'être là. ñu ngi lay gërëm ci nii nga ñu nangulee tey doon ganuk quartier général ñu fas ne waxtaanee ay ponk yu am solo beaucoup question yii internautes yi ñoo ñu ko yónnee yii sénégalais yi ñoo ñu ko yónnee ci suñu ay téléphone li ci des euh, moom la ko journaliste yi nara a ak moom plateau bi di ko ko jox ñu profité ci tàggatoo ak Oustaz Assane yaa ñu ngi lay gërëm. rendez-vous ak yow bu ca kanamee incha allah. jërëjëf El Hadj Baye Cheikh yow itam ñu gërëm la gërëm ñi ñu bokkal plateau bi yëpp fa tabarakallahu euh, di dalal bu baax fa tabarakallahu monsieur le président Amadou Ba ak ñi mu àndal ñëpp ñoom Ichaar ñu ngi ne la Mouhamed saar bu Adja Bili ak ñëpp ñaanal ko yàlla. yàlla defal ko ndam fekk ci làmmeñam ci li nga xamante ni moom la ñëw ngir waxtaan si ak sénégalais yi mhm. suñu borom subhanahu wa taala mi nga xamante ni rek moom mooy maye ndam yàlla jàppale la si defal la si lu kawe sa njort mhm. si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. na merci beaucoup yaa Oustaz bu ngeen paree ñun pare nañu pour tàmbali waxtaan bi ak président Amadou Ba ma bàyyi équipe yi ñu installé ko bu baax euh, Cissé Sidi Ibrahim Cissé merci ci liggéey bu am solo bi ngeen di def ci ginnaaw peut-être ñun la ñuy gis waaye yéen yéen a ngi xar seen tànku tubéy pour que programme bi mën a am qualité par rapport ak ñi koy seetaan ci seen i téléviseur wala ci euh, plateforme yi ak euh, hashtag bi di QG9 wala QG 2024 président ñu ngi lay nuyu kontaan lool ci nii nga ñu nangulee doon ganu quartier général bi ñu annoncé sànq ba tey nii yaay doon sunu invité dañu gis ni sénégalais yëpp Euh, dañ ci euh, dem ak engument bu doy waar ce qui veut dire que attentes yi bëri na ñu ngi xaar sa ay kaddu ñu ngi xaar itam nga tontu ci question yi nga xamante ni jóge na ci wàllu wu ne fii ci Sénégal li ñuy njëkkee rek mooy bàyyi la nga nuyoog sénégalais yi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal ñu ngi lay nuyu président Amadou Ba. jërëjëf maa ngi leen di fay di di leen sant di leen gërëm di jéggalu parce que xaw guddi. Mhm. waaye activité politique yeeg jamono ji ñu toll rawatina jamono campagne électorale daanaka respecté waxtu day jafe ndax boo demee nit ñi di la xaar te fuul yi amul discipline daanaka doo nekk li ci tubaab di wax tu n'es pas maître du temps mais nag maa ngi sant bu baax bi ma ñëw fii tey jii waxtaan ak yéen profité aussi ci waxtaan ak sénégalais yi di leen nuyu yéen ñi fi toog fas yéene seq ak yéen waxtaan wi mhm. di nuyu sénégalais yëpp di nuyu borom kër gi Youssou Ndour yàlla dafa def aussi muy sama kóllëre bu yàgg mhm. xëy na bi ma koy xam ak léegi ñuy demlante ëpp na mhm. ñaar fukki at bu tuutee ba tuuti wala sax fanweer kon moo ñëwee ba ci biir këram it war naa ko sant nuyu ko voilà voilà est-ce que campagne ci weeru koor yomb na di nga am temps wu par exemple ngir campagne ci weeru koor moom jafe na lool xam naa ni expérience bu bees la boo xam ni ñun ñëpp ñu ngi ciy jàng. Uh-huh. ndax uh, uh, dafa xaw a tàng. Uh-huh. surtout boo duggee ci biir réew mi. Uh-huh. nit ñi aussi boo bu la yàlla dimbalee nit ñi di la di la topp nga war di wax ak ñoom di saafonteeg ñoom di nuyonteeg ñoom di wax uh, bu xawee. bu naaj bu demee ba ay trois heures jot moom day xaw a métti loolu daal. wallaahi xam naa ni kooru séeréer yi moom je pense que bi yoon. am na lu ci rax ko. ndax demuloo ba mu yàgg ci bëccëgu weeru koor nga ni xaaral nga naan ndox. ah waaw yenn saa kay da ngay bëgg a yëkkati <laughs> ñaari. <laughs> tey par exemple yaa ngi jóge ci caravane enchaîné ci télé bi est-ce que jotoon nga am temps wu ndogu. non ndogoogu ma parce que tey dama xëy dem Casamance. waaw mënu ma woon def campagne ba mu jeex te dawuma Ziguinchor. Mhm. li ma jógee Ziguinchor euh, xaw naa fa yàgg tuuti. Mhm. amoon naa activité parcelle. Mhm. maa ngi leen di jéggalu j'ai dû annuler activité boobu. Mhm. dem Pikine. def caravane Pikine def meeting. ñibbisi il y a peut-être vingt minutes trente minutes. dama changé wu rek ñëw parce que aussi bëggu moon aussi doon xaar loolu gën a yàgg. mu ngoog moo tax ndogu TFM vert jaune ak rouge la. moom la ñu lay jox balaa ñu tàmbali waxtaan bi ñu xool ndax dangay lekk Sénégal wala dangay ngay proposer leneen Sénégal donc ndogu baa ngi nii. mais seen ndogu ndogu bi moom. comme jotuloo ndogu ndogu bi vert jaune rouge nii ñu la ko tegalee nii lan la lay inspiré président. vert jaune rouge de moom mooy sunu sunu sunu mooy sunu drapeau mooy li ñuy mandargale Sénégal. Mhm. ndax foo dem ci àdduna boo gisee verte jaune rouge. Mhm. ak étoile bi nekk ci digg bi muy étoile bu verte. Mhm. sa xel dafay nekk ci Sénégal. parce que loolu la ñuy xàmmee Sénégal boo demee bitim réew même ci biir réew mi. Mhm. muy lu ñu war a fonk. ndax mënuñu am lu ëpp Sénégal. muy lu ñu war a téye ndax ñun ñi ñëpp bu ñu mënee toog fii tey di wax walla mën a def leneen yàlla daf ñu def ñu doon ay sénégalais. kon amuñu lu ëpp Sénégal amuñu lu gën Sénégal. Euh, bu ñu nekkee nag ci weeru ko daje ci émission bi mel nii. li may njëkk a def mooy ñaanal Sénégal. na nañu yàlla dool li jàmm. amiin defe naa ni programme politique moom li ci jiitu. ci sama gis-gis mooy ñaan yàlla jàmm ju mot sëkk. ndax projet boo mënti am ak programme boo mënti am lu mu mënti doon boo amul jàmm ju mot sëkk. Euh, boo amul jàmm gëm naa ni def ko dina jafe. te gis nañ ni léegi ci àdduna. rawatina sax ci biir euh, ñun ñi ñuy dendal. jàmm mi ngi fi xaw a tumuranke tuuti. gis nañu ay réew yoo xam ni demoon nañu ba ñu ci ñoom yaakaar. bi ñu tàggoog jàmm te jàmm ñàkk tàgg tàggoog jàmm jàmm bi jógee ci lu yenn sax sax ci lu tuuti. ba finalement réew ma day yàqu. wala ña fa yàqule bari lool. moo tax drapeau bi dañ ko war a mandarga war ko fonk. wan ko xale yi ñu xam ko bu baax a baax a baax. Euh, mais au-delà du drapeau. mooy bu ñu bokkee mbir muy Sénégal bokk réew mi euh, yàlla ci coobare boole ñu fi ñëpp ñuy ay sénégalais. Mm-hmm. mu mënoon ñoo def feneen mais fii la ñu def kon fi nga xam ne yàlla daf ñu ko boolee teeg ala kulli yàlla dañuy dem bàyyi ko fi dañuy fexe ba mu baax fexe it ba jamono ji fi nekk mu doon yokkute ba nga xam ni ñeneen ñi ñëw ëllëg. fekk fii li gën ñu def fii en tout cas li gën ñun liñ fi def. Mm-hmm. ñu nit ñu mën cee def loo xam ni moo gën moo ëpp ñi fi nekkoon liñ fi def ndax loolu mooy réew muy jëm kanam. incha allah Ablaye Der ñu tàmbali waxtaan bi. gagner du temps ak question yi. oui dans le vif du sujet. Mm-hmm. président Amadou Ba ñu ngi lay gërëm di la sant ci wuyu wuyu si bi on peut dire que déjà c'est l'heure du bilan. dans quelques heures ñu tëj campagne électorale bi minuit incha allah boo doon xayma. yaa ngi ko wax sànq nga jóge Casamance dem ba Pikine <coughs> def nga un peu partout le Sénégal boo doon indi xayma ba nga teg sénégalais yi lan ngay def ci bilan sa campagne électorale. jërëjëf bi nga dugg maintenant ci volet politique bi. Hmm. am na koo xam ni bëggoon naa ko jaale ndax dañoo wax mot na ñeenti fan wala juróomi fan mu yatta saay hmm. euh, man xawma ko personnellement mais kilifa gu ñu boole. Hmm. bu ñu waxtaanee mu. amoon yéene ñëw jàppale ma ñu jàll jël rendez man sax maa faussé rendez-vous bi ndax boobu maa ngi ci ay déplacement à l'intérieur du pays ma xaar ba ñu bisi fii ci Ndakaaru pour mën ko gis sànq ci bëccëg bi ñu ne mooy yàlla def na li gën moom mooy yàlla jë yàlla moom na ko kon bu mu ñëwee ba fii war naa ko jaale ay mbokkam jaale ko Sénégal yëpp ndax moom it amoon na yéene jiite Sénégal bindu woon na pour nekk candidat yàlla dogal nag euh, xëy na dossier mu jéewul euh, jàll amoon na kooku mënuma ko bañ a euh, bañ a jaale maintenant bu ñu ñëwee ci bilan en tout cas man sama wàllu bopp gën naa xam Sénégal gën naa jàng Sénégal parce que xëy na yàgg naa liggéey ci administration yàgg naa wër ci biir Sénégal mais campagne électorale maa koy doog a def foofu ngay mën saafonteeg nit ñi yenn saay mu gaaw yenn saay mu yeex tuuti parce que di nga romb fen ñu téye la nit ñëw diis la soxla boo xam ni société bi yëpp la nit ñëw diis la soxla boppam c'est ça la diversité mm-hmm. parce que ku nekk ak euh, fi nga toll ak euh, lii sa lii sa lii sa lii sa lii sa xalaat mais euh, lii sa xalaat mais li ma gis li ma gis mooy sénégalais yi bëgg nañu démocratie sénégalais yi bëgg nañu dem élection sénégalais yi Euh, bëgg nañ di tànn seen i kilifa maintenant mu ànd rek jàmmoo et ça c'est c'est quelque chose que j'ai beaucoup suñuy population du ñu ay population yu violente du ñu ay population yuy ay euh, non euh, gisuma loolu ci er, campagne bi en tout cas particulièrement li ma gën a gis plutôt moom mooy ay chahut saa sax nga dajeeg nit koo xamante ni bokk leen boor mu am geste boo xam ne tu comprends que bokk leen boor yow aussi nga xaw a insister tuuti wax tuuti après tu vois que nit ki ci boppam euh, euh, au-delà de tout nous sommes des Sénégalais li mais gis naa ci quand même boo xamante ni en tout cas ci suñu euh, man xalaatuma ko woon gis naa ni en tout cas Benno Yaakaar et peut-être au-delà de Benno Yaakaar ay Sénégalais lii nga xam ni tey nekk nañ ko candidat di outil jiite réew mi am nañ ci yaakaar en tout cas j'ai vu partout partout des foules xam naa ni yéen seen télévision yi ñoom ñoo gën a mën a yéen a gën a mën a apprécier mais ce que j'ai vu c'est des foules énormes yoo xamante ni euh, du ma xam la moo leen andi parce que le kenn préparé wu ko parce que campagne bi dafa dafa gàtt d'une part d'autre part ce programme sax munoo ko euh, joxe daal ci lu yàgg en tout cas moi j'ai pas pu le faire la preuve fi may waxee ak nii waa Kër Massar ñu ma doon xaar mais il fallait faire un arbitrage ba finalement demain maa ngi xool ban heure la fa mën dem demain donc bu ñu génnee demain alors que tey génn nañu Pikine il m'attendait à 15 heures je suis arrivé là-bas vers 21 heures. waaw euh, Casamance bon je suis parti par avion effectivement pour mën a dem euh, ñëwaat mais bon euh, bi ma yeggee Ziguinchor. affaire Cap Skirring le temps d'arriver euh, ci lieu bi ñu waroon a dajee ci biir Ziguinchor il y avait tellement de monde que c'était euh, c'est deux heures de temps ou trois heures de temps finalement doo nekk doo moom sa agenda mais li ma gis daal mooy y a un réel engouement des Sénégalais ci sunu candidature. Charles bismillah. waaw euh, jërëjëf jërëjëf de je pense que jot amu fi donc mode fast track lay doon. am euh, am naa ñetti euh, question euh, di kalaat le candidat je ferai pas l'outrecuidance de faire du Mitterrand à Chirac <laughs> je serai le candidat Amadou Ba pour la présidentielle de, dans deux jours ñetti question balaa may ñëwaat. Mm-hmm. benn bi constat bu ma def mooy que am am na quand même trois inspecteurs yoo xamante ne des impôts yu ngi si jotaay ga mooy est-ce que à quelle sauce va-t-on être mangé si impôts yi parce que <laughs> koo gis daal am na le défaut de sa formation te waa impôt impôt lañ mën a daaj donc est-ce que ñun suñu impôt yi dina jóg yan impôt ngeen di indi fiscalité foncière et d' ainsi de suite deuxième chose mooy am na candidat boo xamante ne jot na wax si sa richesse defe naa loolu tey aussi c' est pour toog xool sénégalais yi est-ce que Amadou Ba et cet homme riche qu'on dit en beneen affaire bi mooy que bu ma xoolee le bilan damay ñëw j'aime bien les chiffres 3 euh, 984 milliards de déficit de la balance commerciale la dette moom 76 virgule 6 pour cent bu dee juumuma sur 17 000 milliards lu ñu am suñu exportation yi toll na si 3 200 et quelques milliards importation yi toll si 7 200 et quelques milliards bu ñu ñëwee si population yi si sociale 67 pour cent des Sénégalais vivent avec moins de 900 francs par jour ainsi de suite ainsi de suite bu ñu xoolee loolu mun nañ kontaan ñeneen yi mun nañ wax mais loolu mooy bilan bi tey 12 ans après le bilan c'est celui-là nga d'une manière ou d'une autre am foo koy représenté ba pare nag di laaj Sénégalais yi seen baat est-ce qu'on va vers un changement demain bu fekkante ne nit ñi jox lañ le réew bi l'inversion de la tendance fan la mën a toll lu muy toll ak fu ñu jëm et peut-être tout de suite quelles sont les premières décision yoo xamante ne da nga koy jël des élus merci. jërëjëf Charles en fait éléments yi nga boole yëpp boo ko li tubaab di wax agencé noonu euh, buñ ko bëggee rendre du am signification parce que boo jëlee éléments yi nga xam ne dafay con enfin balance commerciale bi la loolu mooy diggante jënd ak jaay bitim réew. kooku li ko def mooy sunu structure économique ni mu bindoo ni ñuy consommer ak nit ñi suñu diggante ak bitim réew. foofu la euh, balance commerciale bi nekk. Euh, boo jëlee maintenant euh, boo duggee ci budget bi jël budget foofu nga mën a waxee la question liée à ak les autres questions liées à la à la, à la fiscalité. li nga njëkk wax mooy ay inspecteur des impôts ñoo ci daje mais c' est c' est une bonne chose ça signifie qu'on est qu'on est bien formé à la base euh, impôt doon doon doon administration sax boo xam ni c' était très politisé euh, ça aussi il faut que ñu relativiser ko xëy na am na ci tey ñaar ñett wala ñeent ñu ñu fës mais boo jëlee population bi nekk impôt même ci administration bi yëpp même li ñuy wax politisation de l' administration nga jël chiffres yi jël nit ña fa nekk nga jël ña fay politique ma ni cinq pour cent de des admi de l' administration fiscale ñu ngi politique gëmuma ko peut-être aujourd'hui administration des impôts y a peut quoi mille cinq cent enfin j'ai pas le chiffre exact parce que bi ma fa jógeeg léegi les chiffres on beaucoup évolué et j'ai pas suivi mais boo jëlee euh, mille cinq cent agents en moyenne peut-être tu as personnes yu fës ou soixante personnes yu fës parce que administration yi c'est le reflet de la société comme aussi dans la société dans son ensemble aussi ñii euh, politique bariwuñu maintenant c'est vrai que bu ñu duggee ci benn corps boo xam ne on est 200 ou 300 nga jël ci ñett ñoo xam ne ñu ngi compétir effectivement ça fait beaucoup de bruit maintenant ci wàllu politique fiscale yàlla def na am naa ci expérience parce que nag yàlla dimbali na ma nekkoon directeur général des impôts et des domaines code général des impôts bi am tey jii il a ans mën naa wax ni man maa ko def wala boog maa ko sooke te directeur général des impôts man maa lancé woon euh, réforme bi objectif yi ma ci amoon à son ñett la woon mooy efficacité effectivement fexe ba xaalis bi gën a bari simplicité fexe ba calcul bi euh, gën a yomb ak transparence c'est-à-dire fexe ba règle yi boo ko boo koy boo koy jàngat doo am interprétation yu bari je pense que cet objectif a été atteint en tout cas en partie et que jot na fi mu nekk ñu amaat beneen euh, fiscalité boo xamante ni bi may def déclaration de politique générale annoncé woon naa ko parce que fiscalité dafa war a dëppook ni koom-koom bi bindoo or bi ñuy def code général des impôts dafa am loo xam daf ñu manqué woon mooy defuñu woon un recensement général des des entreprises xamuñu ko woon on l'avait pas et loolu li muy jur mooy boo defee say projection def say calcul nee naa def nangam bi boo demee ba appliquer ko da ngay gis leneen lu wuteeg loolu moo tax bi ñu demee ba 2017 2018 ñu defoon benn euh, euh, defoon rebasing changement de base sunu euh, produit intérieur brut defaat benn recensement général des entreprises ba tey jii xam nañu exactement li nekk Sénégal et ça c'est important maanaam tey jii mën nañu wax ni Sénégal li fi gën a bari mooy. ñii ñëw tey man xaw ma ko woon xaw ma ko woon bi avant avant recensement bi cela veut dire quoi c'est-à-dire booy def fiscalité doo intégrer données boobu parce que jàppoon naa ni tailleurs yi bari parce que surtout temps boobu importation yi bari na euh, jigéen ñaa ngi dem ay Dubaï ay Turquie prêt à porter pour man métier wu tailleur mi ngi doon wàññeeku mais bi ñu defee recensement bi on a vu que tailleur a ëpp après on a vu que les métiers de coiffure na ci topp ensuite les métiers de pêche et on a vu que le secteur formel li nga xam ni fa la li ëpp ci alal ji di jógee ci wàllu impôt portion bu tuuti la donc da ngay am tendance u teg leen lu ëpp au au au en tout cas au détriment des des des autres alors loolu yëpp ñun bu ñu ñëwaatee jàngat yoo xam ne xam nañ ko kon bu ñu koy defaat dañuy fexe ba gën ko gën a mën a répartir gën a mën a séddale impôt parce que bu loo xam ne munut a ñàkk parce que ci la réew mi di dund buñ ko séddalee de manière équitable du diis ci kenn mais bu nekkee xamoo li ngay séddale xamoo ni tey yi ñoo ëpp xamoo ni lële moo ëpp booy séddale rek mën na am ay manquement je pense que ci fànn fànn boobu c'est une question boo xam ne j'ai bien préparé sax parce que bi may def déclaration de politique waxoon naa ci boobu ba tey ñu ngi ci doon gëstu mais ça va nécessiter une concertation ko defewoon ci jamono jooju mooy woo tous les acteurs ku nekk ci sa corporation bu ñu paree ñu xool lan mooy doon ay équilibre parce que réew mi li ma jàpp mooy ci ay équilibre lañ ko war a ci ay waxtaan diisoo échange parce que kenn amulu donwu parce que am nga telle responsabilité wax lu la neex wala def lu la neex il faut que lépp ñu di ko ñu di ko ñu di ko ñu di ko ñu di ko waxtaanee maintenant loolu bu ñu ko defee ci sama xalaat 2024 euh, jëm 2025 on va mieux répartir la charge fiscale dañ ko dañ ko mën a gën a mën a séddale muy benn ñaar ba bu boobaa dépense yi ngay def da nga koy euh, ajuster en fonction de ça kooku mën nañ ko tàmbali def déjà dès cette année après dina mën a améliorer de manière sensible en tout cas objectif de politique économique yi ñu am parce que objectif de politique pour mu dox il faut que nga mën a toucher cible bi parce que bu nekkee da nga ne damay dimbali masalan ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci entreprise de presse yi mais li nga leen di jox euh, du ñoom lay profiter directement parce que peut-être ci diggante bi am na beneen métier bu jege presse boo xam ne moo koy capter ab du am efficacité or études yi ñu def dañu permettre ñu mën a toucher cible yi et incha allah ci loolu la jëm bu ci yàlla ànd maintenant yan mesure la ñuy war a mën a euh, jël dès les premiers jours ci ci ci xam nga euh, euh, période du campagne électorale plus muy gën a gudd préparation élection plus muy gën a gudd ci réew yu mel ni ñun daf ci am impact ci ni réew mi di di di doxee moo tax il faut rapidement ñaan yàlla def élection ci jàmm salaam et puis ñu jàll ci beneen affaire mesure yi jël je pense que jot na ñu jël euh, yenn décision yi ci sama xalaat xam nga 2009 amoon na fee assise ñu jàppoon ni euh, président de la République warul nekk président de parti man jàpp naa ni jot na fi mu nekk ni ñu dissocier fonction au président de la République ak fonction exécutive au parti président de la République day bokk ci parti partie mun na ko fal mais bu ñu xasee ba nekk président de la République je pense que besoin de consensus besoin sénégalais yi mën a waxtaan il faut toujours une institution boo xam ni euh, dina am ci lu mu sukkandiku muy parti c'est vrai euh, dina am ñu koy jàppale mën na doon coalition c'est vrai mais il faut que mu am ay passerelles avec les autres euh, formations ñoo xam politique la moo xam société civile la boo xam ne bu ci bu ciy wax kenn du ko accuser de par par parlo je pense que deux ans yu mujj yi trois ans yu mujj yi en tout cas au niveau du Sénégal on a eu ces problèmes là c'est le moment ça c'est une mesure très rapide qu'on va prendre je pense que l'autre mesure aussi bon euh, on a des institutions fortes euh, gis nañu yi fi jaar yëpp ak ni réew mi résister euh, en tout cas institution yi loolu dañ ko war a rafetlu gën a dëgëral institution yi mais c'est là on doit aussi poser un certain nombre de, de questions par exemple sur sur la justice je pense que foog ñu am en tout cas de grandes concertations yoo xam ni les acteurs de la justice magistrats notaires huissiers avocats ñi ciy liggéey ñëpp les acteurs de la société civile ñu toog greffier ñu toog waxtaanee justice quelle justice quel financement comment financer yan mooy plan de carrière yu am ci justice yooyu parce que quand on rend une décision au nom du peuple il faut toujours bu ñu amee yenn débat yi ñu toogaat fexe ba débat yooyu bañ a amaat parce que débat yooyu tant que mi ngi am dina doon loo xam ne day créer forme d'insécurité or man dama bëgg investisseurs yi di fi ñëw dama bëgg sénégalais yi am confiance à leur justice que yow boo bëggee investir wala keneen bëgg investir que tu sois sûr en cas de problème euh, kenn du la jaay doole. Euh, en fait doo am sentiment ñu ngi lay jaay doole parce que yenn sax kenn du la jaay doole tu peux da ngay tooñ mais ni ñu ni mu demee tu penses que dañ la ko dañ la ko jaay alors yooyu yëpp ce sont des questions sur lesquelles on va s'y appesantir je pense que dès les premiers mois mais li ma gën a bëgg c'est surtout d'avoir un gouvernement d'unité vraiment un gouvernement d'unité d'unité ça veut dire euh, c'est-à-dire personne n'est exclu je me, je fonde parce que Benno a été une expérience réussie. Pendant 12 ans, on a une coalition qui a pu diriger le pays. Maintenant, il faut aller au-delà de la coalition. Il faut maintenir la coalition intacte et faire appel à tous les Sénégalais qui croient à la République, aux libertés et à la démocratie. loolu ku ku ci d'accord rek mën nañu teg programme bi parce que fi ñu toll c'est c'est une œuvre de de de de consolidation c'est une œuvre de d'élargissement C'est une œuvre d'approfondissement. Mais à partir de ce moment, il y a de la place pour, en tout cas, tous les Sénégalais qui croient fondamentalement aux valeurs de la République. On ku gëm République gëm démocratie gëm euh, liberté ñu d'accord ci fond charte yooyu euh, on peut on peut travailler ensemble. Allez Bouba question bismillah. na mu koy centre Babacar Fall depuis sànq mi ngi laaj question bi jox na ayca kon Babacar mais euh, dama bëgg a di rek ci li Amadou Ba annoncé léegi ne bu nekkee président moom jàpp na ne jot nañu tàggale euh, mbubbu président ak mbubbu jiite parti hmm. beesul parce que am nañu fi doon foog naa Macky sax bi muy doog a falu on a agité saa mais bu fekkee dëgg la ci yow que boo nekkee président doo nekk njiital parti est-ce que mën nañ ko jàppee sa première rupture avec euh, les méthodes Macky est-ce que ces images euh, tey jii da nga koy tàggaleek euh, bu bu Macky Sall am déet ak itam li ñu ko gisul sax ci biir campagne bi naam waa bi nee image du président foog naa warul feeñ ci ci ci biir campagne bi ay affichage ak yooyu foog loolu la foog mais lu tax Macky Sall àndul ak yow euh, campagne est-ce que vous avez arrondi tous vos angles Mais les Anglo ont été toujours... Euh... <laughs> voilà. non jamais eu de euh, maa ngi koy wax seen benn confrère xuma seen benn conseil yan say coow li moo ëpp réalité bi coow li moom mooy ëpp réalité bi quand même euh, dafa am loo xam ne dox na sama diggante ak président Macky man fekk na ma nekk directeur général mu bàyyi ma fa kooku c' est un élément important parce que changement de régime bu amee boo ñëwee poste bu mel ni direction générale des impôts et domaines mën nga fa teg keneen surtout que j'avais déjà fait au moins quatre ans ci poste bi donc boo fa jëlee woon jëlee woon aussi ce ne serait pas une sanction defu ko ci période boobu laa def réforme bi ma lay wax waaw donc réforme moo jariñ Sénégal fekk ma di ko def donc bi mu ñëwee euh, mu corriger ko ne ma bon voilà sama gis-gis lii la tel aspe xoolaatal leen ma ko tel aspect xoolaatal leen ma ko et ñu ñu def ko mais ci loolu la ma def ministre des finances koo wóoluwul doo nekk doo ànd ak moom mu nekk nekk ministre des finances am ci giiru juróom-benni at. ma fa nekk ministre des affaires étrangères ci ñaari at je suis sorti du gouvernement après je suis revenu dans le gouvernement comme premier ministre il pouvait être candidat il n'a pas été il m'a désigné comme euh, candidat et confiance mënul ëpp loolu confiance mënul mënul mënul ëpp loolu maintenant c'est vrai ay nit tànk bu ñu lu ñuy gën a jege toujours il y possibilité de di wax fii di wax fale mais très honnêtement maak président de la République en tout cas man j'ai jamais eu le sentiment beneen sentiment bu dul sentiment de confiance et tout et campagne bi gisoo ko ci mais mi ngi may jàppale ci biir ak ci biti parce que une campagne n'est pas simple euh, il a une très grande expérience je lui parle régulièrement je le vois régulièrement bi ma génnee ci gouvernement matagul ñaari semaine donc euh, te c'était pour entrer en campagne te lu ñu doon waxtaanee la bu bu bu yàgg li ëpp ci lii am li ñuy wax la ci bi ci biti maintenant euh, souvent nag di nga gis ay nit ñuy wax lii am na lële am na mais entre le président et moi c'est vraiment des relations de confiance des relations d'affection président a beaucoup d'affection pour moi maintenant nit ki boo ko yilifee yenn saa yi mën nga ko euh, yuuxu mën nga ko gëdd mën nga ko mel ni ko ko xaw a mere mais ça ne remet pas en cause fondamentalement li dox seen diggante je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses parce que booy liggéeyal nit ki di ko rendre compte mën nga ko rendre compte euh, tey jii mu ne la félicitation suba nga rendre ko compte mu ne li nga def day dara baaxu ci boo c'est c'est ça ne ça ne ça ne sort vraiment pas de ça du cadre du du du du travail en tout euh, du loo xam ni man dund naa ko président Macky Sall directement maintenant ci biti nag gaañ yi di wax mënoo leen tere wax mënoo leen tere def ay supputation buñ ko gisoon ci campagne ñu ne wéy mi ngi fi bàyyi li réew mi di campagne buñ ko gisul ci campagne ñu ne gis nga jàppalewul candidat mais il me soutient de la manière la plus efficace maa ngi waxtaan ak moom et aujourd'hui vous avez constaté que tout le toute la coalition est mobilisée sans exception Maintenant, ci tànn ba effectivement il y avait quelques problèmes parce que l'unanimité n'est pas de ce monde je ne souhaite même pas ñu jox ma loo xam ne man kese maa koy bëgg man kese ñëpp ci ànd toujours dina am ñu ñu bañ maintenant ni nit ñi di réagir du doon ben am na ñoo xam ne dañuy bañ banque seen loxo du ñu wax am na xam ne dañ la koy won bon bref am na ñoo xam ne sax du dañ la koy won mais du ñeem ci loolu dañuy dem di jéem a fexe nga échoué mais ça c'est la vie yàlla dimbali na ma j'ai quand même une grande capacité de résilience euh, yooyu yëpp euh, pour pour moi c'est c'est c'est du c'est du passé quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi j'essaie de comprendre lan laa def ba moom mënul d'accord et non moom li muy def moi je je me c'est une question que je me pose moi-même man lan laa def lu tax nit ki d'accord et après moo tax du ma mere nit damay je reviens toujours à la charge waxtaan ak yow euh, et je peux parvenir à te convaincre bu wala même bu ma la convaincrewul dinañu seq relation yoo xam ne relation de respect la jàmm ak salaam et puis ci yooyu noonu lay demee donc euh, rassure-toi je suis là et le président me soutien de la manière la de, de manière totale vraiment totale sans ambiguïté sans ambages et j'ai jamais senti un manque de soutien de sa part yes euh, merci euh, monsieur le président ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. maa ngi lay fay. sama première question mooy boroom ñaari soxna nga est-ce que constitution prévoir na ay ay loo pale. ku ku la wax loolu. waaw loolu non laaj xamal. damay laaj par loolu la ñuy. loo ma xamal am na am na ñu ko wax am na ñu wax ni. borom ñaari da ngay bàyyi ba man wax la waaye am na ñuy wax am na ñuy def da ngay bàyyi da nga may bàyyi. ñaari soxna nga wala benn borom benn soxna. da ngay bàyyi wax la. waaw nit bu ñu waree jiite mën nañ ko laaj. dama bëgg nga jàpp benn mbir. waaw. am naa soxna bu tudd ay Aïssatou Biliba maa ngi koy sant di ko gërëm def nañu lu mot ñeent fukki at. waaw foofu nag laa mën a yem ci wax jooju. waaw ah, kon ok boobu leer na leneen li ci topp mooy il y mille 7000 agents des établissements publics de santé yoo xamante ne recevoir nga leen lors du dialogue social promettroon leen fan nga ci toll am na aussi ñi nga xamante ñu ngi. denc seen xaalis poste épargner ko mu nekk ay mu nekk xaalis bu bëri individuellement ñi ay 15 millions ñi ay 20 millions et depuis lors il court derrière mënuñu jot ci xaalis boobu. bon établissement public yi am na yu ci am ay jafe-jafe c'est ça la euh, c'est ça la vérité euh, poste bokk na ci effectivement bi ma nekkee d'abord ministre des finances d'abord euh, difficulté poste yi ñu ngi ko doon suivre. ñu ngi ko doon suivre bu bu bu bu di ko ñu amoon un plan parce que poste effectivement tey jii seen i effectif euh, toll na ci foo xamante ni euh, ëpp na par rapport ak seen i capacité et que même liggéeyu poste doon na liggéey boo xamante ni liggéey la bu boo xam ne ñu ngi commencé di di ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy dépassé maintenant euh, bi ma leen recevoir effectivement il y un plan qu'on a mis en œuvre euh, c'était c'était soit ni mu bindoo woon nga tëj poste kooku maar day taali la wala nga accompagner leen ci dans un process de redressement accompagner leen dans un processus de redressement ci processus boobu la ñu nekkoon moo tax fi mu nekk nii ba bi ma fay jógee en tout cas salaire post état bi moo koy fay moo ko moo ko doon fay parce que revenu yu poste di am doyul woon pour supporter l'ensemble des charges mais am na un plan boo xamante ni euh, buñ ko mettre en œuvre defe naa ni post dina mën a dox dox bu gaaw d'abord je pense que il faut que ñu séparer la branche postale ak banque bi parce que poste léegi activité post traditionnelle bi ñu amoon euh, commencé na euh, dison amul avenir Aujourd'hui, avec le développement de, de, de, de, de supports immatériels, euh, euh, euh, amul avenir mais poste suñu poste am nañu chance su am un actif important je pense que boo xoolee post xëy na tey jii ci wàllu foncier kenn ëpp leen ci actif je pense que il faut que ñoom ñu jéem a valoriser seen actif pas ñu jaay ko je parle pas de ça parce que boo nee valoriser actif rek les gens vont penser que tu dis que dañu jaay actif bi non maanaam boo jëlee poste bi nekk fii Fann wala bi nekk euh, euh, Ponty wala bi nekk booru Kermel euh, je pense que c'est des lieux assez bien placés où il est possible quand même de faire des immeubles voilà et de supporter la euh, les activités de de poste maintenant avec un processus de dépérissement. Parce qu'on avait demandé, en tout cas, j'avais demandé au directeur général de la Poste d'arrêter tout recrutement. Comme ça, avec un plan, ni d'idem retraite, euh, ça va permettre de gérer sur le plan social, mais de, de avec Activi Poste Am, il est possible quand même de, de euh, d'avancer un peu sur sur, euh, sur sur la je dis pas réhabilitation parce que dina xaw a jafe poste dellu ci nu mu meloon ni ñu ko xamee woon ci ay jamonoy télégramme ak ci jamonoy lettre kooku jàpp naa ni xëy na léegi loolu mënatul nekk mais je pense que mën nañu changer activité et on avait suggéré même de euh, de louer de fair des magasins et activités voilà des hôtels et que maintenant on avait imposé aussi à l'administration seen yenn courrier yi ñu koy jaarale ci ci ci ci ci ci poste bi parce que aussi il a beaucoup de concurrence à ce niveau-là et là peut dina permettre ñu équilibrer pendant un temps peut dans les cinq ans ou dix ans à venir et après on, on aviser mais jàppuñu woon ni ñu xëy nit ñi dàq leen ñoom ñëpp que c'était la meilleure solution euh, président nanguwu ko woon puis ñun aussi proposé wuñu ko woon loolu. alors Bouba jëlal sa wàll. waaw ah, merci Der ah, ñu ngi nuyu président di la di la dalal fii ci TFM. dafa nekk xaar bi yàggoon na di euh, jéggalu rek suñu téléspectateurs yi xam naa gars yi doon xaar <coughs> yàgg na mais effectivement ça se comprend man defe naa ñetti question la am bu njëkk bi mooy dama bëgg a dellu si waat si la relation ak euh, président Macky Sall parce que ñun aussi ay sénégalais lañu te dañuy seetlu dañuy gis parce que yow bi nga ñëwee da nga ne da ngay wéyal li nga xam ne moom la fi président Macky Sall def ci ñaari mandat yi ñu seetlu ni wax fa dëgg yàlla. Euh, ci tànneef bi euh, xëyul rek ne yow la tànn daf leen booleek yeneen kàngam ngeen mel ni ñu dem examen mu ñu recevoir leen ngeen wax wax wax wax wax ba finalement yow sa tour génn si mais boobu ba léegi euh, sénégal yi dañu am impression que joxe bopp rocc làmmiñ la parce que je pense que quand on fait bu ñu defee ñaari mandat yoo xam ne sa bilan nee nga baax nga je pense que ak yooyu danga ko war a yekkal ki nga xam ne moom nga tànn mais yekkal bi c'est pas parce que choisir dire que je choisis quelque tànn kenn ne wax naa ko ne tànn naa ko benn la mais at yi ngay poser pour wax ni vraiment kii ma tànn nii doy na ma loolu la nit yi gën a seetlu te ku wax ak dëgg ak sa yàlla rek gis na ni yaa a beaucoup de zones d'ombre yoo xam ne Sénégalais yi ñu ngi koy poser des actes que président waroon poser poser ko ko par exemple bëri na ñoo xam ne jege nañu président Macky Sall te xam nañ ni ci 12 ans yi 99 pour cent képp ku fi wax dara loo warut wax président Macky Sall kii kaawam da da koy régler léegi. ñu gis que ni ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy doon say détracteur ñoo xam ne publiquement dem nañ ci télé yi dem nañ ci ci ci ci média yi wax la loo xam ne peut-être sax opposition waxuñu ko jëlewuñ ci lu dul promotion. dàquñu ci kenn ñëpp ku ci nekkuloon ministre sax mujj gi ministre nga nekk loolu c'est une question bu ñu war a poser gisaguñu benn yoon aussi mu poser acte fort en dehors de diir que maa ngi lay renouveler sama confiance acte fort boo xam ni wane ni Sénégalais yi vraiment kii maa ngi ci ginnaawam te dinaa dem def sama kéemtalaay kàttan pour mu pour mu mu falu parce que ëllëg. ñu ngi lay ñaanal bu dee looloo gën ci réew mi li ngay yóotu nga jot ko mais ëllëg bu bu demeewul noonu aussi je pense que boo retourné ne président Macky Sall ni ma waroon jàppalee jàppale wu ma ko kenn du la ne déedéet parce que il faut toujours di sedd ëllëg loolu je pense que euh, c'est un constat bu sénégalais yi def moo tax mu bëgg laaj vraiment est-ce que yaakaaroon ni président Macky Sall bien que choisir na la waroon na poser ay at yu gën a lay may doole. ba nga xam ni nit ñi du ñu am duñu am loolu ñu koy ñu koy seetlu boobu benn la beneen bi mooy dañu nekk di dem daa à deux jours des élections de l' élection présidentielle parti yu nekk yu am doole yëpp seen taxawaay dafay dafay dafay am solo dafa am benn parti bu tudd PDS bu génn ñu jël seen candidat euh, bokkatul ci élection yi candidat bi génn accuser la nommément ne la yow yaa def li nga xam ne yaa ger ay nit yoo xam ne dañu nekk ci conseil constitutionnel ba nga xam ne mënatuñu nekk candidat moom mënatul nekk candidat dem loolu waral président Macky Sall te ñun ñëpp kenn d'accordu si mu toxal ay élection loolu lu rëy la loolu moo tax ñu toxal élection wu Sénégal ba sénégalais ak ñëpp ñu nekk bitim réew génn ŋàññ ko ba président de la république reculer wala ñu reculer loo ko en tout cas ba ba ba ñu def élection yi mu mu mu causé ñu tort bi yëpp léegi ñooñu jiiñ la loolu yëpp ñu gis que ni fan yi yëpp même bu fekkee ni seen candidat nekkul ñu gis que ni dafa am contradiction bu bëri ñun ñi nga xam ne Sénégalais yi des fois du ma mën a comprendre man munoo ma jiiñ tam ma dëmm ne ma yaa ma def li yaa ma def li jamono dem matul un mois après may imagine que nit bi ma tamoon dëmm ba ne yaa ma xañ sama li te ma ko doon xëccoog moom kooku lay àndal donc paradox boobu il faut ñu leeral nit yi sénégalais pour mu leer soit am na kuy nax kenn wala am na loo xam ne c'est c'est c'est pas sain te loolu ñun dañu war a xam et gis nañu bëri na ñu nekk ci PDS euh, fu mu nekk nit ñuy jël ay position kenn xamul kan mooy ànd ak kenn et bu dee yow yaa leen xañ loolu je ne vois pas une raison pour que ñu mën la jàppale ça me pose un problème je pense que loolu euh, question boo xam ne la nit ñi dañ ko dañ ko dañ ko war a xam beneen bi bu dernière question mooy que est-ce que est-ce que mën nga revendiquer bilan président Macky Sall yëpp parce que ci ci ci yoon euh, effectivement nekk nga fi ministre des finance ku jógee ministre des finances dem ministre des affaires étrangères dañ la rétrogradé boo jóg boo jógee ministère de l'étra euh, euh, kii des affaires étrangères nga génn gouvernement bi pendant longtemps moom mu dawal. ba amaana deuxième deuxième mandat wu président Macky Sall boobu mandat la ñuy gën a juger parce que mooy bu mujjee liñ ci nekk ci gouvernement am peut-être bëriwul bëri noonu parce que bi nga nekkee premier ministre ak léegi yàggul ba ñu dind li ñu seetlu mooy aussi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi la doon ŋàññ dugg nañu gouvernement bi ñëpp ñi nga xam ne yow la ñu àndaloon génn nañu gouvernement bi te boobu ba léegi président Macky Sall amul benn jour benn pas bu mu teg bu wane ni kii maa tànn maa ko wóolu à 100 pour cent joŋante nag bu amee am na acte yooyu posé loolu day mën ñi la bëgg ñi ñi la bëggoon sax parce que bu dee bilan baax na da war a bénéficier wu ci ñi nga xam ne dañ ko bëgg ndax bilan baax na mais ki la jiital aussi il faut mu poser ay actes yoo xam ne nit ñi dinañ gis ni kii de bëgg na ci mais on a l' impression que il y a effectivement boo toogee foofu buñ la laajee man je m' attends pas à que nga ne ma oui ah non tout se passe bien euh, wala nga wax ma autrement mais seetlu bi nit ñi seetlu mooy que président Macky Sall nu mën a nekk ci palais bi toog yow nga nekk ci campagne bi à deux jours. amul benn yoon bu mu jóg yëkkati sa loxo loolu c'est un grand problème boo xam ne question yu question boobu sénégalais yi ñu bu fekkee yoon may na ko ko te defu ko je pense que li ñuy wax ni ñun dañ ciy am jiixi jaaxa que ni jàppale na la à pour cent. question bi gudd na loolu aussi. waaw mais du question bi guddul de Pape. ba ah. question bi guddul moom xam na bu baax li ma ko wax. bàyyi ah, bàyyi kon nañu déglu mu tontu. <laughs> président Amadou Ba oui allez. mais xam nga buuba li nga wax tontu baa ngi ci li wax. xam nga choix wu candidat coalition Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall joué ci un rôle déterminant parce que c'est lui le président de la coalition même bu nekkee waxtaan nag ay naatangoom yi nga xam ne am nañu parti mu xool ñëpp ne ma yow mii yaay sunu sama candidat man loolu bu ma doy la dara dootuma doy maintenant li nga wax moom mooy na jël kuddu bi tibb ci ceeb bi ubbi sama gémmiñ saxal ma loolu nga ma wax na na ko président Macky Sall def or c'est pas ça warul doon loolu warul doon loolu xam nga bi ñuy bi ñuy bi ñuy candidaté bokk naa peut-être je pense je devais le seul en tout cas euh, en tout cas à n'avoir jamais postulé musuma ne bëgg na musuma toog fenn ne damay def lii wala damay def la li parce que man jàpp daan ne booy def dara da ngay def li nga war a def li war a ñëw dina ñëw man noonu laay fonctionner euh, baax na baaxul mais en tout cas noonu lay def noonu laa noonu laa gën ñu dem ba mu jàpp ni man mii maa war a nekk candidat avant may nekk candidat j'étais son premier ministre kon xel mën naa nangu ni bi may def premier ministre jàppoon na ni bu demee ba waratul dem man maa war a nekk candidat xel war naa mën a nangu loolu nee naa la mi ngi may jàppale kon li ma la wax war na laa doy parce que aussi bu ma jàppalewul woon ci biir benn Bokk Yaakaar kon lii nga li ma ci am du ma ko am c'est pas possible. loo ci am. mais gisoo. seetaanoo campagne bi bu nekkee di nga seetaan kay les images peuvent juger de ce qu'il sur le terrain parce que ñii ñëw ci terrain bi bu ma ci dee andi ñi ëpp bokk ci Benno Bokk Yaakaar lañ jógee ça ce sont des faits très précis maintenant s'agissant du bilan dafa am loo xam ne dañ koy fàtte mooy bi président Macky Sall ñëwee dafa ne dañ ko fal ci yoonu yokkute ñu ne dañuy defar plan Sénégal émergent lan mooy différence bi parce que dafa am loo xam ne bokk na ci lii gën gàllankoor réew mi mooy dañuy ñëw di bëgg liggéey yemale ko ci mandat comme tey ma ñëw ne dama bëgg nekk candidat bu ñu ma falee je fais un programme sur les cinq ans bu jeexee ma defaat beneen programme sur les cinq ans. et on l'a vu gis nañ loolu dans la pratique bi président Abdoulaye Wade ñëwee toog nañu un an et demi yoo xamante ni réew mi y avait quand même des bi président Macky Sall mi ñëwee toog nañu un an et demi aussi boo xam ni réew mi dafa am ay le président quand il s'est posé cette question. il a dit il faut que ñu def loo xam ni ça transcende les régimes ça transcende les personnes yàlla def nag boobu man j'étais le ministre de l'économie des finances et du plan kon la ëpp ci liggéey bi samay service ñoo ko waroon def maintenant démarche bi ñu utilisé du démarche politique politique du démarche en tout cas politicienne parce que jamono jooju aussi boo koy fàttaliku xëy nag am na ci ay éléments yoo xam ni war ngeen ko am fii ci TFM ay boroom xam-xam lañ ko dénk universitaire économiste yi ñu am ministère ay planificateur ak en fait boroom xam-xam yi nekk ci réew mi waxtaan ak l'ensemble des acteurs politiques waxtaan ak l'ensemble des acteurs sociaux ay syndicats ak ñoom ñëpp ñu waxtaan ak ñoom yóbbu ko bitim réew waxtaan ak institution yi nga xam ne ci wàllu développement ci wàllu koom-koom en terme de crédibilité liñ ci am keneen amu ko mën nga d'accord ak ñoom wala nga bañ a d'accord ak ñoom waaye am nañu crédibilité muy banque mondiale muy FMI muy OCDE muy Union européenne muy BID muy BAD ñoo ñëpp ñu waxtaan ak ñoom ba ñoo ñëpp d'accord ni lii kat buñ ko defee Sénégal ci ñaar fukki at résultat yii ngeen di wax réforme yii ngeen di wax projet yii ngeen di wax bu ngeen ko defee Sénégal dina toll fii boobu booy fàttaliku 2014 bi ñu dem groupe consultatif xam équipe technique bi man maa ko jiite woon président ñëw fa ci bésu groupe consultatif mais y a eu un travail avant ñu daje foofu bës boobu bi ñuy jox 3700 milliards xaw ma bés boobu du bés boobu la ñu am 3700 milliards yi dañ ko liggéey ci ay weer yu jiitu ba ñu ñëw fësal ko ce jour la bi ñuy dem 2018 et j'avais tenu moo en tant que ministre des finances nañ ko def 2018 parce que Sénégal tàmmuloon di def bilan Sénégal tàmmuloon di def bilan mën nga dem ci bailleur de fonds dem ci nga am sa projet ay muy projet national ou projet international peu importe juróomi at yi bu jeexee wala ñetti at yi bu jeexee nga jàll ci leneen j'ai dit et le président Macky Sall accepté ko nañu fexe ba Sénégal delluwaat ci juróomi at yi ñu toog devant la communauté internationale ne leen lii lañu bëggoon def li ñu bëggoon def lii am nañ ko ñun ci sunu alalu bopp muy sunuy impôt lii may ngeen ñu ko lii lebal ngeen ñu ko lii ak lii ak lii la jural réew mi on l'a fait en 2018 defar benn beneen plan ci juróomi at yi parce que fukki parce que on a fait un plan sur sur vingt ans ñu dagg ko ay séquences de cinq ans cinq ans cinq am séquence maintenant deux mille vingt quatre deux mille vingt neuf boo xoolee assemblée nationale. bi ñuy voté loi de finances voté nañu en même temps des programmes triennaux dañuy ne tali bi ñu ngi koy defar deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq deux mille vingt six c' est déjà voté à l' assemblée wala ñu ne hôpital bi dañu koy defar wala dispensaire bi wala leneen wala école bi en fait réew noonu lay doxe yeneen li ñuy wax yëpp sunu réew yu tolloog Sénégal doole. vraiment théorie la fiction la ça ne repose sur aucune réalité ça ne repose sur aucune réalité loo fi bëgg renégocier ça te prendra le temps du mandat tey bu la bii di financer tali bii ne la dina def say étude de projet étude de factibilité wax def li ngay def yëpp ba ñu ne la bon d'accord le projet ça va durer trois ans ça coûte euh, cent cinquante année année bu nekk cinquante bu signez les ñu jox la benn cinquante le régime change tu fais quoi da ngay ñëw ne léegi damay changer tali dootuma ko def tali mën na nekk mais il va falloir renégocier temps bi nga def pour négocier di nga defar temps bu day noonu pour renégocier et tu n'es pas sûr que boo renégocier di nga am li nga bëggoon boo jëlee réew yu mel ni sunu réew nga jël lii nga xam ne ñu ngi koy exécuter ci réew mi lépp en terme d' investissement noonu la demee lépp la wax sans exception kon plan bi baax na plan bi baax na maintenant boo amee plan bu baax à l' exécution un acteur peut fauter mën nga bëgg a defar tali dénk ko benn entreprise ci enrobé bi mu am nu mu ci wàññi ça c' est un autre problème ça n'a rien à voir ak projet bi ci boppam je pense que aujourd'hui il faut poursuivre la mise en œuvre du plan Sénégal émergent Macky Sall ci ayam la maintenant il faut renforcer améliorer en tenant compte de la situation bi ñuy dund ak des besoins yi nga xam ni moom moo moo yi bees dara euh, Enfin, on l'a vu avec la Covid. bëgg nga def Covid ñëw tu es obligé daal de t'arrêter de changer de stratégie loolu loolu moo fi nekk mais li ngay wax ci jàppale vraiment Bouba je veux te vraiment la ca war président def na ko en tout cas man defal na ma loo xamante ni dootuma ko fàtte. Hmm. mais pardon def na ma ministre des finances. ci damay damay. def na ma ministre des finances Babacar après Badara def na ma ministre des affaires étrangères. te du rétrogradé attention. der question PDS bi kii nga bëgg a dagg kii président bàyyi ko mu eggali sama deuxième question dafa am solo. sa deuxième question mooy. est-ce ko ah, non non fàttewu ko boobu laaj boobu c'est une question primordiale fu mu nekk nii. boobu mooy mooy PDS bi. am ah, nga voilà laaj xam nga euh, PDS yàlla def na man xam naa leen ñoom ñëpp. presque ñoom ñëpp euh, moi la chance que j'ai eue en tout cas en tant que doomu Sénégal li may sant yàlla mooy bi may politique ci parti socialiste la commencé bi PDS ñëwee je suis pas entré dans la politique mais toutes mes promotions waxtu boobu laa ko am de chef de service à directeur général des impôts et des domaines. Mm-hmm. ñëpp. daanaka xam na la wala jegale na président Wade doon mag mu baax liggéey ci réew mi lu am solo vraiment lu am solo et je profite de cette occasion pour lui rendre un hommage euh, mérité defar aussi euh, am un, un grand parti maintenant sur ces élections dafa am yoo xam ne bu ñu koy faral di yëkkati bokk na ci li yàq réew gis nga un magistrat un magistrat bu dem ba yegg ci yenn grade yi dama lay wax nag loo xam ni man dama bokk ci administration xam xam bu baax administration xam seen état psychologique parce que lii li nga xam ne am na ci sunu réew mooy ñu bari dañuy jaxasoog administration te xamuñu leen c'est-à-dire accuser des magistrats de cette de ce grade mm-hmm. de corruption faute gën a ko grave parce que ñooñu wax ji mën na ëpp yenn saa yi nga rey leen sax moo leen gënal nga accuser leen ci loolu parce que ñoom ils doivent rendre la justice ils ont fait leur carrière jóge ci baa ci suuf dem euh, ba nekk am na ci ñaar ñoo xam ne dem nañ ba nekk président cour suprême c'est-à-dire ci ordre ordre judiciaire fa la mën a yem Après, ils vont au Conseil constitutionnel. Tellement ils ont bien travaillé. C'est-à-dire que les accusés de corruption wala wax ni un Amadou Ba corrompre na leen parce que moi si j'avais envie de faire du loolu lay def parce que xam naa ni avec ñooñu du loolu nga war a def avec avec des magistrats c'est pas ce qu'il faut faire le fait même de l'imaginer c'est méconnaître les réalités yi nga xam ne ñu ngi dox ci réew le fait même de l'imaginer parce que lay yàq foofu la foofu la foofu la tàmbale amul c'est faux musuta am te it pour quel résultat on finalement finalement 19 candidats pour quel résultat pourquoi exclure Karim Wade mi nga xam ni peut-être moo ma gën a jege en termes d'alliance PDS que peut-être euh, ceux qui sont donc euh, am na am na wax yoo xam ne boo ko boo ko boo ko boo ko décomposé ko finalement on crée une clameur sur la base de quelque chose qui est faux et totalement faux mais tout simplement que dans le jeu politique dafay nangu ngay jéem a saltel kenn taqal kenn gal gàllankoor kenn galgal kenn. moo ah, tax président loolu moo tax ñu ñu dàq élection yi de parce que est-ce que bu doon lu inimaginable rek dina jaral président de la république jël décision dàq ay élection parce que loolu moo tax est-ce que loolu aussi moom yow mi ko jege noonu mu ñun ñi nga xam ne ay profane lañu moom bu demee ba jël loolu au sérieux ba mu jaral ko mu mu dàq ay élection est-ce que waru dépassé wuñu problème mu euh, question wu lu inimaginable c'est une réalité la réalité mooy que à cause de ces accusations une élection présidentielle a été euh, reportée non il faut pas dire à cause de ces accusations parce que boo nee à cause de ces accusations dafa mel ni accusation bi rek moo tax il de choses qui ont y a eu ces accusations c'est c'est vrai il y a eu euh, des des cas où il y a eu même une incompréhension. Par exemple, sur le cas de Diomaye, personne n'a compris. Moi, j'avais fait un recours contre Diomaye, j'ai été débouté. Et j'ai pensé objectivement. Objectivement, c'est pas que euh, j'avais une crainte quelconque wala lu mënti nekk mais je pensais que objectivement warul woon warul woon nekk mais bon euh, la justice a pensé que c'était autre autre autre chose et je me suis plié à la décision de justice donc, donc je pense que président bu jël décision c'est un ensemble d'éléments maintenant boo ci retenir benn ou ñaar tu peut-être avoir une analyse qui me semble être biaisée mais ce qui est important mooy là ñu ngi jëm ci élection les élections se se se tiennent et le Sénégal institution yi wane nañu que nous sommes pays de droit parce que bi président waxee conseil wax a fait ce que le conseil constitutionnel a a on a appliqué le président a appliqué les conseil constitutionnel alors qu'il était possible qu'il passe outre mën na la ko bañ a def am na ay moyens am na ay capacités yoo xamante ni permettre na ko mu utiliser yeneen mécanisme yoo xam ne ci constitution bi la nekk pour def leneen te booba it day tegu ci yoon donc je pense que y a eu des problèmes c'est vrai man li ma mën a wax mooy li nga xam ne dañ ma ci boole en termes d'accusation au départ de boo ko déggee je pense que les gens farçaient parce que c'était tellement grossier pour moi pour man dañuy dañuy dañuy dañuy ay ay ay kaf la woon quoi c'est de quelqu'un est bon on veut glisser des pots de banane euh, moi quand j'ai quand j'ai vu la liste des dix-neuf candidats man dama def recours moi et au départ j'avais demandé nañ ma xoolal candidat mais là nous sommes dans nous sommes dans le domaine politique ça n'a rien à voir avec euh, des sentiments ou c'était un domaine politique je disais bon nañ ma xool dañ ma defal euh, kii yi Bon, j'ai vu que pour Karim Wad, il y a Tcherno Alassane Sall qui en parlait. Bon, euh, euh j'ai pas poussé. J'avais pensé même à d'autres. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit non, Yaroko. Et finalement, j'ai confirmé deux recours contre deux candidats. Et le tribunal m'a débouté. Donc, euh, du le, la cour m'a débouté. Et puis, affaire bi, pour moi, la décision de justice, je, je l'applique. Je suis profondément une question euh, euh, parce que il y a une question de de Charles euh, sur le patrimoine de Amadou Ba boo xam ne répondre ci parce que c'est c'est un débat boo xam ni qui n'est pas épuisé parce que Ousmane Sonko ak Diomaye Faye bi ñu génnee yow la ñu attaqué directement di lu bees sax ñoom ci seen taxawaay mm-hmm. am ñu ni ñoo xam ne défendre lañ la ne sa carrière fi nga takk xaalis pour ne pas dire takk ban est-ce que sa jaar-jaar ba ci ministre économie finance bi nga xam ne doonoon nga ko li ñuy wax ne ci contrat yi convention bu fi dugg. Euh, loi bi moo nga am ci dara. et cetera non non yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp. le même candidat Babacar pour te compléter a demandé à ce que nga def déclaration de patrimoine. def naa ko. waaw hmm. mais il moom xam nga non xam nga man nous on ne fait que <laughs> relayer a dit. mais non il faut pas relayer il faut pas relayer des choses. non laaj maanaam laaj la. waaw defal naa ko ma ko def of nag. non attends ñeme nga nekk ministre des def déclaration de patrimoine. xam nga monsieur nga baal ma président. xam nga ñun souvent dañuy loo xam ne sax. xëy na xam nañ réponse baal ma ñëwaat ci loolu. mais ñun dañuy ma ñëwaat ci hmm, ci loolu. maa ngi sant yàlla. vraiment yàlla def na. ma nekk ci administration boo xam ne yenn saa yi les niveaux de revenu da daan day day dafay mën na bari. yàlla nag boole na ma ci. ci ma fay liggéey diir bi ma fa nekk xëy na ñi ëppoon ci li ñuy fayeeku ci laa bokk te sañu maa ne maa ci ëppale waaye xam naa ne buñ dee jël juróom wala juróom-benn yi fa ëppale ci fanweeri at yi ñi ma ci ëppale bariw loolu c'est de mi ngi fii ci ci ci ci bon vous êtes des journalistes il est possible de faire des. de de faire vos. des investigations xam nga même bi ma nekkee ministre des finances dama ne jàkk di wax ak sénégalais yi waa trésor di ma dégg li ma intervenir sax trésor pour ju fay nit bariwul wala li ma intervenir impôt bariwul parce que administration man dama gëm nii chaîne bi di demee maintenant il, il arrive dans des cas marginaux tu peux appeler nañ def nii nañu moytu ni ça ça ça ça tu le fais bon ça c'est c'est normal nous ci àdduna lañ nekk di nga dimbali di nga dinañ la dimbali et cetera loolu mooy li jiitu d'abord impôt bi ñu jógee impôt mu dem ministère des finances xam nga nag boo fa defee ministre des finances juróom benni at ci àdduna bi dëgg-dëgg nag doo torox maintenant moom gros problème xam lan la mooy lu ma am bokk ak nit ñi maintenant loolu ñaari sentiment lay jur ñenn ñi dañuy foog ni da am lu dul jeex ñenn ñi dañuy jàpp ni xëy na euh, euh, wéro parce que man dama xam ñàkk dama ci jaar te jàpp naa ni aussi am yow kenn amul sens am yow kenn. denc ko ci sa coffre wala yóbbu ko ci compte bancaire amul sens sa ça ne moo tax boo ñëwee sama kër c'est toujours plein sama buntu kër boo fay doxantu c'est toujours plein boo jaaree fii c'est à côté même à deux heures du matin am na ñuy taxaw di ma di ma xaar foofu mais ñi fa taxaw di ma xaar ñu ci bari ñenn ñi bokk réputation bu ma topp la au moins depuis vingt cinq dañ leen di loo am bokk ak ñoom maintenant effectivement sa crée la clameur mais mën naa la wax nii bi ma nekkee ministre des finances def déclaration de patrimoine parce que la loi l'exigeait bi ma génnee ministère des affaires étrangères def naa déclaration de patrimoine mi ngi fii ci OFNAC bi ñu ma nommé premier ministre j'ai fait ma déclaration de patrimoine maa ngi ciy doog a génn j'ai trois mois pour faire la déclaration mais je pense que je serai élu le dimanche prochain et je ferai une déclaration de patrimoine en tant que premier tour je je je je j'ai pas de doute que ça va se faire au premier tour. Badara Gadiaga oui. waaw président maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay. di la nuyu. maa ngi lay sant. Euh, di ñaan li ngay xëccoo bu gënee ci yow. gën ci réew mi yàlla na ko suñu borom def. amiin. Euh, man suma grand nga yàlla dogal ñu bokk Grand Dakar. Mm. bokk benn koñ diggante Grand Dakar ñaar tali koñu bagaar donc euh, ñu lay dalal ci quartier général man nag dama am ñetti question mm-hmm. yu précise rek benn bi mooy sama ay rakk ñoo ma interpellé ñu ni dañ leen di suivre Badara boobu ba léegi te loolu di problème mu Sénégal bu am solo mais déggaguñ ngeen posé ko benn yoon mooy université mm-hmm. ñu ni saa yuñ jubee at pré électoral rek maanaam presque njàng mi day yàqu ba at boobu day impacté ci yeneen at yi ci topp yépp <coughs> ñu ni président bu bees bii ñëw laajal leen ñu ko ban xeetu xalaat la jàpp ni mën nañoo régler définitivement ba université politique dootul yàq njàngum xale yi boobu mooy benn beneen bi mooy dama gis loo xam ni da ngeen ci def effort defati ci effort lu bari ci sa gouvernement mais ma gis ni am na lu bari loo xam ni des na ci. Hmm. muy xëyu ndawu Sénégal. emploi des jeunes. ak cherté de la vie. ma bëggoon président nga wax ñu bu fekkoon falu nga. lan ngay wax ndaw ñi parce que gis naa sa programme nga ni egg ci un million e quelque ci yooyu kële nan ban mécanisme nga koy defee. Hmm. bii tëj nag comme question mooy pétrole ak gaz. yaakaar am na ci lool ci réew mi lan ngay wax nit ñi ci ñi am yaakaar ci pétrole ak gaz lan la mën a indi ci senegal ci mandat bii ñuy jëm ba du jur yaakaar bu bu bu tas ñetti question yooyu laa amoon. jërëjëf bi bi nekk ci digg bi lay njëkk a tontu mooy bi nga xam ni mooy la question de l'emploi des jeunes. xam nga boo xoolee juróomi at yu njëkk yi nga xam ni président def na ko ci plan Sénégal émergent euh, dañoo nekkoon ci politique de rattrapage en termes d'infrastructure physique boo ngeen di fàttaliku 2011 réew mi daanaka amul woon courant wala courant bi doyul woon autoroute bi mi ngi yemoon fii yeggul woon aéroport bi ñaari exemple yooyu laa mën a joxe. ci misaal ci wàllu infrastructure rattrapage bi def nañ ko courant léegi xëy na mën nañu wax ni chair na waaye muy coupé bareetul déplacement ci ay autoroute mobilité parce que réew mu mobilité amul tey jii fi àdduna toll munoo dem munoo ñëw euh, bëgg ci wax damay créer emploi wala damay def yenn yi amoo courant mënoo déplacé wu daanaka day daal di day daal di jafe moo tax bi ma analyser situation bi dama jàpp ni juróomi at yii di ñëw foog ñu def focus sur l'emploi des jeunes emploi des jeunes ci ñaari mécanisme nga ko mën a développer ginnaaw bi nga amee infrastructure de base yi parce que bu nekkee am nga courant am nga ndox déplacement yi yomb na lii des moom mooy nga xool secteur yi nga xamante ni zone boo romb secteur boobu mën na fa développé wu nga développé ko bu boobaa lii Charles njëkk a laaj foofu ngay régler la question de la balance commerciale waaw parce que bu nekkee la ñuy jënd ci ceeb wàññeeku na wala li ñuy jënd ci pétrole wàññeeku na wala li ñuy jënd ci dëwlin wàññeeku na ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne am impact ci balance commercial bi bu boobaa foofu ngay créer emploi parce que munoo créer emploi en tout cas dans le secteur privé tant que créé woo ay chaîne de valeur cest defoo ay transformation or transformation mënoo ko def boo amul courant transformation mënoo ko def boo amul ndox transformation mënoo ko def boo amul tali boo jaar vraiment tey jii ay la yëwén nag am na lu ci Sénégal am am na nag lu ci Sénégal am parce que nag bi Macky di ñëw c'était 32 kilomètres d'autoroute aujourd'hui on est à plus de 220 225 et là là euh, potentiel bi muy bàyyi euh, fii ak euh, at bi di jeex euh, on est peut-être à 500 kilomètres d'autoroute yoo xam ni dafay dafay pare c'est-à-dire mën nga fi jógee dem ba Kaolack. ci autoroute avec les anglais. avec nga jógee fii dem ba ba Ndar ak autoroute. liggéey bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi tàmbali et dina créer benn effet boo xamante ni euh, je pense que les investisseurs privés vont peut-être venir euh, ñëw en tout cas euh, ut si Sénégal pour mën a def ay ay investissement bu boobaa ce qu'il faut ce sont des réformes pour que secteur privé mën a créer ay emplois ay réformes moo tax ma tudd léegi justice quand je parle de la justice c'est des réformes ba nga xam ni investisseur bu fi mënti ñëw da ngay jàpp ni fii réewu yoon la au amoo problème ça c'est important c'est c'est c'est la première réforme on a d'autres segments où il faut faire des réformes et maintenant la question financière bi may def déclaration de politique générale j'ai parlé d'une banque publique d'investissement ci sama déclaration de politique générale ñu ngi koy étudier pare na nan lañ koy créer xam nga état dafa am ay leviers yu bari DER one actionnaire dans trois ou quatre banques euh, BND euh, Crédit Agricole euh, enfin BHS euh, CDC euh, ñun ñoo ko moom DER fonds JIP fonds six dafa jot ñu fexe instrument yooyu nan lañ koy boole néew ma fusion hein parce que euh, li ma wax c'est c'est un peu technique néew ma fusion mais dañ koy boole buñ ko boolee ci xayma capitalisation bi ça va faire au moins mille milliards am na ay réew yu ñu jege loolu moo lancé ces secteurs privés national parce que bu boobaa euh, euh, sama sëriñ bu nekkee dafa am business bu mu bëgg a financer tu as une banque qui est là qui comprend et qui peut qui peut qui peut t'aider néewuñu ñu pasar pasare xaalis waxuma loolu mais te am capacité pour mën a di financer nos opérateurs économiques d'abord ça c'est la première chose la seconde chose mooy ñun nous avons une économie informelle il faut que ñu am un financement adapté à ce type d'économie le problème c'est pas de jusqu'à présent solution yi ñu doon jël j'en parle en tant qu'inspecteur des impôts hein euh, mooy il faut il faut formaliser euh, le secteur euh, formel mais ça ne marche pas comme ça yombewul ni ñu koy xalaatee yombewul noonu et je parle d'expérience dama wax xam ne dama ko dund on a fait des réformes no bu ñu defee nii commerçant bi dina fay nii ça marche pas il faut peut-être une fiscalité adaptée mais il faut aussi un financement adapté à ce type d'opération boo xam ne bu yeggee ci yenn euh, niveau yi effectivement formalisation bi li koy andi du yow sax yaa koy forcer mais ñoom ñooy dem ba dugg ci loolu et on l'a vu avec des opérateurs économiques fii yoo xam ne ñu ngi ci biir Sénégal xëy na ci seen jàng ci wàllu nasaraan soriwul mais tey jii en termes d'organisation ils n'ont rien à envier au au au grand groupe et je pense que c'est là où on peut créer des emplois et ci ci xayma bu gàtt toute proportion gardée bu nekkee yëf yi tar na parce que réew aussi il faut nga préparer yenn choc yi nga xam ne mën na am ci réew euh, c'est normal parce que là ñu ngi toog il y a une guerre en Ukraine les prix augmentent c'est des chocs exogènes yoo xam ne ñu ci dara bu taree ba tar c'est un million d'emplois qu'on va créer bu taree ba tar vraiment bu mettee ba metti maintenant le pétrole et le gaz vont venir et ça c'est important euh, bi ma ciy liggéey man dama liggéey ci ñaari hypothèse bu pétrole ak gaz amee lan lay dolli réew mi bu pétrole ak gaz yéexee ñëw nan la réew mi war a dundee di yokk bi may exposé groupe consultatif à Paris bu ngeen ma seetloo bu baax vous avez toujours les trucs ñaari hypothèse laa def une croissance à 7 pour cent sans pétrole et gaz et une croissance à deux chiffres avec pétrole et gaz mu àndil ñu 3 pour cent wala 4 pour cent fait 2 à 3 pour cent de croissance ci jamono jooju mais on attendait le pétrole en 2021 malheureusement ñëwul 2021 là on l'attend pour le mois de euh, juin on espère en tout cas que dina génn ci ci jamono jooju mais même bu génnee il faut pas que ñu ñu am esprit pays pétrolier dootuñu toppatoo li des ça c'est une catastrophe cest dire que loolu bu pétrole bi yéegee ngeen dund bu wàccee vous n'avez rien donc il faut que ñu am une économie sans pétrole et gaz solide pétrole ak gaz nag ñëw mën ko accélérer mën a yokk. mais mais est-ce qu'on peut parler de pays pétrolier et gaz quand on sait que si lu ñuy recevoir on avait prévu 53 milliards pour l'année dernière au cas où non 53 milliards. mais c'est c'est normal. xam nga lu normal quand une activité démarre. lu mu mënti nekk muy pétrole muy télécommunication muy rajo muy télévision mais weer yu njëkk yi at yu njëkk yi mënoo ci am dara petrole bi l'investissement fait cinq milliards de dollars cinq milliards de dollars. trois mille milliards. à à euh, euh, euh, à six cent. c'est trois mille mooy ñetti junni milliards. mais koo xam ni dugal na ñetti junni milliards. même bu dee jël par dix pour cent. la lay dese du bari au moins ci benn at wala ñaari at yu njëkk yi ça il faut il faut que ñu intégrer aussi ces ces ces ces éléments là j'ai pas tous les chiffres en en en tête mais le pays maintenant pour ñu doon un pays pétrolier il faut compter peut-être fii deux ans trois ans ba euh, affaire bi dugg carrément bu boobaa les revenus vont venir Maintenant, ce qui va être important, c'est ce qu'on va faire des revenus du pétrole et du gaz. Loolu, y a une loi quand même qui a été votée et qu'il faut rendre hommage au président Macky Sall. C'est tout à fait transparent. Les revenus du pétrole et du gaz dafay dem dans le budget euh, globalement. Mais capacité additionnelle yi ñu yokk dafay permettre état bi mën a def leneen. Maintenant, en dehors de ça, secteur boobu dafa war a ànd ak développement wu yeneen secteurs yoo xam ne dafay wékku ci pétrole ak gaz ay pétrochimie ay secteur plastique lépp loo xam ne pétrole ak gaz mën na ko andiwaale yooyu effectivement il faut qu'on aide euh, nos opérateurs en relation avec des partenaires étrangers ñu mën di investir ci fànn boobu maintenant université yi xalaat bi ci am mooy on a fait quand même beaucoup d'efforts aujourd'hui i faut le constater moo tax li buuba doon wax euh, léegi euh, moi je revendique euh, le bilan je pars avec le bilan ma mënuma bokk ci lenn ba mu toll ba fii ma xëy ne bilan bi non no non parce que je suis candidat damay wax li wala damay wax lële non Euh, je pas ouais, non, non c'est pas xam nga am na yoo xam ni c'est une attitude de responsabilité même boo bëggee jiitee je pense qu'il y des actes yoo xam ni wala ay xalaat yoo xam ne boo koy xalaat dafay gën a jege acte de trahison loo xam ne bokkul ci sunu aada bokkul ci sunu gis-gis j'ai été ministre des finances pendant cinq ans euh, ou six ans même avant ça j'ai été directeur général des des des, des impôts bon on a, on a on a on a fait ce qu'on avait à il y a des réalisations qui ont été faites maintenant on part fondement on essaie d'aller plus vite on essaie d'aller encore plus vite plus loin d'élargir et de s'il y a des manquements euh, sur certains projets maintenant on, les corrige et on Président, va à euh, de vous recevoir une fois de plus euh, sànq si sa waxtaan dégg naa la nga ni foo dem da ngay gis mobilisation bi foule bi jaaxal la torop hmm. euh, ba doo xam fu ñu jógee muy Kër Massar Pikine Thiès bi nga xamante ne fu nga jógee démb man ma jàpp ne leader yi nekk sa ginnaaw ci mel ni docteur Kane wala Abdoulaye Dieye ils y pour beaucoup. man sama sama inquiétude foofu la jëm ndax te dañu gis ne APR. xiiroo ak ngaayoo dafa yàgg am ci nit yoo xamante ne dañu battre campagne nekk présent depuis le début et que après gisuñu seen bopp ci gouvernement bi wala yi nga xamante ne président dina ko teg ma bëggoon xam bés boo faloo leader yooyu naka nga leen nar a gérer ba frustration du am. beneen bi mooy lan moo tax dimanche 19 candidats ñoo am lan moo tax sénégalais yi war la votel président Amadou Ba plus que nit yu bëri dañu bëgg euh, changement ci dëkk bi rupture changement avec le système comme on l'appelle te yow li nga proposé mooy continuité et pour finir lan moo nar a nekk place su jigéen ci gouvernement gouvernement président Amadou Ba. Euh, jërëjëf maa ngi ndokkeel jigéen ñëpp parce que ñu ngi ci weeru jigéen ñi. Euh, donc foofu laay njëkk a euh, tàmbale di leen ndokkeel ci weer bi li nga wax ci jigéen ñi li ma gëm mooy li war a nekk jigéen ñi tey mois ci population bi la au moins donc munoo wax développement wala nga wax émergence wala nga wax croissance te boolewu ci jigéen ñi munoo tabax réew avec la ci du pays jàpp naa ni euh, xel nanguwul loolu maintenant booy xool étude du pauvreté foofu la gën a bare xëy na ni sunu société bindoo loolu mën naa am foofu moo tax je mets toujours un accent particulier su la formation l'éducation et le financement des femmes gis nga banque bi ma tudd léegi daf ci am guichet pour jigéen ñi daf ci am guichet pour jigéen ñi l'idée de la banque c'est quoi c'est d'avoir beaucoup plus de capacité parce que les besoins sont énormes. Maintenant, quand on a plus de capacité, on a plus de possibilités de mettre à la disposition de ceux qui en ont, en ont besoin. Et là, les femmes vont avoir leur, leur, leur, leur guichet. Mais yeneen yi des c'est un peu les guichet fonctions pour jigéen ñi c'est-à-dire président baal ma comprendre ma guichet pour jigéen ñi c'est c'est quoi l'objectif xam nga xam nga tey boo demee ministère de la femme am na am ay fonds yoo xam ne jigéen ñee ko moom moo mon idée c' est que tous ces fonds là ñu jëm ko regrouper pour avoir beaucoup plus de capacité xam nga tey TFM li ko may doole c' est parce que le groupe sectement yëpp ñu ngi fii mais boo demoon créer sa benn rajo fële tuddee ko RFM mu nekk fële nga créer benn télévision andi ko fii créer beneen journal yóbbu ko boor boor bële xëy na tey doole ji moom du ko am l'idée de la banque c'est en fait ça et dama ko gis ñu def ko ci yeneen réew mu dox gis nañ ko ci réew mu mel ni France yooyu ñu ëpp doole euh, def nañ ko foofu am na yeneen réew yu mel ni Maroc def nañ ko foofu ñun ñu ngi def mais doyul li ñu am bariwul mu ne kon li ñu am nañ ko sakkanal mais la nga xam ne ñu ko doon jox jigéen ñi kon bu doon benn kon mën nañ leen jox ñaar ñett ba ñeent au moins ci fànn boobu ça c'est extrêmement important deuxièmement ci li nga wax léegi concernant les responsables politique euh, baal ma euh, président euh, lu laal question bi dafa ànd ak moom une consoeur Kourani Diarra ñoom it da leen préoccupé mais moom sur la puissance parentale nee nañ ndax di nga leen mën a modifier la loi sur la sur la puissance parentale monoparentale bon puissance parentale noonu la ko bindee. Euh, non y' a un projet de réforme déjà du même xam nga euh, la chance que j'ai euh, ci lay tonto soxna si laajte léegi mooy man je pars du concret. fam loo xam ne da ciy teg bët soit liggéey naa ci walla liggéey nañ ci jox ma parce que réew mi loolu la soxla c'est-à-dire il faut être élu fi ñu toll nii le dimanche prochain et travailler le lundi d'après. pas pas pas di di di di di di di jàng solo wala di xool bureau yi fa mu nekk. réew mi duñu réew mi duñu xaar. waaw kan kan mooy kooku. di jàng solo non non du kenn ah, je parle de je je je parle de non. du ah am kuy jàng solo. non réew mi duñu xaar. président boobu ku ku irrégulier la. non non non non je parle de personne. en fait je veux dire. le pays ne peut pas être dirigé aujourd'hui, euh. à l'état actuel de nos problèmes, par quelqu'un qui n'est pas préparé à ses fonctions. Je pense que c'est un risque énorme. Sama xalaat je peux me tromper, mais je pense que c'est un risque énorme. ça veut dire que donc lii lii lii jàngalekat di wax ubbi tey jàng mi foofu la toll c'est-à-dire le prochain président n'aura pas 100 jours de grâce. Absolument. Le prochain président. mais bu buñ ko bu formé gouvernement bi semaine bu ci topp problème yi tegu ci table loolu parce que foofu la réew mi toll. parce que nit ñi ñooy dundee adduna bi mooy mooy doxee neneen les gens sont devenus très très très pressés maintenant ci ci ci ci ci ci li nga wax nii léegi ñu ngi doon ñu ñu ngi liggéey ci réforme code de la famille xam ne Senghor la woon parce que dans les faits tey jii doom. am na situation yoo xam ne ndeyam koy yor am na situation yoo xam ni baay bee koy yor loolu lu ñuy dund la dans notre société li suñu société soxla mooy organiser tout sax en tenant compte de li may bañ man li ma bëggul mooy ñu soppi suñuy aada dem jëli leneen bitim réew andi ko fii mais loo xam ne dëppoo nag suñu aada war nañ ko mën a leeral bind ko ba ne nekk xam ci la moo ci sa cër ak la moo ci sa wàll. maintenant jigéen ñi dañu war a am responsabilité plus de responsabilité. parce que léegi nag ñu ngi jàng euh, le président Macky Sall a fait beaucoup d'efforts ci affaire boobu avec euh, ministre jigéen ministre de l'économie jigéen ministre de la justice jigéen ministre premier ministre jigéen euh, ministre des affaires étrangères je pense qu'il faut élargir plus de femmes dans les instances de décision je parle pas d'instances gouvernementales troisième aspect bi nga posé njabootu politique bi ñi nga xam ne ñoo ànd Benno Bokk Yaakaar qu'il soit militant ou allié je pense qu'il y la place pour tout le monde maintenant am na ay réformes yoo xam ni faw ñu ñu def ko am na ay réformes yoo xam ni faw ñu ñu def ko mooy lépp loo xam ni day gën a sécuriser euh, population yi gën a tranquilliser population yi ñu bañ di xalaat ni li fi nekk c'est de la politique politicienne loolu foog ñu ñu ñu ñu ñu jéem ci avancé on va faire des propositions euh, concrètes parce que am na réew yoo xam ni yenn difficultés yenn problèmes yi fa am noonu la ñu ko réglé. voilà président. ok jaajëfal. waaw encore remercier nañ la ci euh, waxtaan beeg euh, éclaircissement yi nga indi ci yenn points yi man damay rebondir ci question bu am solo bi sànq yaa ngi wax ne dañuy ubbi tey jàng tey. actuellement nii ñëpp xam nañ dugg nga ci gox-goxaat euh, réew mi xam nga ni urgence bi liggéeyi ndaw ñi la fi mu ne mais surtout mooy euh, drame immigration clandestine xam nañ ñi ci ay at yi ndaw ñu bari ñàkk nañ seen bakken ci frontière u euh, diggante Sénégal ak Espagne d'ailleurs waa Frontex mooy agence bi nga xamante ni mooy xayma xale yi nga xamante ni ñooy ñoo ëpp lu ñuy dugg ci jaare ci frontière u Espagne bi diggante dañ ko dañ ko dañ ko tënk ci diggante ndawu Maroc yi ak Sénégal lan moo mën a nekk actuellement urgence pour ndaw ñi bis boo jëlee nguur gi ñu taxaw ci ñu am emploi yoo xamante ni di leen mën a téye fii ci réew mi beneen bi mooy ab bu ñu sukkandikoo ci observateur yu bari ci wàllum politique même étranger yi sax seen xam-xam màcc yi dañ ne dañu seetlu ne Sénégal euh, pouvoir bi nga xamante ni président de la République da ko am dafa bari maanaam le le président a beaucoup de pouvoir léegi loolu est-ce que yow boo ñëwee. yaa ngi ciy xalaat ngir mën a fexe lu ñu ne wàññi pouvoir bi mais xool noo xamante ni nañ gis ni yenn yenn doole ju bari ji du ko mën a du ko du ko mën a am ba parfois dañuy gis ni day eh, salfaañee démocratie wala ak ak yelleef eh, yenn ci doomu aadama yi. beneen bi mooy sa projet ci wàllu sport ndaxte est-ce que mën nañ yaakaar ne boo ñëwaat boo ñëwee ci nguur gi Sénégal dina organiser Coupe d'Afrique des Nations. foofu laay mujjee foofu li nga mujjee wax xam nga dama am chance su nekk ministre des sports pendant quelques mois. mooy secteur bi ma gën a neex parce que tellement les relations ci biir secteur boobu euh, en fait li ma mën a wax des relations humaines de yu vraiment ay relations humaines ay nit ak nit c'est-à-dire le monde du sport c'est c'est un monde que je connaissais pas très bien en tout cas dama ko doon noonu gis rek de l'extérieur peut-être en li ñuy pratiquer euh, xëy na bariwul wala bokk dugg ci seen seen i seen i seen i instance le Sénégal va organiser euh, la euh, plusieurs activités déjà il y a les JOJ de dinañ ci taxaw euh, on un programme de construction de stades multisports dans tous les départements du du Sénégal kooku aussi liggéey nañ ci ba ba pare c'est c'est c'est c'est c'est des projets disponibles que yoo xam ne ça fait 46 stades ça fait ce que c'est l'urgence ou c'est dans le projet à terme euh, xam nga euh, nous avons un pays où tout est urgent ce qui est important c'est notre capacité à pouvoir faire face aux demandes pressantes des populations waaw lii population yi soxla rek nga jéem leen ko jéem ko def doo mën def lépp doo mën a tabaxandoo 46 stades mais si tu fais euh, une dizaine de stades mm-hmm. par par année au bout de cinq ans tu auras fait mhm. l'ensemble des, des des départements euh, du, du du du du du Sénégal. Maintenant l'autre question a a, a à emploi des jeunes. emploi des jeunes. emploi des jeunes pour immigration clandestine. mooy immigration clandestine xam nga man euh, immigration clandestine am naa ci beneen jàngat te gis naa ko. parce que dafa am drame bu ma mujjee dem en tant que premier ministre ma dem Saint-Louis je trouve des rescapés ci hôpital bi je pense que c'est un échantillon représentatif motoon nañu une vingtaine am na ñeneen ñoo xam ne dara jotu leen ils étaient ñu ngi leen doon enquête ak malheureusement ñoo xam ni euh, yàlla jël na seen seen bakkan ci géej gi quand bi mu waxtaan ak ñoom Parce que j'aime bien, moi, le contact. Parce que y a de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, ci loo boobu ma gis dama ci fekk ay xale yu bari yoo xam ni seen cosaan du Sénégal. Et la télévision l'a montré hein fekk ci fekk ay xale yu bari seen cosaan du Sénégal. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation. xale yi ma gis ñu ngi jógee ci ay dëkk yoo xamante ni régions yi ñu yi jógee ci dëkk yooyu ce sont des régions qui ne sont pas liées au Sénégal. bu nekkee quelqu'un et vient de la Guinée bu nekkee ñu ngi jógee côté Labé on est frontalier kon mën nga wax ni jege nañu. mais ku jógee beneen extrême mu Guinée bi kooku réalité yi muy dund bokkul ak ñu réalité yi ñuy am fii et ce que j'avais noté mooy ñoo ñëpp dañuy ñëw Sénégal liggéey Sénégal six mois sept mois am fi dara dajale ko dem émigré dem jéem a dem émigration ñi ma gis ce jour là ñoom ñëpp ñi ma gis ce jour-là ñoom ñëpp il travaillait ki ci gënoon tuuti les salaires aboon na quatre-vingt-dix mille par mois ñi ma gis ce jour-là même les sénégalais yi ma gis bi ma leen laajee dañ may ne woy ñaata la nga doon liggéey ñu ne la bon maa nga doon kon ci secteur pêche wala maa ngi doon def jaay bu ndaw ñaata ngay am par jour. ah yenn saa bu marché neexe ma am 5000 yenn saa yi ma am 3000 yenn saa yi ma am 2000 tu fais la moyenne ça fait 90 francs au moins par mois et 150 000 francs par par euh, par euh, par, par mois muy tekki Sénégal dañ ko considéré comme ëpp en matière d'immigration peut-être ça c'est notre position géographique mois ñii dem ñëpp les parents payent de moins en moins. Peut-être là, la presse a fait son travail, les parents ont été sensibilisés. xëy na bu amee ñuy fayal seen i njaboot bareetul comme ñoom dañuy liggéey pour mën a am dara pour mën a pour mën a mën a dem donc y a un problème de communication à mon avis qui se pose à ce niveau-là mais que qu'à cela ne tienne dans tous les cas le fléau il est là moo tax ma wax léegi nii d'abord il faut qu'on forme nos ci formation boo xamante ni dinañu mën a liggéey liggéey yi dëppoo li àdduna bi du dund tey parce que fii ci Sénégal am na fi ay chantier fii yoo xam ni on a cherche des carreleurs ou des menuisiers parce que tout simplement il faut liir parce que léegi plan bi dañ koy defar ci di détaillé dagg caro bi fii fii nga ko a placer il faut pouvoir lire nos jeunes ne pouvaient pas liir et ce sont des étrangers qui viennent ici di parce qu'ils peuvent liir ça c'est des formations yoo xamante ni je pense que formation technique bi am na loo xam ni war nañ ko def bu ñu ko defee dinañ mën yokk emploi yi mais li ma wax léegi suñu sunu politique alimentaire exemple bi ma jël parce que nee na am nañu ndox am nañu suuf am nañu courant am nañu ay ay yoon il est possible d'augmenter notre production agricole mmh. un d'avoir des structures de transformation qui peuvent être petites ou grandes selon les circonstances et qui vont employer beaucoup beaucoup beaucoup de jeunes moo tax ma dale en hypothèse basse C'est-à-dire que sans pétrole, avec un ou deux chocs sur cinq ans, ce qui arrive, ce qui peut arriver, on peut créer un million d'emplois dans la situation actuelle. xam nga sànq yaa ngi ne yaa ngi comptable d'une certaine manière et puis c'est, c'est, c'est tout à votre honneur ah comptable de du bilan du président euh, Macky Sall mais justement yaa ngi wax béy c'est 302 milliards d'importations de riz. Mm. 12 ans après 302 milliards lu bëri la. c' est vrai que population bi croissance bi tam doy na waar. parce que bu ñuy wax loolu dañuy def mais dama bëgg rek ñu ñëwaat sànq dafa am euh, soxna si lu mu wax si jigéen ñi je rappelle que 42 pour cent de nos femmes manquent de zinc plus de 32 pour cent de nos femmes manquent de fer conséquence ñooñu seen santé demeewul noonu ci xale yu góor yi. plus de 42% dañu manqué zinc on sait ce que ça fait sur l'érectilité donc peuple bu am santé mooy peuple buy liggéey mooy indi koom-koom te yow justement si administration ñu ngi wax liberté des femmes mais balaa nga am liberté taxaw wër wër wër la mm. beneen affaire boo xamante ne tam pourquoi famille la war la voter dinañ gën a am fer dinañ gën a am zinc ba pare balaa ñuy am yenn liberté yi. ma continuer ma continuer ma continuer balaa may perte l'idée. parce que y a une compte man man euh, j'aime bien les chiffres et j'aime une je fais une analyse scientifique des choses nekkuma ci émotion beneen affaire bi. xanaa Charles Safor la doon liggéey. Euh, Safor musuma liggéey Safor beneen affaire yi damay jël par exemple Anacard. oui bu ñu koy dugalee Sénégal érosion érosion des sols. ak condition climatique parce que dafay kii condition climatique aujourd'hui ñu ngi wax cent quarante cinq mille tonnes yoo xam ne lañ koy jaay mais dañ si dugal produit boo xamante ni ginnaaw gis Guinée Bissau la jóge je prends la Côte d'Ivoire trois cent tonnes en mille neuf cent soixante dix trois cent tonnes 2015 ñu nekk le premier producteur mondial aujourd'hui ils sont à 2 millions 250 mille prévision 320 millions 321 millions pour être exact c'est exportation matière première plus transformation alors tey la question que je pose et puis je peux en prendre Thiès voitures ñu dem uti ay Iveco ñu dem uti ay oto feneen alors qu'on pouvait avoir des voitures basiques parce que boo demee Malaisie boo demee yenn dëkk yi Philippines Euh, Vietnam si dëkk yokk yooyu ma xam bu baax a baax a baax ils ont opéré des ruptures pour liggéey seen bopp seen dëkk transformation industrie automobile industrie pharmaceutique Sénégal am na loo xamante ni ay garab on importe 202 milliards de médicaments qui passent par la France quel que soit l'endroit d'où ils viennent dans le monde ça passe par la France est-ce que la France va continuer d'ailleurs à être ce carrefour là kooku tam beneen kii ba lay posé la donc comment se tey lu ñuy wax loo tax ma ne comptable de tout ça par quel procédé la ñu mën a dem ba nga xamante ne dañuy ne ñun dañuy confiance euh, le candidat Amadou Ba. waaw bon Charles sa sa donnée foog ma foog ma vérifier ji ko. des chiffres de de ah, les chiffres que je donne. ce sont des chiffres de l'agence. non non. attention je ne du ma wax jamais. nii non non non je te crois. mais ah, ce sont les chiffres de l'agence nationale de de de de kii lu mu tudd démographie et statistique. ANSD ah, non non je dama la wax nii bon. vérifiable. non dinaa xoolaat sa sa sa sa chiffre yooyu c'est vrai que selon les localité effectivement mën nañu am ay population yoo xam ni dinañu am lu leen di manquer mais ça lii lié un peu à yenn say li ci ëpp. l'alimentation. non ci environnement bi parce que alimentation bi li li ngay li ngay dundee mi sa environnement li ci ëpp li ngay dundee boo demee ci dëkku kaw yi bu nekkee foo xam ne dugub bu fa ëpp alimentation li ci ëpp ci dugub lay jógee. boo demee foo xam ni la fa ëpp ci ñebe la lu ñuy togg ci ñebe dina ci bokk. justement ñoom dañuy am fer bu ñuy lekk ñebe bu ñuy lekk dugub tam ñuy am zinc. non moo tax justement moo tax ma ne la. ceeb lu ñuy lekk am suukar am jabet. waaw oh non. après que ñuy gàttal question yi. pour gagner du temps. waaw non non bàyyi leen mu suruxlu bàyyi leen mu suruxlu parce que non non non s'il vous plaît. s'il vous plaît parce que parce que non non non non non la discussion elle est très solennelle. mais justement justement parce que mënuma am ku nekk ministre des finances s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît nekk fi tikki ah Charles. voilà léegi Charles léegi Charles pour gagner du temps na question yi di gàtt heureusement ba ba ba ba président Amadou Ba. moom tant que fajar jotul ba mu julli fajar ba pare du tëdd. donc mën nañ ko téye ba après fajar. Ah, incha allah ah, yërëm ma mais jox naa la ndogu naa la jox xëdd. mais mais mais beneen affaire mooy. voilà des questions rapides pour gagner du temps Amadou Ba mm-hmm. franchement. Euh, laissez-le quand même répondre à mes oh, questions. quand même ça commence comme ça. on peut pas passer comme ça. c'est quelle démocratie ça il a demandé à ce que ñu jox ko temps mu dem vérifier chiffres yi nga génne aussi. donc le temps mu ah dem di ko vérifier non munoo nekk déet. munoo nekk candidat. da dafa am loo xam ne dama ko nangu aussi. quand même quand même ah oui non soyons sérieux. quand même munoo nekk candidat. Mm. moi ce que je dis c'est des chiffres que j'ai vus. Mm-hmm. du ma ñëw fii di raconter n'importe quoi. kooku dama ko def je ne l'ai jamais fait je ne vais pas commencer aujourd'hui ce que je dis là parce que il y a une manière émotive de poser des questions très émotives. Ah. moi je suis pas dans ça moi c'est raisonner. je dis quand on parle ba nit droit nit yi manqué faire. waaw quand même non xam nga dafa important ci ci wér gu mais écoute xam nga xam nga Charles. vitamine moi bien ça. parce que bu ma xamulee damay laajte su ma gisee ni lii jafe-jafe la j'essaie de trouver une solution. moi je suis formaté comme ça et du ma du ma daw débat du ma du ma daw débat ñun on est quand même un pays en voie de développement. waaw ah, sunu revenu par tête boo ko xoolee ba xool ko ça tournait autour de euh, mille euh, voilà ba mais maintenant c'est vrai que Sénégal am na euh, martaba réew mi xam nañ ko mais am na fu réew toll des avancées significatives def nañ ko mais lépp jeexagul c'est ça aussi la la vérité on a fait des avancées mais jeexagul aujourd'hui on a une autoroute jusqu'à Kaolack mais les populations de Tamba méritent qu'une autoroute y aille les populations de Ziguinchor méritent d'avoir une autoroute ñi nekk euh, dans le Fouta mérité nañ ko mais ça va venir au fur au fur au et à mesure maintenant un boo bëggee un développement endogène nga bëgg équité li nga war a njëkk a def ci sama xalaat mooy fexe ba nit ñi am ay revenus les conditions yi ñu war a créer revenus wax naa leen ko léegi nee naa leen y avait des infrastructures de base yu manqué woon léegi am nañ ko il nous faut maintenant rentabiliser li wër autoroute yi par exemple quand tu as une autoroute qui si tu vas àll boobu mën nañ fa bay lu baree bari mën nañ fa def lu baree bari il des possibilités avec de bonnes réformes dans l'administration parce qu'il faut éviter aussi euh, Charles bëgg a defar euh, usine am ñu koy dawloo di ko yéegloo di ko wàcculoo suba ak ngoon ça aussi ce sont des questions qu'il faut qu'il faut régler mais si aujourd'hui ne serait-ce que le long de ces voies qu'on parvienne où il y a de l'électricité que ñu mettre feu des entreprises de transformation qu'elles soient petites lu ndaw wala yu xaw a yema mbaay wala sax euh, de gros investisseurs ñëw euh, parce que y a un potentiel ñëw def foofu ay entreprise bu mag ça fekk quand même beaucoup d'emplois te kii dit emploi di beaucoup de revenus maintenant une fois que revenus yi nga ñu am ko mu doon di revenus monétaires la nga xam ni dañ koy soxla da leen fay fekk si man bu ma amee doon jaaykat bu ma xamee ni bërëb sàngam bi am na lu fa nekk comme tey boo demee masalan Richard Toll tu trouves beaucoup d' activités autour de Richard Toll lii ngay wax ni peut-être boo demee Richard Toll doo fa gis lu mel noonu mais peut-être boo demee ci beneen localité mën nga fa gis euh, lu mel noonu je pense que c' est sur ces questions la li ñu war a njëkk investir moo tax je me suis défini comme le président de l'emploi des jeunes je dis que aujourd'hui on a fait de gros investissements physiques. Il faut dérouter une bonne partie des revenus vers la, euh, vers la jeunesse, surtout dans le domaine de la création d'emplois, pour booster la création d'emplois. bu ñu ko booster booster la question liée au financement des femmes notamment il y aura plus de revenus pour les Sénégalais et les Sénégalaises et à partir de ce moment la préoccupation que tu as, elle va se, se, se, se régler d'elle-même. loolu la la loolu la la bëgg wax. et nag une question rek par rapport à. waaw attends une question mais Charles non non non non Charles ah, de ah, l'aménagement du territoire. mais Charles dama dama bëgg a dama bëgg a euh, ñaari question yu ndaw yu gàtt rek waaw waaw. question yu ndaw Babacar Fall. Malal après Gagné na. d' accord après bijou pour jigéen ñi. non non bijou épuisé na ay question ah waaw waaw bien sûr. <laughs> oui ma <laughs> ah, président waaw yu gàtt bu njëkk bi mooy foofu nga toog noonu ah, Khalifa Sall daf fi toog ah, président Idrissa Seck toog fi biñ leen laajee kan mooy seen adversaire yow dañ la génne ci course bi dañ la génne totalement ne en tout cas yow moom doo seen adversaire minimiser. Euh, li nga war a def ci élection yi loolooy dëgg ñu ngi fii toog xaj xa fàtte xaju fi beneen bi mooy dama xam nga collègue collègue dafa am solo parce que Charles sama collègue la dama grand la sama collègue la Pape Cheikh sama collègue la Dijou Malal ñun ñëpp ay collègue lañu des fois euh, temps bi ngay nekk ak sa collègue doo ko nekk ak sa waa kër c'est une vraie famille nga am ay collègues yoo xam ne yéen a bokkoon bureau même soo leen jiitoo parce que man euh, je considère que Pape Cheikh euh, patron la mais duma patron parce que sama collègue la donc ñoo bokkaloon fi ngeen doon liggéeyee lu yàgg pendant des années ñoom ñu génn def seede bu négatif ci yow doy dëgg jiiñ la luubal jiiñ la leneen ne la yow yaa yées président Macky Sall du sama ay tu du sama ay kàddu kàddu Ousmane Sonko la yow boo doon seede ci ñoom ñaar ñi nga bokkal collègue lan ngay seede ci ñoom. xam nga nag man wax ci nit lu ñaaw yàlla def na ne nag adowu ma loolu moi je suis leur grand frère man maa leen jiitu ci administration bi. yàlla dafit kenn ci ñoom jàngal naa ko xam nga am na loo xam ni buñ koy wax nit ki masala ñu ne kii dafay luubal nga nekk ci administration amoo fa nijaay amoo fa ndey amoo fa baay chef de service nga nekk ko mais yow da ngay rek directeur ñu tànn la da ngay luubal rek directeur général ñu tànn la la ngay luubal la te gisagoo rapport bu bind ni kii dafay def nii wala dafay def na le xamal ni kooku ay ay ay ay wax la rek ay ko ni ko. question non bàyyi mu toll non non dimbale ma rek après nga posé ay question bi sa question bi dafa revenir lu bëri ak internet. waaw waaw mais moo moom laay wax ni est-ce que laa moo tax ma ne ko luubal da rafetal. campagne la ñu nekk li ñu laaj kañ leer man ma nekk directeur général mhm. la ma mën a def sama bureau fii directeur général bi lu mu mën def ci bureau mhm. journaliste bu nekk fi mën na ko xam. déedéet ceeb yi muy rawale bureau am duñ ko yëg. xam nga. Euh, euh, Sonko n'est pas candidat. en résumé Sonko Sonko mënul woon jot ci yow. no non pas jot jot ci ma non non non on a on avait des relations très correctes bi ñu nekkee impôt hein. il dirigeait le syndicat moi j'étais euh, directeur général boo jëlaatee. ay waxam di dégg ay wax yoo xamante ni. Ah, mais mais lan ngay lan ngay seede sa eh, si ñoom. man loolu question bu am import lan nga fan ngeen jaar. bu jaar ak comme agent wu la question ci écran bi. parce que c'est ça qui revient de ñu baax lañu sama njaboot lañu yàlla dafa dogal moom ci coobare moo ma boole ci impôt domaine mënoon damaa def leneen defuma ko. Mhm. impôt domaine cër bu fa nit war a mën a am. cër bu fa nit mën a am war a am. yàlla defal na ma ko ci kër gi mooy commencé ci suuf dem ba yilif kër gi yëpp kooku moom li may ñaan rek mooy jàmm di fa am ña fa nekk ñëpp it ma leen di ñaanal ñu am jàmm ju rëy mhm. réforme yi yi ci ëpp yi ëpp ci réforme yi ci sama ay lañ ko defe woon yi ci ëpp laa wax kon defe naa ni la ma waroon def def naa ko ña fa nekk ñu ngi liggéey bàyyi daa leen xel lool parce que nit ki bu nekkee ci mbir nga nekkoon boo ci jógee euh, loo fa dégg it di nga ci di nga ci di nga ci bàyyi idée xalifa vraiment j'ai awma ci benn appréciation jàpp naa ni dañuy politique euh, waxi politique la euh, bokk na ci je suis je suis peut-être ñoom dañ ma jàppee maay seen adversaire et puis ñu nekk ci politique gis nga boo xoolaatee Sonko 2000 ba 2017 daawul tudd kenn man rek la doon tudd les les boo jëlaatee seen kii Amadou Ba def na ni def na ni bi mu jotee ci Macky Sall dafa ma bàyyi may ma jàmm ba waa APR yi jàpp ni non sax Sonko sax am Amadou Ba daf koy financer c'est faux Amadou Ba moom moom ah, kii Pastef c'est faux ah Amadou baa ngi diggaale ak ñoom tout sax c'est faux. Mm-hmm. Euh, léegi Macky Sall peut-être est sur le départ on revient à Amadou Ba Amadou Khalifa nag Idé Khalifa. la wax. mais j'ai aucune appréciation sur Idé ak Khalifa sinon appréciation yu baax euh, très honnêtement parce que man ni ñu gisee politique Sénégal fii ak man ni ma ko gisee du benn. moi je pense que nit ki waroo mel wala waroo bëgg dara ba ñàkk ay valeurs. Ah. man euh, Khalifa on est. adversaire il cherche à conquérir le pouvoir man je cherche à conquérir le pouvoir mais daje nañu dama wàcc ñëw nuyu si ko d'abord euh, moo a mag mais ensuite seq nañ jàmm parce que il n'y a pas de raison bu ñu dajee ci dëj di accolade bu ñu romantee du ñu nuyante boo demee léegi ci benn dëj gis fa responsable yëpp ku gis sa morom accolade ko bu ñu génnee di sàggante man bugguma dugg ci loolu man dama bëgg ñu def politique bu campagne bi jeexee jeex na ñu jublu ci liggéey mais ni ñu bëgg def nekk de professionnels de la politique di saaga guddeeg bëccëg mais réew mi li mu gën a soxla mooy ñuy liggéey et lii ma wax ni xëy na tey je suis candidat bu ngeen demee assemblée nationale en 2017 nekk naa ministre des finances di présenter loi de finances ñu jëm ci élection ma doon présenter loi de finances su 2018 ñu jëm ci élection 2019 parce que xam nga élection bi c'est en début d'année donc l'année qui précède bi jiitu élection bi daanaka ci la lépp di am bi ma député yi laaj dama leen ne man 2019 yitteelu ma li ma gën a yitteel mooy 2018 fexe ba préparation élection bañ a doon loo xam ne day delloo réew mi ginnaaw. ça je l'avais dit à l'Assemblée en 2017 je ne savais pas que j'allais devenir un jour candidat fi mu nekk nii sama bi ma nekkee premier ministre ma préoccupation était que préparation élection bi coow yi muy jur xëccoo yi muy jur bañ a gàllankoor réew mi moo tax je recevais je discutais j'essayais de trouver des compromis pour réew mi bañ a dox bu réew mi mën a dox parce que ñu def élection ba pare kuy ñëw doo fa fekk dara c'est pas la peine ça c'est pas aimer le pays vraiment ñoom ñëpp daal maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam. je bu ñu dajee. même ni samay cortège damay daje. siif xale yi ñu la. président Amadou Ba les réformes. loolu tamit sénégalais yi ñu ngi laaj. Ablaye. ah non non mais du jàkkaarloo tamit toi aussi. mais nga une question. non non posé nga posé moi dama siifoon. posé nga une question sur les mais Der da ngay séddale. amuloo droit amuloo droit amuloo ñun yow da ngay séddale. der et puis sur les réformes il a répondu. il a répondu bàyyi Babacar non j'ai pas fini de répondre. Ah, ah, oui il a et puis der sur la justice. mais der sur les réformes xam nga les réformes amoo droit séddale. waaw ah, waaw. Babacar. waaw léegi léegi euh, beneen question. mais benn benn. d'accord <laughs> voilà merci. Euh... mais émission bi kon neex na <laughs> ah. c'est nous. mais ci ci li nga xam ni moom mooy. Euh, euh, euh, li nga xam ni moom mooy. Alzheimer bu mooy perturbé. désolé désolé désolé c'est-à-dire que c'est-à-dire que. Mm-hmm. Euh, alors je passe la main quoi. désolé désolé donc président je vous convie à malal ah, de l'administration xam nga xam nga. Euh, mm-hmm. désolé dafa am lu ñoom loo xam ne dañ ko euh, bu ñuy wax souvent plan Sénégal émergent. Mm-hmm. dañuy jàpp projet yi rek fàtte réforme. biñ koy doog a def. plan Sénégal émergent ay réforme ay ay projet la woon ak des réformes il y avait au moins 17 réformes yu ñu waroon def def nañ ci projet yi lu bari defuñu ci réforme yi lu bari jàpp naa ni yenn gàllankoor yi foofu la nekk ci réew mi parce que il faut que réew mi am na ñaari handicap ba ñetti handicap yoo xamante ni boroom xam-xam yëpp nangu nañ ko administration faw ñu réformer ko et je à l'aise pour en parler parce que ci administration la bokk xawma leneen lu dul administration bi ma nekkee impôt yu domaine def naa fa ay réformes yu bëree bëri yoo xamante ni euh, je pense am na lu mu yokkal administration bi ci li ma xalaat Euh, am na lu mu yokkal administration bi ministère des finances am na ay réformes yu ñu def en termes d' organisation ba am na aussi lu mu yokkal euh, euh, ministère bi réforme administration foog ñu waxtaanee ko xool ko quelle administration pour l' émergence mm-hmm. waaw c'est une question qu'il faut poser je ne dis pas que dañoo war a jël lépp gomme ko waxuma loolu de. Hmm. mois je suis pas partisan d'une rupture qui signifie tout détruire et tout reprendre je ne dis pas ça. Hmm. waxuma loolu dama ne li fi nekk nañ ci sukkandiku jéem ko améliorer xool li ci baax ñu gën ko yokk li nga xam ni am na ay jafe-jafe ñu xool nan la ñu koy corriger ba keneen ku koy def ba ñu amati jafe-jafe yooyu c'est ce que j'ai dit. moi je veux ñu def ay réformes yu bëree bëri. wax naa léegi justice mais même administration foog ñu xoolal ko. administration dans son ensemble pour mu doon une administration boo xamante ni daf dafay gunge ci émergence or administration am na lu ma ci xam tuuti ñu ci bëri ñu nekk administration de commandement. gis nga bi ma nekkee impôt. bi ñu fa njëkkee créer service aux usagers aux contribuables dafa jaaxaloon ju bari parce que boobu administration bi xamuloon loolu bu ngeen di fàttaliku impôt ñu ngi ko du tuddee woon bloc fiscal. Mhm. bloc. la tuddoon. Mhm. c'est après qu'on a créé des espaces ouverts former nit ñi ci ñu ñuy mën di waxtaan mën a déglu nit ki même bu nit ki tooñee même bu nekkee da nga koy rey mais waxtaanal ak moom. Mhm. naxanteeg moom. parce que est là on doit être au service des usagers au service mais loolu c'est toute notre administration qui en a besoin aussi bien boo demee ci hôpitaux yi on doit bien t'accueillir bu garab amul saxit on doit te soulager jël la en charge mais yenn saa yi il arrive nga gis ay scènes yoo xamante ni mais ça c'est un c'est de formation il y des réformes yoo xam ne mënatul ñàkk ci sunu administration mm-hmm. maintenant mënoo régler doo yëpp am na ay secteurs yoo xamante ni foog ñu def ci réforme yu gaaw pour libérer le potentiel de croissance waaw def ci ay ay ay ay ay réformes euh, mën nañu jël benn secteur comme le tourisme ñu ne bon on fait un focus je prends un exemple hein, mm-hmm. euh, sur le tourisme mm-hmm. wala nga ne bon industrie bon quel type d'industrie nga ne damay jël industrie alimentaire naa ci def nangam bi wala damay jël euh, beneen industrie extractive chimique et cetera je pense que Euh, euh, euh, bu ñu ma si je suis élu la semaine prochaine je vais avoir beaucoup de comités de réforme mhm. maintenant moi j'aime la concertation transparence bonne gouvernance transparence bonne gouvernance ci yëpp mais là on a tu sais fii yu bëri bi nga fi am les gens di wax di ŋàññ fekk tout simplement c'est c'est un manque d'information à la base mhm. et je suis bien placé maa ngi gouvernement bi fekk maintenant il faut pouvoir discuter avec les gens parce que nit ñi bu bu ma nee réforme justice ñu dajale leen ñoom ne leen mais Sénégal lii la bëgg sénégalais lii lañu ñu bëgg quelle administration il faut pour mën a def loolu ça coûte combien et combien de personnes ñoo ko war a def ña koy def yan xeetu jàng lañu war a jàng ñu dajale loolu yëpp jox ko borom xam-xam ñoom ñu xool mais bu ñu ko andilee président de la République il fait maintenant un plan lii d'accord naa ko parce que dëppoo na ak li bëgg lii il faut me convaincre davantage lii réew mi attanu ko nañ ko bàyyi ba jëmmi jamono li ñu d'accord on fait les lois on fait prend les décrets on, met en œuvre les mesures de programmation man noonu laa gisee jiite c'est-à-dire que il faut quand un problème se pose tu tu tu tu confies le problème aux experts plus maintenant pas que administration toog tu prends un conseil technique ne ko bindal ma une loi sur euh, euh, code de la famille ñu bindal la benn code de la famille nga xëy yóbbu ko assemblée mu andi coow c'est pas ça da ngay dajale nit ñi ne leen bon voilà toll. maintenant lii xewi na lii xewiwul. attends une question euh, trois non tu as posé. oui d'abord vous avez trois questions les ICS. oui Charles Charles non. tu es ça tu le personnel de l'état civil est en grève. Kédougou c'est 538 milliards or. non monétaire. je je vais la plus pauvre. xam nga xam nga ci daf may poser ay questions yoo xam ni dama ciy mën a tontu en tant que candidat wala mu mën ci tontu en tant que premier ministre parce que aussi on a le droit d'éclairer. je je veux bien. on a je le droit mais on a, vous avez raison on a, a le droit d'éclairer. en fait moi j'ai reçu en tant que premier ministre les agents communaux man recevoir naa avec les membres du gouvernement. on a marqué notre accord ci revendication bi pourquoi parce que dafa am benn texte bu wax ni lu ñu jox agent wu secteur public dañ leen ko war a jox ça c'est un texte qui le di donc bu nekkee da ngay àtte dëgg rek loolu la texte bi wax da nga war a àtte loolu sauf que on avait un problème pour xam ci maire yi ñaata lañu xaw ma ndax dégg bu baax li ma la wax moi-même j'avais demandé nañ ma defal audit ma xam ñaata agent ñoo concerné ñu jox ma trois paniers ñii ils sont concernés ñii euh, des na ñii concerné wu ñu maintenant ni maire yi di recruter ak ni état bi di recruter du benn bu nekkee avantage boo jox état ñoom mën nañu recruter état bi jox leen avantage boobu bu yàggee état bi dootu ko supporter yaa ngi dégg bu baax li ma la ba ci conseil de ministres bu mujj bi proposition bi ma defal nga xam ne moom laa proposé président mu nangu ko dañoo ne ñi nga xam ni seen dossier wóor na on ferme on ferme ñu jéem leen a jox seen i avantages mais nañ leen koy joxe ce sont les maires qui doivent payer maintenant am na ay maires yu mën ak maires yu mënul c'est ça la difficulté ñu ne leen ci fonds de dotation yii di ñëw nañ def péréquation ba nga xam ne maires yi mënul yi dinañ mën a supporter ces charges additionnelles bi may jógee ci bopp gouvernement bi ci question technique boobu lañ doon régler pas autre chose parce que maire yi tout le monde sait que recrutement bi yenn saa yi mën na demee anam boo xamante ni bu nekkee ñëpp dañoo war a verser fonction publique bon ça va être ça va être ingé euh, ça c'est le c'est c'est bon je parle en tant que euh, premier ministre parce que opinion mën nañu bañ a xam lan moo xew mais ñoom ils doivent savoir que c'est un dossier qui est pris en main mais maintenant il faut que ñu régler préalable yooyu bu ñu ko régler Uh, je pense que le ça va. yes um, ñaa gisuma la woon ah, maa ngi lay nuyu man ak yow bokk fu ñu jógee on a la même histoire waaw donc euh, maa ngi lay nuyu bu baax mais man dama ma une question euh, dafa am ay question yoo xamante ne pour man il faut qu'on les règle c'est-à-dire la première question mooy euh, la question de la copie privée. de la copie privée. pour les acteurs. les acteurs pour, oui. qui sont. ceux qui sont dans la culture. Pour les artistes. Les mmh. artistes. Également aussi, le président a porté le fonds de développement des cultures urbaines à 2 milliards. Oui. Vous maintenez ce fonds, vous l'augmentez. On le renforce. Oui. On a dinañ am un programme culturel assez ambitieux. Yeah. Parce que euh, réew c'est un tout hein. Ouais. C'est autant les infrastructures physiques, autant l'économie, autant le sport, autant le, la culture. Lu ci manqué rek réew mi dina sooxe. waaw beneen bi ci topp mooy euh, est-ce que comment comptez-vous euh, corriger les disparités entre les fonctionnaires parce que ki nekk impôt et moo ëpp ay privilèges que l'enseignant qui est là-bas à Fongolembi di jàngale te moo jàngal sax ki dem impôt et donc te les inspecteurs sont peut-être mieux traités donc il y a des disparités à corriger leneen li ci topp est-ce que l'amnistie Est-ce que la paix sociale vient, vient-elle de l'amnistie ou de la justice question bi mu mujjee laaj boobu il faut que ñu approfondir est-ce que la paix sociale vient de l'amnistie ou de la justice peut-être des deux à la fois d'ailleurs je que euh, jàmm moom loo ko jëndee jar na ko c'est parce que ñu ngi ci élan wu jàmm que effectivement aujourd'hui en tout cas ce que j'ai vu ci campagne bi ba ba tey jii c'est c'est une campagne moins violente il euh, a quelques échauffourées ça et là mais c'est plus euh, campagne boo xam ne nit ñi dañuy kaf dire tu vois des foules des gens se croisent li ma dégg ci ay incidents am na parce que mënul ñàkk parce que toujours ya y des jeunes qui sont qui sont euh, qui qui peuvent être excités di sànnee xeer mais Euh, bariwu ci en tout cas en tout cas par rapport aux campagnes yi ñu daan faral di gis euh, bii melul melul noonu donc euh, je pense que ce li président def en en amnistiant je pense que ça a contribué en tout cas à préserver un climat de paix et de sérénité et Dieu fasse aussi qu'après les élections que que ça continue. allahumma amiin président man fi may laaj mooy. sama mbokku taalibe yaa ngi ma koy bind sànq ba léegi. Gajaga dogguma la de la question sur les disparités entre les fonctionnaires. xam nga wax naa la léegi réforme de l' administration. Euh, sunu administration euh, y a eu malheureusement beaucoup de mesures yu ñu jël yoo xam ni saa a créé par moment beaucoup de problèmes dañuy yokkal waa impôt dara magistrat yi laajte ñu yokkal magistrat yi waa douane laajte ñu yokkal douanier yi ñeneen ñi laajte corps bu nekk. ak liggéey bu am nga say say spécificité loo xamante ni yow yaa ko moom yaa ko war a am mais li bokk ñun ñëpp il faut que ñu jéem ko gën a équilibrer et je pense qu'il faut une euh, réforme que dans l'administration qu'on discute mieux même depuis la formation d'ailleurs depuis la formation à l'école en tout cas pour école bu mel ni ENA moi je pense qu'aujourd'hui même les appellations war nañu ko changer inspecteur des impôts ou inspecteur des douanes je pense que jamono ji toll na foo xam ni c'est pas ce qu'on doit mettre en avant est-ce que war ñu leen tuddee administrateur des finances publiques est-ce que war ñu leen tuddee administrateur des impôts je pense que c'est des réflexions de cette nature et créer aussi euh, beaucoup plus de complémentarité entre les administrations loolu mooy wàññi rivalité c'est-à-dire que bu nit ki euh, mën na jàng impôt dem servir trésor wala nga jàng trésor dem servir douane wala nga jàng administration général ñëw servir euh, ñëw servir euh, impôt et ça c'est de modèles que man j'ai expérimenté xam nga li ma wuteeg yeneen candidats yi lu ci bari dafa fekk ma testé ko ci échelle bi ma toll woon gis nga impôt maa fa njëkk am conseil technique gu cadastre xam nga impôt cadastre ngi ci biir ba bi may ñëw nekk directeur général Caras musul am conseil technique auprès du directeur général. man maa ko fa njëkk a def man maa njëkk a jël koo xam ne du imp bokkul impôt dénk ko fa structure ça crée des problèmes au niveau des impôts ci ci jamono jooju. kenn ki kenn ki ba tey moo yor mutuelle bi maa ko fa tefal ba tey ji parce que dans les dans les grandes administrations la fa nekk toujours ñi bokk ci administration bi ñoo koy akimo du ñu nangu keneen jël ko bi ma ñëwee ministère des finance ñi bokkul ci régie financière yi bokk naa ci ñi leen njëkk a promouvoir man dama gëm ouverture dama gëm complémentarité c'est ku nekk jox ko cëram mais il faut faire preuve d'ouverture parce que foofu la xam-xam di jóge kii dee jàng lii kii dee jàng lale kii xam lii kii xam la lale mais euh, boo nekkee ci instance de décision il faut que ñun ñëpp wër la mais bu la benn catégorie wëree rek beneen catégorie bi amoo ko boo moytuwulee mën ngaa jël di décision ki sont qui sont qui sont biaisées. mais mais li ma li malal malal joxoñ nii inspecteur impôt domaine li ñuy am nii te ñu bëri jàpp ne dafa jéggi dayo Sonko en tant que syndicaliste jamono yooyu moo ko doon kaas moog ñi mu àndal. yow en tant que directeur général nga signé. du noonu la am maa ko signé parce que système bi amoon c' était un système inégal man j'ai profité de ce système man bi ñuy commencé avant syndicat bi di am mais attends tu da man daan naa ëppale sama directeur général li may fayeeku moi daan naa ëppale sama directeur général li may fayeeku man bi ma ñëwee nekk directeur général avec le syndicat effectivement la ñu jéem a def loo xamante ni c' est beaucoup plus. Euh, équitable bien que ba tey am na ñuy ñoo xam ni kontaan nañu mais c'est encore mieux que li fa li fa nekkoon man daan naa am ay trimestres yoo xam ne je pouvais payer être quatre fois ou cinq fois mon DG. donc euh, président man dafa am boo xamante ni sa mbokku taalibe yaa ngi koy dugal tout le temps rek di ko laaj nii. Hmm. ma jàllale leen ko mooy ndoxu Touba. Lac de Guiers lay jóge waaw ndax. looy régler la bu la yàlla defoon c'est une priorité absolue. dernier conseil interministériel bi ma def bokk na ci dossier yi nga xam ni euh, traité traité nañ ko. cest à que la question de l'eau mhm. et de l'électricité bëgg naa fi ak deux ans doomu Sénégal foo mënti nekk ci Sénégal am courant wala am ndox. bi may daaneele nag mooy. donc ndoxu Touba pour que ça soit très clair. nag la jógee. Euh, études yi def nañ ko. war nañ ko mën a xëccee Lac de Guiers maintenant détail technique yi fon lay jaar ak nu muy yeggee foofu euh, là il faut peut-être poser ça aux de de de de lidrolique mais lu financement bi jar naa ko wuti te dinaa ko am bu soobee yàlla. incha allah donc fi may daaneele mooy dafa am loo xamante ni da nga liggéey ci wàllu xaalis régie bi ci lépp. Oh. def échelle yëpp. affaire ne nekk fi débat bu bu taxaw ci biir campagne électorale ren bi. yow lan mooy sax xalaat ci franc fa bi. di nuyu nag sama mag bu ma gis ni yéen a ngi ànd muy docteur Malick Diop boo xam ni def nañ ay combat yu bari mën a moom surtout ci M23. xam nga réew da ngay am ay priorité réew mi fi mu toll tey tey tey stabilité lañu ñu war a uti gis nga soppi moo ne rek instabilité la balaa rek ngay rocc bi yi. bay am yeneen billet di ko dugal ak foo koy wékk instabilité la boo amee mone boo xam ne sa mone bopp la xool ko ci yenn réew yi ko am inflation maanaam ay njëg yu yokk bari na nga fay dégg inflation. c'est tout un travail bari na ngay dégg ci réew yooyu dévaluation réew yi ko am wër te ñu tolloo ñoom doole waxuma la réew yi am doole nga xam ni. Euh, am nañu yeneen capacité débat boobu je pense que c'est même un débat dangereux tey jii fii sa Sénégal toll stabilité la ñu war a ut maintenant am na loo xam ni amoon na fi te amatul mooy jamono ji ñuy wax franc fa ba sax ñu ngi koy wax moitié réserve yi banque de France nekkoon comme garantie loolu amatul réserve yi ñibbisi nañ maintenant li des peut-être mooy xëy na ñu soppi tur bi tuddee ko éco wala tuddee ko courrier wala tuddee ko leneen maintenant war nañu mën a am convention ou avec la France ou avec l'Union européenne ou avec les États-Unis fexe ba sunu monnaie ñu mën ko wékk ci yeneen monnaie yu ñu réew yu ñu ëpp doole. je vais poser une question comment on a la parité fixe alors. comment. parité fixe bu ñu am ak euro si kaw lan lañ ko lay tënku. non je dis que la, la la parité fixe aujourd'hui waaw. repose sur nos capacités parce que monnaie dañuy évaluer valeur bi même les pays qui ont leur propre monnaie on te dit que dans ces pays boo demee euh, seen monnaie enfin euh, seen unité monétaire bugguma euh, tudd réew seen unité monétaire nangam la ci dollar nangam la ci euro c'est la même chose qu'on a ici sauf que ñun li ñu am bi ñu demee ba xool sunu xaalis li mu tollook ak euro dañ ko garantir ne lii du yëngu am na nag ay boroom xam-xam yuy ne mën nañu am flexibilité limitée nga yokk de deux point trois point di wàcc de trois deux point trois point am na ñu koy xalaat ndax ñun amuñu beneen instrument bu dul instrument budgétaire budget rek la ñuy utiliser or monnaie aussi instrument la mais tey ji fi réew yi toll ak seen fragilité sécuriser investissement yi je pense garder le statut actuel maintenant qu'on change l'appellation kooku euh, pour man c'est pas l'aspect le plus important sunu réew dafa jëm su euh, gis nga koom-koom dafa war jouer un rôle important mhm. donc am na loo xam ni di ko caaxaane sax tu es en train de porter préjudice au pays dans la durée dans dans le long terme mhm. dès lors que nga dugal damay changer monnaie oh. un investisseur demain boo xam ne yëf yi leeragul ci moom. Mhm. dana la xaar ba nga pare. Mhm. or réew mi dafa soxla. dès le 2 avril. que tout le monde ait confiance que les Sénégalais aient confiance commencé di liggéey bu baax a baax mais aussi que les étrangers aient confiance andi seen alal ci réew mi di liggéey parce que on aura une paix véritable des institutions qui marchent mhm. mais aussi politique économique bu tegu ci yoon politique économique boo xam ne da nga koy wékk ci li la neex Euh, di nga ci wéet sa bopp. et on l'a vu aussi dans d'autres pays boo xam ne da nga ñëw ne lii laay def lii laay def gars yi banque seen loxo toog seetaan la boo ko defee ñaari weer ñetti weer dootoo jaar ci bunt bi sax ci palanteer bi ngay jaar dem di waxtaan ak ñoom ci ay conditions yu gën a ñàkk transparence et je parle aussi en connaissance de cause parce que yàlla dimbali na ma j'ai quand même expérience sur le plan international qui me permet de savoir exactement li lii lii am. président UEMOA dañ ko war a sàmm. fexe nag bu juróom-ñaari réew wala juróom-ñetti réew yi nekk UEMOA ñu yokk ci CEDEAO monnaie bi ñuy ut CEDEAO ñu am ko. c'est peut-être à long terme c'est peut-être dans cinq ans dans dix ans mais en tout cas moi je me battrai bu ma nekkee président de la République. pour que euh, la l'UEMOA continue d'être robuste mais que la CEDEAO aussi ñu am euh, notre propre euh, propre monnaie parce que intégration. mooy avenir bi gis nga intégration bi. Mm-hmm. moom mooy avenir mooy ànd. parce que mënuñoo tàggoo ñu tàggoog Mali ñu mënuñu tàggoog Mauritanie mënuñu tàggoog Gambie mënuñu tàggoog Guinée Bissau ñu tàggoog ñoom. Mm-hmm. kon li ñu jig mooy bokk. Mm-hmm. di mën a jógee fii dem Gambie liggéeyi Gambien bi mu jógee foofu dem Casamance liggéey wala ñëw fii integration bi rek moo ñu jig te moi je suis un adepte de l'unité et de l'intégration. voilà benn bi ma euh, ñaan Pape Cheikh nag benn bi rek. mooy intégration léegi léegi damay organiser waat sa mm-hmm. question internaute yi. Babacar Fall côté jardin côté jardin après ñu dem xëdd. jeex na kon balaa ñuy dem xëdd. xoolal ça pose souvent problème déedéet taay gouvernement gouvernement problème dañ koy diggee bu ci yeggee moo am problème. question bu gàtt la réponse bu gàtt la yow taayu gouvernement bi na naka lay souvent naan trente ministres mais après on se retrouve à quarante nekk hmm. si vous êtes élu taay gouvernement ñaata ngay def. xam nga. Euh, am na loo xam ne boo ko waxee. Mm-hmm. Euh, euh, dafay mel ni dafa am lu bëgg a wane. Mm-hmm. c'est que taayu gouvernement dafa dépendre ci organisation administration bi ni nga organiser sa administration noonu ngay xoolee structure administration bi ci yan ministère nga koy wéq. après interlocuteur. xaw yaa ngi dégg baax li ma la wax. bien sûr sama préoccupation majeure mooy administration bi am efficacité ñi mën a ànd ànd ñi nga xam ne war waruñu ànd ñu séparer leen à partir de ce moment le leen di yilif la leen di yilif muy ministère pour assurer la coordination ça va être facile à faire je pense que Sénégal am fi je ne pense pas que ñu ça doit tourner autour de entre vingt cinq et trente ministres au plus au plus. donc Vraiment, question question rapide réponse rapide. hypothèse plus haute haute haute euh, je ne pense pas que dina am gouvernement bu mot trente ministres. incha allah voilà question donc, rapide réponse rapide avant internet. question rapide. Mm -hmm. la diplomatie dama ko laaj Mame Boye Diao bi mu fi ñëwee keroog président Mame Boye Diao. Mhm. Euh, mais yow da nga nekkoon ministre des finances. Euh, ñu jàpp ni ambassades yi. dafa bari ratio bi boo koy xool sur 18 consule par exemple booy jël dañu la naan présentement sur 18 3 diplomates ñoo ci nekk ba dafay jur impression wu sénégalais de l'extérieur même en cas d'émeute wala dara bu xewee des fois dañuy song même ambassades yi parce que dañuy jàpp ni këru politique la ba agent yi booy xool agent yi nekk ci ambassades yi ci biti ngay def ratio bi ñan ñoo ci diplomate ak ñan ñoo nekk maanaam ay politique yu ñu ci dugal dafay bari dafay ëpp lool diplomate yi day den di day day doon nombre bu suufee lan nga xalaat ci boo ñëwee par rapport ak loolu ci diplomatie et je pense que bu ci tontu day nekk réponse rapide mais profité waxaale itam euh, lan ngay proposer sénégalais yi nekk ci diaspora bi immigré yi par exemple waaw yi maa ngi leen di nuyu ci ñoom parce que diplomatie bi foofu lay commencé parce que ñoom ñoo waroon parce que ñoom depuis sànq ñu ngi xaar itam et maa ngi regretté d'ailleurs bu baax mhm. li nga xam ne jotuma mën a def euh, tournée. Euh, au dem seeti leen fi ñu nekk. c'est vrai que dem naa ci réew yu bari gis naa sénégalais yu bari ci fonction yi ma amoon bu njëkk en tant que ministre des finances ou en tant que ministre de affaires étrangères j'ai eu à faire le tour gis leen mais en tant que candidat defaguma ko. France laa fi dem benn yoon ci visite officielle profité ci def euh, ak Congo profité ci def rencontrer de des les sénégalais de l'extérieur. mu ñu am solo banque bi mu tudd léegi am nañ ci wàll parce que boo xoolee euh, li ñu mën a tuddee alalu Sénégal te tubaab bi di ko wax produit intérieur brut daanaka 10 pour cent yi lu tolloog 10 pour cent mi ngi jógee bitim réew mooy li sénégalais de la diaspora di indi fii c'est li sénégal yi di dugal ci biir réew mi moo ëpp li ñu bailleurs di jox moo ëpp aide publique au développement loolu dafa war a tax senegal doon réew mu yaatu ñun parce que sunu njaboot a ngi bitim réew ci réew yëpp nag sunu njaboot a ngi foofu ñu ngi liggéey di àndi fii donc la nga xam ne war nañ leen ko defal mooy fexe ba li ñuy àndi fii mën leen a gën a jariñ et à partir de ce moment bi ñuy wut ñoom am nañ ci wàll am nañ ci cër. parce que véhicule bancaire boobu na leen permettre ñu mën a am épargne wala boog ci seen yu opération de transfert wala yeneen opération yi mën a def ñu jaarale ko foofu et loolu yëpp da yokk capacité banque bi loolu mooy benn. je pense que ñu ngi leen war nañu xalaat aussi en termes de logement fii il y quelque chose boo xam ne def nañ ko mais on va le poursuivre mooy ci programme cent mille logements bi ñoom la ñuy jagleel vingt mille logements yi. je pense que ça c'est un programme qui va être poursuivi parce que programme bu bu baax la maintenant au niveau de la carte diplomatique euh, Sénégal am na ay ambassades effectivement yu yu bari mais am na réew yu bari yoo xam ni mënoon nañ fa am waroon nañ fa am ambassade amuñu ko kooku mooy benn élément bi nga xam ne war nañ ko noter boo demee même fii ci biir Afrique da nga gis réew yoo xam ni xëy na mën nañu bañ a digaleeg ñoom ci wàllu koom-koom lu bari. mais la fa nekk ci sénégalais bari na kon mënoon nañu am ou ambassade wala ñu am fa consulat amaana nag maintenant euh, aspect politique yi nga xam ne dafa dugg du rek ci ambassade ci diaspora bi ba nga xam ni euh, laa ci Sénégal fii la jóge mooy nit ñi di xiiroo di ngaa yóbbu bañ a bokk xalaat tax ku nekk di jëm a yàq sa morom je pense que dans cette affaire là loolu moom moo xew am na ñoo xam ni jàpp nañu même bu nekkee ñi liggéey ci ambassade bi. ci parti au pouvoir lañu nekk wala boog euh, ils sont proches du parti au pouvoir warul tax ngay yàq des deniers publics mais loolu am ci ambassade yi daanaka fii la jóge woon fii la jóge woon c'est que fii la ñu la ñàkk mu muñalante bi euh, demoon ba toll foo xamante ni euh, ku àndul ak yow doo ko à la limite da ngay bëgg mu yàqu wala mu yàqule moom mooy indi wax yu ñaaw yi teg ci nit ñi wala même jëf yu ñaaw yi on a vu de maisons qu'on a ciblées jéem ko yàq ay oto yu yàq fekk c'est fait volontairement je pense que il faut que euh, ñu xoolaat sunu bopp fexe en tout cas loolu dinaa ci liggéey bu baax fexe ba sénégalais yi gën a jubóo mën nañu di werante mën nañu bañ a bokk gis-gis mais du ñoo xam ne ñoo bokk Sénégal ku nekk yéene sa morom jàmm et tu vas aller de la manière la plus démocratique à la conquête du pouvoir ak aussi de la manière la plus noble conquête au pouvoir du yàq nit ki saaga nit ki diw day sàcc diw day def li c'est pas parce qu'on cherche à conquérir le pouvoir qu'on va du Sénégal du jàpp naa ni politique warul yegg foofu euh, homme politique yi gëm ni politique amul éthique bu teyee mën nga saaga kii suba nga ànd ak moom gannaaw suba nga poignarder ko gannaawaati suba nga ànd ak bon je xëy na Euh, man maa xamul luy politique peut-être mais jàpp naa ne daal loolu baaxul mais euh, il faut rationaliser davantage parce que les ambassades peuvent euh, coûter cher il faut les rationaliser mais la diplomatie en soi fondamentalement Sénégal mënul changer ligne diplomatique c'est une diplomatie de bon voisinage une diplomatie économique et le respect de tous nos engagements internationaux ça Je veux que ça soit très Parce que ku remettre en cause ces engagements tout de suite réew mi ngay andil loraange moi je je vais respecter les engagements maintenant euh, bu amee bu bees bu ma war a signer et là ma xool lan laa war a signer bu nekkee engagement bi am na clause révision boo xam ne di délai bi jot na te ma jàpp ni ni ñu ko ni ko bindee war nañ ko réviser bu boobaa on pose ce problème la euh, sur sur sur la table mais ñëw rek damay réviser lépp damay def nii boo ko defee da ngay bloqué réew mi ak ñaari at ba ñaari weer wala ñetti weer gën ba bari. Euh, benn virgule rek bu ndaw comme euh, président sortant la ñu am ak benn candidat. président entrant non yooyu bul wax rek. Ah, président entrant non non entrant moom loolu sénégalais yi ñoo koy wax dimanche. <laughs> loolu moom du ma si dugg ci foofu laay dem sax parce que da nekk si benn coalition boo xam ne bi ñu ta bi ñu la tànnee dafa am ay kàngam yu jóge ci coalition boobu. de kàngam yooyu je suppose que bu ñuy dem dinañu yóbbaale une partie de de l' de benn Bokk Yaakaar muy Aly Ngouille Ndiaye muy Boun Abdallah Dionne muy Mame Boye Diao Diao ñooñu bu ñu teggee ko ci seen lim te yow ngay envisager gagner au premier tour est-ce que loolu du lu lay handicapé dès maintenant. non je bu ma sañoon du ñu demee et j'ai toujours essayé d'ailleurs waxtaan ak ñoom euh, très honnêtement. et j'ai gardé aussi de très bons rapports ak ñoom ñëpp parce que mooy ni mu la ko waxee léegi euh, politique mën nga bëgg ma bëgg mën nañ bañ a juboo mais on doit quand même préserver certaines valeurs euh, il ne me viendra jamais à l'idée de d'insulter Boun Abdallah Dionne ou Aly Ngouille Ndiaye ou Mame Boye Diao ou même quelqu'un d'autre euh, maintenant euh, ñoom xëy na am na lu ñu yóbbu jàpp naa ni bariwul waaye it man am na lu may andi ah bariwul ñoom ñett ñëpp bariwul loolu kañ loolu kañ loolu kañ xeer la yow. xeer nga sa non xeer nga leen sànni. non du ah ñoom ñett ñëpp ñu dem nga ne ñu yóbbu bariwul loolu kañ xeer la du xeer non du ah? xeer. waa loolu xeer la moom. du xeer ah loolu moom mooy non non non Charles je sais qu'il est libre du ma yow yaa tontu non dama ne. loolu non dafa ne ma du ma kabala kabala yow ku mool mbir nga leen sànni loolu du brique du kaba. ba beneen beneen virgule bi mooy. mooy mooy Dakar. Dakar dafa mës a nekk problème pour yow. xoolal buuba ah? aussi. Dakar dafa bëgg pour yow léegi yow lan nga envisager pour Dakar. xam ta Dakar tiitalu la. buuba buuba non dafa ndànk quand même quand même. virgule on est pas jàkkaarloo quand même li ma sànni li ma sànni du xeer nag. non kaba la birig la kaba. déedéet dama bëgg <laughs> nga nga def observation. xam nga yow yaa ngi ci média yi. instrument yi nga am man aw ma ko la nga mën a gis wala li ngay dégg wala na nga koy déggee na nga koy fa nga koy gisee man aw chance boobu waaye nag xam nga ni ay la yéwén nag tey jii au au temps te où nous li ëpp ci Benno Bokk Yaakaar laa wax li ëpp ci Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ànd ak man di liggéey ça c'est la vérité gis nañu it ni am na ñoo xam ne ànduñu ak Benno Bokk Yaakaar wala bokkuñu ci woon. ñëw nañu fekk si ñu kooku aussi gis nañ ko en tout cas li ñuy gis ci mbooloo mi nga xam ni ñu ngi ñuy topp ci diir yu gàtt et même parfois dans des condition très difficiles bi may dem démb Thiès c'est très récent exemple bi may mujjee jël la gis ngeen maa ngi leen joxoon rendez-vous vers 17 heures dog war moon fekk Thiès maa ngi fa yegg 20 heures mais bu ay nit ne taxaw 15 heures wala 16 heures ba 20 man ma ñëw ñu def suñuy animation def suñuy discours ba ñu fay jógee il était 22 heures 30 ñoom ñëpp ñu taxaw ak mbooloo mu day noonu kooku gëm-gëm la ak am yéene am yaakaar ci li nga xam ni projet bi ñu leen proposé bi ma fa jógee j'avais pas prévu de passer par Pout mais population yi dañu ma baare ci tali bi dugal ma Pout par force mais la ma fa fekk ci nit je me suis dit su ma fi duggul woon erreur la ah je l'avais pas prévu du tout du tout dama waroon romb rek dem ñu ngi nuyu waa Pout d'ailleurs ma maa leen di nuyu mais ma li ma fa fekk ci mbooloo c'est des milliers de personnes mais pendant ce temps waa Rufisque ñu ngi doon xaar si vous reprenez les images d'hier à Rufisque hier si vous reprenez les images je suis maa ngi yegg Rufisque à minuit c'est-à-dire ay nit ñu ñëw ci ngoon tu je devais être là-bas à vingt une ou vingt maa ngi fa yegg après minuit fekk fa mbooloo mu dee noonu mënuma lu dul xam ni lii nga xam ni yaakaar bi nga xam ni am nañ ko moi j'ai l'obligation avec tout la famille mooy ñi nga xam ni maa ngi ñoom benn bokk yaakaar ak ñeneen ñi de d'être au service de ces de ces populations là c'est ce qui m'est arrivé tout de suite à Pikine bi may ñëw fii ils m'ont à heures maa ngi waroon jógee Casamance à 14 heures le je je n'ai quitté la Casamance je suis arrivé ici à 20 heures mais ils étaient encore les images sont toutes fraîches peut-être vous les avez pas encore exploitées c'était des milliers et des milliers de personnes qui attendaient oui, on a, on a, et dans le même temps j'ai dû arbitrer bañ a dem Kër Massar il faut que je trouve une solution pour demain Kër parce que je tenais impérativement à être avec vous d'autant plus que je vous avais donné ma parole même si je dois venir avec du retard je voulais marquer ma présence parce que waxoon na leen ko depuis une semaine et il que ma ñëw voilà bon, Babacar euh, mille et soixante mille sur YouTube de téléspectateurs ce soir jusqu'à euh, heures du matin c'est nos tendances bravo, ouais, bravo Bravo quartier général mais, mais ou bravo le candidat, je ne sais pas. c'est dans nos tendances tous les soirs. C'est dans nos tendances tous les soirs. mais... non, non, Oui, virgule. Voilà. mais mais xam nga sànq dégg naa ko sànni mais euh, Amadou Ba. Mm. c'est vrai. mais juddoo Grand Dakar. mais dama gisul muy def dara lu Grand Dakarewul. cest dire je, <laughs> oui, oui, je, je, je veux lui demander. Je veux lui demander parce que. est-ce que Grand Dakar yow bi nga nekkee Grand Dakar booy est-ce que gërie nga woon bëgguma yegg ci ci affaire yi c'est-à-dire. ak problème de sécurité yi sax yëpp est-ce que daa nga est-ce que doon daanoon nga jël ci Gauloise ak Gaulois du Coste yi. Babacar est-ce que daa nga jël ci booy non mais Babacar. Ah. est-ce que am na kaba boo xam ne yow question nga posé. mais am na kaba bu fi benn waaye di dugal waa grande Dakar président réglé waale ko. fii que xam na dafa am benn. mooy sécurité bu bëri dafa am benn benn benn waaye boo xam ni dinaa la dëkk yàpp waa Grand Dakar réglé waale loolu. mais il répond il répond est-ce que bi nga nekkee booy Grand Dakar est-ce nga woon. xam nga xam nga sama histoire Grand Dakar. Euh, Badara mën na cee wax dara. parce que au moins foofu xam na histoire bi. bi ma nekkee Grand Dakar j'ai fait comme tous les jeunes de Grand Dakar comme yow comme man en tout cas ku nekk quartier bi nga juddoo la fa nekk ca ngay bokk. lan la woon. ah oui ah il faut non non. loolu moom mbir day leer non non munoo ne munoo ne def naa comme affaire Grand Dakar. buuba cinéma à la non non mais lan moo fa ne. ne ko loo def cinéma à buuba Grand Dakar quand dafa am réputation. waaw moom loolu moom moo. daan naa toog de bàyyi <laughs> tox lan. lan cigarette da ah, bàyyi na ko wax kii moo tudd Gauloise. waaw non waaw eh, Benson. yooyu bàyyi na ko. mais président tox tox lan. Camélia non kese sunu jamono yeneen yi amul woon. <laughs> non non xale jafe def nañ ko. Euh, tous les euh, yàlla moo lay dimbali dans ces quartiers là boo ci boo ci boo ci nekkee il m'arrive yenn saa ma gis ñoo xam ne ñu ñoo màggandoo nekkoon dans les mêmes euh, conditions euh, ma gis leen tey après da ngay sant yàlla et c'est des personnes que j'essaie d'aider de autant que je je parce que dama xam ni lii lii nga xam ne nekk naa ko tey vraiment damay wax mbiru yàlla la ak euh, pour simplifier nga ne chance la parce que toutes les conditions étaient réunies pour que nga bañ a bañ a bañ a euh, bañ a bañ a yegg fenn fii euh, pour surtout avec cinéma El Mansour cinéma El Mansour bon xam nga man fi ma dëkkoon c'est entre El Mansour Al Akbar ak Liberté <laughs> c'est un triangle d'enfer pour que nga pour fa <laughs> xam naa si dara indem c'est très compliqué Charles nee na xam naa ci dara xam naa si dara côté kër ñoom yu ma ay la côté boobu mais mais ñu gën a nekk guerrier waa Médina yi non les guerriers c'est ñaay cokkeer non guerrier yi ñaay cokkeer maintenant ñun d'accord nañ parce que li ñuy li ñuy wax ci Grand Dakar yi bu dee yéen def ngeen ko doy na waar ah <laughs> mais Bouba gis nga Bouba moi j'avais j'avais des amis yu dëkk Médina ah. ki ci gën a siiw Cheikh Seck la waaw maag moom ñoo ñoo ñoo doon ànd. Hmm. voilà ancien international ah. ancien ñoo bokk ñoo bokkoon chaque chaque soir. pour wax loolu kii ak benn parenthèse guddi ku ne laajal Pape Cheikh moo ñu yónnee reer fii. ak ak doomam. damas 30 jours quartier général yëpp. macha allah grand Cheikh. donc y' a pas de hasard loolu donc léegi dañoo yiw nag yow it da ngay non mais kaba bi sànq. non kooku c'est pas n'importe qui moo koy def. bon kaba mooy kaba yu nga sànni ay bun Abdallah. non sànni ma leen kaba oh, affaire non yow yow xam nga ba léegi on a eu quatre présidents quatre villageois. yoo ngi def leen affaire u Dakar waa. loolu c'est pas un coup dafa jot dafa jot Dakar am président. mais Dakar c'est 26 pour cent de l'électorat Dakar c'est 26 pour cent de l'électorat que quand même Dakar am président yoon la. kon capital bi du eh, eh, dem mar de tali du dem. waaw mais waaw débat bi du foofu. mais 26 pour cent de l' électorat. mais opposition moo ko téye ba léegi de. waaw mais non loolu yëpp dëgg la loolu yëpp mën naa nekk xam nga Dakar est une région difficile c' est pour cela il faut un président bu jógee Dakar échéance bi ma am mooy mën naa wax ni je connais toutes les maisons de Dakar de Kër Massar au Cap Manuel sama liggéey dafa prédisposé woon xam. parce que jamono bi may nekk impôt bi ñuy commencé ordinateur bariwul woon Médina da nga daan dugg ci mbedd yi di recenser dem plateau magasin par magasin euh, les autres quartiers bi ñu koy créer daf la fi fekk donc tu vois un peu sa sa ça ça évolue ñun bi sama waajur yi di toxu parcelle euh, maa ngi amoon bac mais boobu euh, boo gisee benn kër fii da ngay doxaat cinquante mètres ou soixante mètres doog a gis beneen kër après moo tax y avait une solidarité entre toutes ces personnes man sama waa kër dañu amoon ay xarit ba unité sama ñoom yaay ay xarit ba unité 26 ba parce que ñi fa dëkkoon bariwul c' est après que quartier bi la la màgg et ça crée une solidarité maintenant les problèmes de de de Dakar mon ambition c' est d'en faire une grande agglomération aujourd'hui le président Macky Sall def na ci lu bari en termes de transport en termes de voirie mais il reste encore au niveau des banlieues, des choses à, à faire. La question de l'inondation dans la banlieue de Pikine, euh, euh wàññeeku na c'est vrai, mais elle doit être adressée et traitée définitivement. Et tout à l'heure, euh, qui euh, dafa, Charles dafa poser benn question, boo xam waxu ko ci kaw c'est la question de l'aménagement du territoire. Parce que ni population bi di augmenter, gaaw na gaawee boo xam ni ak ni sunu administration organisée. Je reviens toujours au fondamentaux, à l'organisation de l'administration. Parce que yenn saa yi waa urbanisme dañuy jiitu yan saa yi waa domaine jiitu waa aménagement du territoire bi ñuy ñëw dañuy rattraper or ñoom ci ñoom la ñu war a tàmbalee ñoom bu ñu tàmbalee ci ñoom ba pare waa urbanisme jaar fa wax ni lii fii la war a mel nii fii la war a mel waa domaine ak waa cadastre doog a mën a ñëw dagg appliquer mais il faut avouer Euh, il faut une autre organisation de l'administration pour que ñu mën a dellu ci fondamentaux yooyu fexe ba dakaar nekk une agglomération moderne parce que man li ma bëgg euh, mooy euh, émergence bi ñuy wax du doon 2035 mais dama bëgg mu doon 2030 et c'est techniquement possible bu ñu amee jàmm parce que avec le pétrole qui arrive ak lii nga xam ni posé nañu ko comme postulat fexe ba réew mi di dox sans pétrole ak gaz au moins six ou sept pour cent bu ñu toggee pétrole ak gaz euh, jubo ànd doon benn moo tax muy wax ay gouvernement de d'union d'unité ñu nit ñi ànd euh, di waxtaan ubbi des concertations sur des secteurs yi am ay jafe-jafe ñu d'accord ci ay pacte mettre ko en en en œuvre mettre les projets et les réformes en œuvre en cinq ans le visage du Sénégal changera fondamentalement. parfait voilà euh, ñu dem euh, ak euh, commentaire ou quelques questions internautes donc ce sera question rapide réponse rapide. balaa ñuy tour de table pour dem xëddi. effectivement El Hadj bari seen ay questions yu ci bari nag jaar nañ ci ci plateau bi ak hashtag bi di QGTFM 2024 wala QGTFM wala QG 9 question bi nga xamante ni moo njëkk ah bi dafa laajte. ndax euh, président Amadou pare na pour reconnaître résultat yi gannaaw euh, bu ñu amalee vote bi dimanche euh, ak nu mu munti demee. moi je suis respectueux des des, des lois et règlements defe naa ni kenn mësuma jam ci ñàkk a respecter loi ak règlement vraiment je fais confiance à la justice je fais confiance à nos institutions li ñu ut yëpp yàlla nañ ko am ci jàmm ak salaam. waaw leneen lu dul jàmm ak salaam. Euh, man soxlawu ko donc euh, moi j'ai aucun problème par rapport aux résultats d'autant plus que je sais que les résultats me seront favorables s'il plaît à Dieu voilà euh, am na solo beneen bi El Hadj mooy ci mbirum numérique la lan lañ mën a gën a mën a taxawal fi mu ne nii pour rattraper suñu retard bi ñu am ci domaine numérique mooy maanaam mbirum e-gouvernance e-service ak tamit li ñu duppee kit de l'introduction du numérique et au droit numérique dans le cursus scolaire Euh, xam nga adduna bi tey mënatul dox sans numérique te xew-xew yu mu yi ci Covid wane na ko euh, bi may wax sànq réforme administration yooyu yëpp dafa nekk ci biir comment introduire le numérique qui dans de toute façon dafay rendre les choses beaucoup plus transparentes réew yi nga xam ne dafa dox yëpp tey jii en tout cas fi xam-xam toll numérique jàppale na leen bu baax a baax a baax a baax. Sénégal amoon nañ ci avantage comparatif au départ parce que jamono bi nga xam ni Sonatel ñu ngi koy créer avec les gros investissements yi amoon dans les années 92 90 ci ci ci ci jamono jooju on était vraiment en, avance maintenant euh, il faut assez rapidement euh, numérique ñu gën ci tàggat xale yi gën ci gën ko dugal ci suñuy habitude tàmm di liggéey numérique mais sinon ñi mel ni man toujours ñu ngi ci ay këyit jox ma ma signé fii yóbbu courrier ñu andil ma nga def ay visa loolu la mafia du papier. voilà parce que mafia la. waaw non moom moom mooy c'est il faut mu wàññeeku. même bu jeexul. Ah, maintenant ni ñu ko mën a defee c'est de regarder les secteurs clés c'est de regarder les secteurs clés parce que aussi à vouloir tout bouleverser aussi doo doo liggéey. mooy liggéey bëgg a def da ngay toj lépp tàmbali déedéet. fii boo fi bëggee yokk étage dangay xool ndax fondement bi attan na ko bu ko attanee xayrul nga teg benn bu ko attanulee nga ne naa renforcer samay semelle ut samay poto yu dëgër yëkkati c'est comme ça aussi qu'il faut faire dans la gestion d'un pays ci sama ci sama gis-gis on di on dit aujourd'hui on s'occupe de numériser les secteurs le secteur de la santé on y à fond euh, def ko sur un an deux ans former leen def ko ou bien on va aux finances on numérise le secteur des finances wala justice wala beneen administration wala le secteur de l'état civil euh, je pense qu'il faut que ñu am jël benn secteur wala ñaar wala ñett yi nga xam ni on sent que foofu la ñu gën a amee jafe-jafe foofu la askan wi ji gën a sonne ñu fexe dugal foofu euh, numérique maintenant encadrer ni ñi former leen def ko sur un an ou deux ans maintenant li nga wax c'est vrai euh, numérique moom mënutul ñàkk fépp lañ ko war a def mais mënuñu ko defandoo fépp en même temps parce que état bi amul doole jooju mais nañ jël au moins ñaar ba ñetti secteur jëm ko réussir totalement et puis keneen ku ñëw continuer ba keroog muy mot. voilà Malal pour la dernière yes, question. une dernière question ci campagne bi yaa ngi utiliser si say caravane yaa ngi utiliser musique yaa ngi utiliser musique ci caravane yi est-ce que euh, vous veillez à payer aux artistes leurs droits. je suis très sensible à la situation des artistes parce que artiste yàlla dafay def ñu siiw ñu yaakaar leen te leen say am am bi du toll foofu te day doon ñoo xam ne du mën a tàllal loxo fu nekk moo tax tous moi je suis très très très préoccupé euh, du sax artistes yi rek uniquement mais toujours ñi nga xam ne dañuy nekk ci situation bu mel noonu Ça peut être même des sportifs, hein, tu, tu, vois des sportifs, des gens qu'on qu connaît, fait que euh, boo tëjoog ñoom ci nekk euh, boo leen ubbilee sa kanam lañ lay wax lu lu lu lu mën nga ko bañ a xalaat non seulement dinaa leen fay ba mu mot sëkk mais lu ma leen mën a jàppale naa leen ci jàppale pas uniquement parce qu'ils ont fait quelque chose pour moi mais c'est surtout pour que ñu mën a produir keneen ñeneen ak ñeneen euh, ultérieurement je pense que euh, cela de soi. en tout cas dana def lu ma mën. merci mu nga président lan nga foogoon ni lan nga yaakaaroon ni waroon nañu ko waxtaanee te jotuñu ko soulever ci jotaay bi. boo li ñuy waxtaanewul en tout cas euh, dégguma ko ci mais lu am solo la mooy féliciter wax nañu fonctionnaires yi wax nañu ñëpp féliciter les forces de défense et de sécurité. Mm-hmm. waaw ndax bu ñu fi mënee toog ba heure bi dañoo yaakaar am kaaraange. Mm-hmm. xëy na sax nekkuñu fi. mais impression boobu ñu am na ñu ngi ci kaaraange. ndax ñoom ñu ngi fi on doit les féliciter et les encourager surtout. ci situation bi ñu nekk en campagne électoral où ils sont très sollicités. Euh, d'une part et d'autre part aussi. am na ci ñoo xam ne ñun ñoo nekk ci campagne mais ñoom ñu ngi ci ay frontières. di veiller à notre euh, sécurité. Euh, maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm xamal leen ni en tout cas. en tant que président de la République euh, je veillerai à ce que seen i conditions amélioré wu ñu gën a mën a veiller ci sécurité bi muy ñoom d'abord ñu nekk ci jàmm ak salaam ñoom d'abord ñu am la sécurité qu'il leur faut en termes d'équipement pour mën a remplir seen i mission et mais rafetlu leur posture euh, euh, républicaine moi là je tenais à le dire parce qu'on a parlé de tout le monde on a parlé de la justice on a parlé de de de, on n'a pas parlé des transporteurs malheureusement c'est aussi. on n'a euh, dafa xat. dafa parce que on peut doit parler de tous les secteurs dans une euh, élection. Mm-hmm. on a l'objectif de moderniser le transport il y a quelque chose qui a été déjà fait avec le TER. Mm-hmm. qui va continuer sur Thiès soobee et après peut-être sur Mbour ou en allant vers le nord mais il faut en tout cas poursuivre faire autant euh, au moins ci ci ci ci cinq ans yi di ñëw. le BRT aussi c'est un projet révolutionnaire les bus tudd nañu ko fi léegi mais je pense que les bus Ivoque sont des bus assez modernes maintenant nous verrons à avoir aussi des entreprises de qui peuvent transformer qui peuvent monter ici en tout cas des bus d'égale qualité parce pense que dinañu liggéey ci loolu le transport aussi doit être modernisé mm-hmm. je pense que euh, y a des projets importants aussi yu ñu ci am mm-hmm. pour moderniser changer le parc de camions, euh, changer le parc de transport en, en commun, euh, urbain comme euh, interurbain, euh, changer les taxis. Je pense qu'il y des efforts à faire à ce niveau-là. Et dans notre projet de société, effectivement, c'est des dossiers qui, qui, qui, sur lesquels nous avons déjà travaillé. Mhm. Et c'est ça l'intérêt d'avoir les nga am ay information ci li nga xam ne moom moo nekk ci réew mi mhm. parce que loolu yëpp ay mbébét la yoo xam ni réew mi am na ko fexe ba transport gën a dox transporteurs yi am nañu ci wàll mais surtout dafa euh, am aspect boo xam ni euh, des na encore mooy comment les sécuriser ñoom ñëpp euh, wax naa ko keroog ak sunu mbokk nappkat yi souvent dañuy am ay accident état ñëw di leen dimbali j'ai l'intention de mettre un fonds de cinq milliards ñoom on va leur demander de cotiser mu doon genre assurance à la limite jël loolu placé ko ci benn société d'assurance bu leen neex ku ci dem géej am fa accident sa gaal yàqu ñu remplacer la ko euh, ku koo xam ni euh, euh, mar d'Italie am nga fa accident peut-être sa njaboot am na ñu dundee comme ni chauffeur mu a amee transport responsabilité civile ak personne transportée bu amee accident je pense que pêcheurs yi war nañ ko élargir aussi ci ak yeneen euh, segments yi voilà c'est c'est tous les secteurs hein mhm. j'ai réfléchi ci secteur yëpp maa que staff bi ma àndal mhm. en se basant effectivement ci li nga xam ni moom moo nekk ci plan Sénégal émergent mhm. ci loolu la fondé wu pour jéem a dem de l'avant parce que d'abord moo gën a cohérent mooy loo xam ne waxtaanee nañ ko ba pare boo demee tey ji di ko utal alal mobilisation financement bi dafay yomb on a même voulu faire un groupe consultatif à la veille des élections et bu ma demoon dinañ andi xaalis tout comme là bu élection yi passé 2 avril je bu ma yàlla defee ma jàll je vais amener l'argent avant la fin du mois d'avril. incha allah ci yàlla am on avait trouvé on un bu ñu amoon à l'époque de euh, trois mille milliards ou quatre mille milliards on en a eu on en eu euh, mille. à l'époque ce qui était un li war a financé juróomi at yi mi ngi toll à peu près ci vingt huit mille milliards trente mille milliards am na ci loo xam ne impôt dugal dina ko dugal kooku euh, ça ne pose pas de problème am na ay convention yoo xam ne sécurisé dañ ko ba pare signé nañ ko ak ou ak banque mondiale union européenne là ça va continuer maintenant yeneen projet yi moom dénk leen ma rek seet ubbi tey falu tey liggéey tey on verra. <laughs> soobee yàlla. incha allah d'habitude dañuy jeexal. ak falu tey liggéey tey. amul vacance amul noppalu. non de réew mi soxla non non fi mu nekkee li ñu noppalu campagne électorale bi dooy na ci noppalu tout est urgent. <laughs> waaw doy <laughs> allah on finit. on finit toujours. non c'est un rythme physique. waaw mais c'est vrai bi may ñëw fii dañu ma tàgg sama benn colère. di sunu sëriñ di. Euh, doom ci maam Abdou Aziz. Mhm. Euh, maam Ousmane Sy di vraiment di woon sama xarit. Mhm. bi ma duggee fii lañ ma ko wax léegi. Mhm. Euh, maa ngi koy jaale xalifa bi. di ko jaale Serigne Maodo. di woon nit ku baax. moi je l'ai connu yàgg na sama benn xarit bu ñuy wax Aziz moom moo ñu boole woon. boobu je n'étais pas encore directeur général des impôts. moo ñuy doon seetante. ba ci mois bi passé rek mi ngi amoon gàmmu déggante nañu. yàlla def li ko soob parce que gaañu na tey jii ci ngoon bi donc ma koy jàllee euh, jullit yëpp di ko jàllee xalif général de Tidiane di ko jàllee njabootu euh, maam Abdou yëpp seen xalifa di euh, Serigne Maodo Sy mu ngoog on finit ak côté jardin bu quartier général mënul ñàkk lan mooy sa passion d'habitude président liggéey moi je ne sais pas faire autre chose que de travailler. liggéey kese. je suis tous les jours dans mon bureau jusqu'à deux heures trois heures te yàgg na c'est le fait de ne pas travailler qui me pose problème. parce qu'il y tellement de choses li ñu war def ci réew bari na bari waay boo xam ne bu la yàlla dimbalee nga nekk peut-être chance boobu laa am. nekk foo xam ne damay am ay information nekk foo xam ne je gère damay gérer ay dossiers yoo xam ne c'est urgent et c'est sensible. Mhm. Euh, Euh, te dossier bi ñi muy jëriñ du du man ñi muy jëriñ euh, ñeneen la. parce que ñi la xam yëpp baat bi benn la liggéey ak jaamu yàlla yi bàyyi ko doo tëdd tant que julliwuloo. waaw loolu aussi du ma ko def. Ah. len li ma manqué daal ci at bi mooy xëy na li ma demul umra. waaw ah. parce que j'aime bien j'aimais bien faire ça. ci li ma politique yàqal aussi mooy dem di ziare këru diine yi. sa mhm. aussi j'aimais bien fair ça. Mhm. Euh, retrait la nga dem dugg dem Tivaouane dem Touba et j'aimais bien le faire discrètement. Mhm. maintenant léegi ce n'est plus possible parce que mm-hmm. booy politique mm-hmm. sa oto sax fu mu gaare dañ koy xam mm-hmm. mais sinon je le faisais dans le passé euh, ñëw ñëpp j'ai eu beaucoup de relations yu baax a baax ba tey ji ak des jeunes sénégalais ak des sénégalais samay moroom wala samay mag yoo xam ne ñu ngi ko tiisee ci kaaba gi si jàppalante place euh, échanger des secrets da werd lii da ngay jàng lii bon xëy na fi ma jógee moo tax aussi loolu doon loo xam ni bëgg naa ko ci sama biir xol te am naa yàqin ni foofu la ñuy régler problème yi. macha allah moo tax suukaru kooru suukaru quartier kooru quartier général kaamil la. ndax sa diggante ak euh, euh, duñ ma bàyyi ma déroulé sama bopp. dina <laughs> am bis boo xam ne en pleine émission lay dem <laughs> mu ngoog donc lii mooy suukaru kooru quartier général. jërëjëf jërëjëf kaamil personnalisé et on espère que euh, boo gagné nekk président dinañu la ko dinañ ko fekk sa bureau. yi ah, allah ah macha allah merci c'est pour vous président. j'en ferai un bon usage. incha allah dinaa ko téye téye bi ci war. incha allah jërëjëf dañu tàmm nag bu ñu tollee ci parti bi euh, am lu ñu invité bi may mais balay boobu sa rencontre ak président Abdou Diouf en 1987 est-ce que mën nga ñu ko ne mën nga ñu ci nettali tuuti. ci tënk parce que il y a quelques jours dafa juróon polémique photo bi virale tout le monde en a parlé sa diggante ak président Diouf. non loolu yàgg na xam nga à l'époque Euh, ki euh, brevet ENA yi ENAM à l'époque moo amoon c'était une cérémonie solennelle président de la République moo ko doon euh, moo ko doon moo moo ko doon joxe. donc photo bi ci bés boobu la woon. ah boobu la woon mooy bés bi ñuy jël sunu diplôme. Uh-huh. j'étais nouvellement breveté de l'ENA. Uh-huh. à l'époque il y ñu defee sunu examen juin juillet. avant ngay dem stage sax euh, on organisait une cérémonie solennelle. ñu jox la sa diplôme et euh, j'ai eu le privilège de ma rencontrer président abdu Diouf. et ku ci nekk da ngay am photo. donc ça c'est les photos sont disponibles ci bibliothèque u ENA. ah d'accord ak fépp donc euh, loolu la muy kilifa gu mag. bu liggéey ci réew mi lu mucc ayib surtout en matière administration. waaw gën na dëgëral administration Sénégal. Mhm. ci fànn boobu doon na koo xam ni c'est un modèle. Mhm. Euh, pour pour nous en termes d'organisation administrative parce qu'il a travaillé ci contexte bu jafe. Mhm. parce que mooy contexte ajustement structurel. Euh, boobu euh, réew mi jafe na lool mais il a tenu ba jóge ci bopp réew mi. récemment bi ma demee Paris seeti naa ko. donc. chaque fois que c'est possible bon bu ma demee dem nuyu ji ko ziyaare ko. Mhm. waxtaan ak moom c'est un homme de grande expérience. boo toog ak moom da ngay jàng toujours. par la sagesse et par l'expérience et par les conseil et les prières. parce que toll na foofu aussi. Mhm. <coughs> mu ngoog euh, maye bi la ñuy tëjee kon maye bi mënul ñàkk. ñàkk moom moo tax ma la koy fàttali sax. <laughs> que nag tamit dafa am euh, euh, luwaawu quartier général dafa bëgg kilifa yi ku fi ñëw balaa ngay dem pour décontracter euh, accompagner ambiance su côté jardin bi nga may ñu benn maye. loolu laaj nga ma nag lu ma tële fi mu nekk nii. na buuba yow lay jox affaire boobu. oui parce que munoo nekk ne Grand Dakar li waa Grand Dakar yëpp def juddoo fa yaroo fa màggee fi te munoo maye nag président loolu tam munuñu ko dégg. buuba grand bi ngeen ay clé grand joxel benn jox benn rek garaawul parce que aussi loolu na foofu la toll. grand jox ñu benn yaa ngi ay affaire jox ñu benn rek. TikTok ngi fii. YouTube ñëpp ngay seet. da réfléchiral rek ci benn bu sent TikTok YouTube. ñëpp ngay Facebook ñu boobu moom boobu moom question bu ma bett la quoi. mais eh, grand ko ñu bagaar na ay biir joxal benn. mais bi daal a laaj may ak ñu ko war a laaj. yi ngi ci yi ngi ci fàttali yi ngi ci fàttali xëy ma ci benn rek moom ma maye ma muy dugal. <laughs> j'ai cette manie de détecter kooku non grand c'est que man benn maye laa yor te maye boobu dañ koy tere fii nee nañ propagande la. boobal la. <laughs> mais mais président. non je t'autorise à le faire à naa benn maye boo xam ne grand Dakar la. boobal la ah bon. ba maye maye Medina non non maye maye Medina non da ngay maye maye Medina. mais bii c'est en fait. Ah, Amadou Diaba dawoon ba jël course ba ba leen di. maye amee Medina waaw mais non non la bii dafa am sama benn grand artiste la. du ma du ma kii yàlla nay suuf sedd ci kawam. grand bi grand Dakar la dëkk. da doon way. dem wàcc soirée quatre heures du matin quatre heures et mu romb ay boy bu ko jéem a agressé. topp ko ak jaasi grand bi waaxu booy yi topp mu gën a waaxu goy jékki-jékki xàmmee kon mais du ma jaar turam mais grand ah yow la. non ko ñun la ñun la la sa boy oh. rek. du ma leen du <laughs> Grand Dakar. <laughs> am na suukaru koor. non non kooku kooku waa ji daw booy topp na grand ñun la xàmmee wuñu mu ne leen mani demee rek. <laughs> non kooku Medina du Grand Dakar. mu ngoog Nescafé am na euh, suukaru koor bu muy jox euh, président Amadou Ba ñu ngi koy gërëm bu baax mon mi euh, Niang. Euh, le snapper des euh. deux présidents, le snapper du président Macky Sall et ah. le snapper du président Amadou Ba. Mais je suis gâté aujourd'hui par... Euh, voilà, par quartier général. Ah oui, oui, oui. C'est pour vous. Merci. Voilà. Donc... mu ngoog muy sukkaru koor bu quartier général juste rappeler que lii lépp rek dafay wane encore cofeel bi nga xamante ni am nañu ko ci réew mi on a reçu tellement de messages ku lim juum merci euh, ci nii ngeen àndoo woon woon ak ñun euh, Khadim Dia mi nga xam ne ñoo bokk ñoo bokk bàyyi ak cellule communication bu président ñoom Khadija Bousso Thiénaba Seydou Ba fi mu ne ñu ngi dosé quoi naan non yéegal nañu seen affaire bi suñu affaire bee yéeg moo tax seen candidat ñëw fi <laughs> at bu jot at bu jot at bu jot nii lay demee. merci merci voilà merci. donc ça c' est c' est amul leen suñu fay quoi. et puis da ma war a fay droit d' auteur Amadou Ba. Amadou Ba merci aux équipes communication bu président Amadou Ba euh, je disais qu'on a qu'on a reçu tellement de messages merci ci euh, ni ngeen àndee ak ñun kilifa yi fi jaar yëpp nag ñun dañu di télévision privée waaye mission au service public la ñu am euh, loolu moo tax kilifa yi kenn ku fi ñëw. du ñu la sonal noonu dañu lay bàyyi nga dérouler comme il faut donc ñu ngi gërëm bu baax service programme parce que li ñuy def ni itam bu ci doon fayee ko am ci ay milliards. mais on a tout fait euh, gratuitement ngir yéen sénégalais yi ngeen xam fan ngeen jëm ak sunu candidat yi maintenant nag coow li nañ ko bàyyi xuloo yeeg ŋàññante yeeg l'essentiel mooy bisu vote bi tous aux urnes ñu xam kan moo nar a nekk futur président du Sénégal. non juste boobu blaguer damay décontracté waale donc yooyu mënul ñàkk mais l' essentiel mooy on a fait le maximum pour gën leen wanale ak euh, sunu euh, euh, candidat yi nga xamante ne ñoo nar a jongante ci élection présidentielle yi président yan yan kàddu ngay tëjee jotaay bi tey. mais d' abord je vous dem yéen lay war a sant bu baax ci occasion bi ngeen ma may. c' est vrai que émission yi boo koy seet de loin souvent je vous suis. ji vendredi bi. seen émission yi donc euh, muy émission bu conviviale. parce que da ngeen di waxtaan en tant que xarit mais mais aussi damay notti ni que le débat est profond. Euh, ci ñeen ñi fi fa toog ñëpp donc euh, ngeen di di télévision privée. nekk di def aussi une mission de service public. parce que lii ngeen def nii aussi askan bi yëpp lay jariñ. quel que soit maintenant boor bu ñu mën ci bokk. parce que justement télévision ci foofu lañu ñu war a dimbali. ba ni ñuy gaawee di di di di di compartimenté kii fii la bokk kii fële la bokk. ñu fexe loolu wàññeeku ci Sénégal. incha allah parce que li nga xam ni moom moo euh, def doole yenn réew yi. réew mu mel ni Amérique. ñoom boo fa ñu du ñu xool ni euh, sud nga jóge walla noor nga jógee wala euh, tu es d'origine africaine wala japonaise parce que intégration bi dafa. dafa am fu mu yegg et je pense que yéen ngi contribuer bu baax yéen ak yéen seen yeneen morom yi pour gën a intégrer réew mi maintenant ñu ngi jëm ci élection di ñaan yàlla euh, mu doon élection yi def ci jàmm ak salaam amiin amiin élection yi ñuy def ci jàmm ak salaam mhm. mu mel ni mu daan mel parce que Sénégal euh, yàgg nañu organiser yàlla dimbali nañu am nañu administration mën a organiser mhm. euh, toujours bu élection day am dañuy tiit durant tout la période préélectorale moo tax activité yi day wàññeeku. mais bu élection yi passé rek en général à partir de vingt heures vingt une heures. Mhm. Euh, résultats yi commencé génn le lendemain. Mhm. tout le monde va au travail. Mhm. la nga xam ne danaan am. seetlu ko ci réew mi boobu ba tey yàlla na am ren ji. parce que le ñun ñëpp soxla nañu jàmm soxla nañu sérénité. soxla nañu altine bu ñu jógee mën a dem euh, liggéey yi saafonte. waxtaan commenter d' accord ci lii bañ a d' accord ci lële. Mhm. mais fekk lépp dañ koy def ci jàmm en tout cas maa ngi leen di féliciter. merci président ci possibilité bi ngeen ma may. Mhm. ma échanger ak euh, sénégalais yi. Mhm. ñu xëy na gën maa xam. ci yenn kii parce que man damay jàpp ne rek da ngay tëju sa bureau di liggéey rek jàpp sa ñàmbur. le des nga bàyyi ko ci gars yi di wax. voilà merci. Euh, président ñu ngi lay gërëm bu baax on va on finir ak ñun tam suñu tour de table ñu gërëm ñëpp sant ñëpp Kulim Dioum euh, on pense à Mor Huchard moom itam bëgg lool président Amadou Ba euh, on pense à Lamine Camara bëgg lool président Amadou Ba on pense à vraiment beaucoup de personnes yoo xamante ni gis nañu liggéey bi ñuy def jëmale ko ci président Amadou Ba bokk na ci soxna Aïda Saliou yaayu Wali Seck moom tamit ñu ngi koy gërëm bu baax et puis on n'oublie pas Moustapha Ba finance ak euh, Modou rax ma mu ngi social Kaolack waaye itam di jàppale euh, président Amadou Ba soxna Fat Bintou Pouy moom la ñu dénk sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhla sànq ba tey mu ngi rafetlu euh, jotaay bi. Euh, gërëm tamit euh, soxna Ami Mbacké DAGE bu ministère des affaires étrangères moom itam mu ngi rafetlu jotaay bi ak président euh, Amadou Ba on pense à Pape Mor Ba ABN technologie moom itam mu ngi rafetlu jotaay bi en tout cas kulim Dioum boo demee bitim réew yu ma ayse quoi Philadelphie tey nelawuñu boo demee dëkk mel ni France ñoom Abdoulahat Ndiaye tey daanaka nelawuñu foo dem ñëpp doon dundu waxtaan wi nga xamante ni jot nañu ko séq ak président Amadou Ba ñu ngi la ci gërëm bu baax yow pour tëj euh, jàngat bi Charles mënul ñàkk voilà ban ban jàngat ngay def tey ci jotaay bii ñu amal ak président Amadou Ba. Euh, kilif da nga koy mot te bon kilifa bi mot na ko euh, defe naa ni boo fi waree wax leneen. da nga fi manqué on a eu la chance de recevoir des candidats. te defe naa tey sénégalais yi ko doon wax sànq avant muy ñëw maay doon ne ça été un honneur. un privilège que de partager en échanger ba sénégalais yi mun a gën a xam ñun ñi defe naa que ñun ñi doon doon déglu Amadou Ba xam ko premier ministre ministre ak lu de euh, ministre des finances ministre des affaires étrangères mais l'homme Amadou Ba toog quatre heures wala trois heures ci télévision bi defe naa sénégalais yi jàng si lu bëri euh, te bon de qualité il faut dire hein, parce que mu ngi maa ngi koy xool sànq il a un regard à cent quatre-vingts degrés loolu la ñuy jàngal booy xool 180 ngay xool parce que tu parles à tout le monde. naa ko dans la gestuelle aussi c'est aussi. Mm-hmm. bon ku maîtriser ce ce bu baax parce que ba may ba may wax ak moom maa ngi doon xoolaale aussi yoo xam ne en tant que premier ministre c'était justement ça le jeu parce que il a quand même reconnu et il l'a dit et kooku mm-hmm. mm-hmm. ah bon je viens avec quelque chose de donc euh, kilifa defe naa sénégalais yi gis nañ kilifa maintenant ñoom nag le 24 incha allah si apaisement. incha allah liberté. Mhm. ak transparence mhm. jàmm salaam. incha allah ñu choisir maintenant wax na fii sànni na kàbb nee ay xaritam. ne dès le pré élu tour kaw. dès le premier tour. coup yu mënul ñàkk. waaw kuy ah non c'est non bon c'est des affaires de de c'est très politique mais bon mais pas politique seulement <laughs> c'est c'est Dakarois il me dirait <coughs> c'est grand Dakar <laughs> euh, Charles euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye tamit ñu ngi koy gërëm bu baax moom tamit depuis sànq mu ngi yóbbante nuyoo euh, pour président Amadou Ba docteur Mamadou Moustapha Kend moom tamit mu ngi yóbbante nuyoo depuis sànq pour président Amadou Ba Kati Diop militante de première heure defe naa noonu lañ leen di woowee moom itam mu ngi yóbbante nuyoo depuis sànq euh, Malick Diop mbooroo moom waxoon na sax ñu euh, laaj la ci ICS Mboro et tout ça mais on n'a pas pu avoir le temps xam naa ni di nga gën a dérouler programme it yeneen rencontre yoo xamante ni il paraît que prévoir nga ko ak ñeneen yeneen i euh, journaliste merci Babacar Fall ban jàngat ngay def yow tamit en tant que journaliste bu ñuy xaar ci élection yi Magui Chanel yaayu kat yi moom itamit bokk na ci ñi nga xam ne ni rek la ñuy topp ñu ngi koy euh, bégee bu baax. merci Pape Cheikh. merci tout le monde. Mm. merci le candidat Amadou Ba. Mmh. Euh, élection yi ñu jëm élection yu yu yu neex lay doon en termes de suspense mais foog naa xëy na bu ñu yàlla dimbalee. Euh, bu huit ci guddi jotee nañ xam euh, fu affaire yi euh, féete foog naa noonu sax mooy gën a simple ci sénégalais yi. Mm. di di gërëm ñëpp xam na dinaaw ci kanam la ñuy jël si waat ñu mm. gàttal. et ci kanam dañuy ah. teel a commencé vingt et une heures la ñuy commencé. Ah. pour jeexal minuit ñoo mën bés de. <laughs> dinañu tàmbali vingt et une heures jeexal minuit. incha allah. mi ngi noonu am na nag euh, ay soldats yu ma gis yu wër Amadou Ba bëri na mais dama ci am ñaari copain mhm. Omar Sow sama boy la sax euh, Gabon Omar Sow Gabon yëmbal euh, Khadim Gadiaga ancien mhm. l'homme des Parcelles de je je les cite je c'est pas dans mes habitudes. mais, mais voilà c'est c'est des potes c'est des potes à moi je le fais sous cet angle c'est des potes communiqué maa ni Ami Ndaw <laughs> <laughs> Amadou Ba rek la ñuy topp te ñëpp sama xarit la ah. maa ngi mel ni moom parce que <laughs> j'ai que des noms des personnes yoo xamante ni elles comptent pour moi te ku lim juum. merci mais ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di béggee Babacar Ba ak soxnaam euh, Mami Fa Ndiaye ñoom tam euh, bëgg lool président Amadou Ba je pense à mon ami Djibi Thioy ak ñoom Matar Soubatel nga xam ne ñoo defar son yi euh, yi accompagner bi donc ñoom ñëpp on ne content ci taxawaay bi en tout cas ku lim juum peuple ba ci Tarba Mbaye miy woy nee na moom am na cellule Grand Dakar pour président Amadou Ba c'est bien ça ñu ngi lay béggee bu baax Tarba en tout cas merci Malal à bientôt à tout à l'heure euh, sinon Oustaz Modou Fall nee na ma nuyul ko président Amadou Ba <laughs> voilà Oustaz Modou Fall émission bi jeex commencé ba jeex te tegoo fi tànk man maa la ko yéene et je suis content baax na ci yow heureusement ba ñëwoo tey mais quand même yóbbante yegg yegg naa nuyoo bi euh, président euh, Amadou Ba Malal yow tamit euh, ñu ngi lay gërëm bu baax yaa jàppale Mansour. waaw maa yaa sagal Mansour. maa sagal Mansour parce que moo sagal moo sagal Aïssata Aïssata bi may wax. Aïssata bi may wax travail pour Amadou. au nii ah, de Pikine. kon ba tey yaa ngi gën a sagal Aïssata. donc Aïssata Aïssata c'est, c'est vraiment l'homonyme de ma mère. ma grande sœur. Ouais. moom euh, ci jigéen ñi jàppale Amadou. Amadou Ba la bokk waaw macha allah moi j'ai connu Amadou par le biais de mon grand frère Thierno Talla. Mhm. qui est son ami. Ah. qui a été directeur à l'Observateur mm de Youssou Ndour qui a créé le journal ah. L'As etc mm -hmm. etc je pense que il a été à la hauteur de nos questions parce que ici c'est un plateau boo xamante ne les questions ne sont pas intéressées imprévisible. Mhm. fii ku nekk c'est du freestyle. Ah il a été à la hauteur. ah et jàpp nañ ni sénégalais dëggantaan la. Mhm. sénégalais dëggantaan la tontu na ci suñuy laaj. Mhm. maintenant nag le jour du scrutin. que le meilleur gagne. c'est au peuple d'apprécier. Inch'Allah. c'est au peuple d'apprécier par rapport à ce qui lui a été proposé en termes de programme. donc euh, que le meilleur gagne. mu merci beaucoup Malal et puis ñu ngi bëggee suma xarit Mohamed Silla voilà Mohamed Silla. moom itam jàmbaar la quoi Mohamed Sylla Toubani Ndiaye nuyul ma ko lu bëri je pense moom mon parrain ki nga xamante ni bu dul woon ak moom tey peut-être du ma am carrière télé Mamadou Ball. voilà Mamadou Ball euh, tey euh, bu ma yàlla mayaatoon doom bu góor sax moom laa koy tuddee tellement il a beaucoup fait pour moi moom itam bokk na ci kilifa yi nga xamante ni sànq ba tey ñu ngi rafetlu euh, jotaay bii ñu amal ak président Amadou Ba ci télévision Futur Média Badara Gadiaga yow tamit ñu ngi lay bu baax waaw. mbaa da a takk. Euh, takk man defe na exempté naa mariage de essayé naa trois fois sa n'a pas marché. non Pape doo je me suis marié avec les caméras et les et les micros. non doom bu góor bi mu <laughs> tuddee ko Mamadou Bal. c'est dans en fait sama xol laa ko laa ko tuddee pour jabar mais pour Mamadou Bal la. <laughs> ok kon dinaa takkaat am ci comme saa yu may takk bu bay ñaani. <laughs> Pape <laughs> am nga motif Pape vraiment tu ferais un très bon ma yow da nga waroon yow dama dem di la ñaanal ci jamono. <laughs> <laughs> merci Badara mais Pape merci beaucoup di di vraiment souhaiter bon chance suma grand frère aussi. Eh. et puis di nuyu ñoo xamante ni dañ ko bëgg lool koo xam ne suma xarit la bu ma jege lool muy mm-hmm. Lat Diop. Mm-hmm. mu bëgg ko trop di ko liggéeyal lu bari waaw suma xarit la eh. vraiment ak ak euh, léegi nii yaa ngi koy tudd muy Xaadim Gadiaga c'est mon cousin ah. Issa Niang di suma xarit ñu bëgg ko trop moom di liggéey ak moom mais Matar Diop moom yaakaar naa dafa jël studio bi. dëpp ko jëmale ko ci campagne bi quoi. moom it vraiment di rafetlu. lii quoi. mooy complément bi am ci biir koor gi. ingéniosité la. wax naa ko bi ñuy démarrer. mais ni ko wax bi ñuy gis nga président ça vous interpelle ni ñii. ñi ngi jouer role boo xamante ni télévision privée yi. Pape man mi fekke bis dëkk bi tàngee jër. Mm-hmm. gis nga nit bu génnewul li ci xolam. mën na ko def ci action. Mhm. bu xam nga li may wax. Mhm. on a contribué à ce que lu bari dal nit ñi wax seen xalaat. Mhm. ci côté yëpp donc li ngeen complété ci. campagne électorale bi. c'est vraiment beau e c'est spécial mais yaakaar naa dootul dakk léegi nag gars yi nañ leen jox droit d'auteur bi. waaw mais non <laughs> bi day ñëw. mais fayeku wuñ ci dara ñu nit. courant yeeg yëpp aussi. te ñu ci bàyyi xel. yow yow moo affaire. moom ma affaire ban. li wax droit nga jël benn rythme rek dugal si benn tur. justement je suis un artiste et je sais qu'une une idée se protège pas waaye maa fent Amadou Ba. kenn musul musa ko mënul ko waane ba man duma ko moom boo bëggee sama yóbbu ko sa sem. c'est du plagiat que tu as fait. tu as jàppale Mimi te Mimi Diomaye merci Malal Bouba yow tamit ñu ngi lay gërëm bu baax ban jàngat ci euh, jotaay bi ambiance décontractée bi mënul ñàkk pour savoir que président bi fi nar a nekk ak ku mu mënti doon voilà sénégalais la comme ñun. te nit la comme ñun voilà. merci waaw li ma ci jàng di di di remercier euh, président Amadou Ba di ko wax. comme ni ma ñaanal ñenn ñi rek bu dee looloo gën ci réew mi yàlla na ko yàlla may. amiin euh, di ko di ko di li ma li ma li ma gën a euh, neex mooy euh, cordialité bi. Mhm. xam Sénégal dafa am ay valeurs yoo xam ne daf fi nekk quoi. ñun ñëpp loolu dafa solo. moo tax ma laaj ko question wu nit wax la lii ma laaj ko lan nga ko wax yow en retour je pense que ça c'est une lu am importance la ci ci Sénégal donc yar bi dal bi c'est important. lii reg li may regretter rek et je pense que euh, moom am na ñaari facette mm-hmm. mooy genre bi mooy ñëw xam ne dañuy ne tekk kii mais ay bandi cerveau lañu ah nante booy ah, que je ah, waaw waaw mais dëgg la non bàyyi ñu eggali waaw waaw <laughs> mais bàyyi ñu ma eggali mais gars yi on dans un pays libre non dañuy wax loolu. kenn du ci tëj nit. bandi cerveau kenn du ci tëj nit. waa ne bandi cerveau la parce que xamul lu tax wax ko. sans trompette sans tambour ak trompette pour man président Macky Sall bi mu nekkee ci mandat yëpp saa yu xoolee rétroviseur mi ngi gis Amadou Ba te Amadou Ba waxul il a toujours pour man gëm naa ni il a toujours voulu être. euh, candidat, il a un euh, rêve d'être président, mais il l'a fait avec son propre style. Mm -hmm. Je pense que Moussoul Soré, qui est nous parlons de grec, nous ne pouvons pas nous mais encaisser lu bari, je pense que boobu mu am c'est important parce que on a entendu quand même. Sénégal, nous sommes dans un pays libre. Mais tu es libre à naa dem <laughs> waaw baax <laughs> d' accord waaw fi ma nekkoon baax non non. musul tontu quoi. non non non dama ne parce que loolu dafa am solo xam nga nit ku ne sa trait de caractère il faut ñu ñu wax ko. je pense que ça c' important ñu dañuy toog fii pendant des années di wax li ñu xalaat te yàlla tax mais je pense que loolu trait de caractère bu am solo la. mu moom laa lay wax ni bi mu positionné pour pour remplacer président Macky Sall yàgg na daf ko deful dafa waxul rek mais yéen ñi yëpp xam ngeen ni grand bi yàgg naa bëgg nekk président. ah waaw nee na laajuma dara mais jarul muy laaj déggu man la saa yu grand bi di dawal oto bi. bu xoolee retour bi dina gis Amadou ci ginnaaw. te du ah bon mu ne ko grand na nga def mais loolu la fi ah, mais noonu la ay yow politicien lañ. donc di ko di ko di ko di ko gërëm ko gërëm c'était très intéressant et li may regretter rek mooy mooy wax naa ko ñeneen ñi mooy yéen ñi nga xam ni ah, da ngeen bëgg a jiite suñu réew yi il faut ngeen comprendre que ni il faut nit ñi xam leen et si ki style am ak pour ne pas le président de la république. dafa choisir noppi parce que bu commencé woon wax lu yàgg je pense que moom xam na bu baax li may wax dafa choisir noppi parce que fii président bu fi nekk ki nekk ci ginnaaw bu defee trop de trop de bruit léegi mu jëlee ko fi. Mhm. donc c'est do c'est dommage que amuñu assez de temps des fois pour que ah sénégalais yi nga xam ne ñoo leen fal. Ah ñu ñu ñu gën leen xam. Mhm. conseil bi ma koy jox rek jox naa ko président Idrissa sec même sama jëmm ju xeebu ji jox ko euh, président xalifa Sall. ak docteur Cheikh Tidiane Dièye ak euh, Habib Sy ñëpp ñu fi jaar. Hmm. ne leen vraiment à partir de maintenant jël leen exemple ci lii xam ni nit ñi leen fal il faut ñu xam li ngeen bëgg ak li ngeen bañ ni ngeen mel parce que beaucoup de sénégalais tey tey lañ la découvrir. Hmm. et loolu du dëgg du yoon. yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg xaalisu contribuable bi ngeen téye ko ñu leen di fay suñu salaire da ngeen war a def lépp loolu mën pour que sénégalais bi nekk fongale mi sax xam yow yaay kan nan mel sa ton voix nan la am na ñu ko def am na lu mu leen jural. en termes de sympathie donc c'est c'est des conseils que je donne à tout à tout le monde politique là pour ñu comprendre que ni il faut communiquer avec les sénégalais pour que sénégalais yi xam leen. merci jërëjëf. merci Bouba ñu ngi lay gërëm bu baax. Euh, Mohamed Silla tey kontaan na Mor Huchard tey kontaan na Prési Cissé aussi tey kontaan na parce que militant <laughs> première heure la moom tamit ñu ngi koy béggee bu baax bàyyi ba ñu prési président Amadou Ba muy doog a commentaire ah. tu aimes beaucoup ton ton président ñu ngi lay gërëm bu baax Babacar Ndiak itam moom itam kontaan na merci Mamadou Ndiaye. merci beaucoup El Hadj merci euh, da nga prononcé waat tey non non. bu prononcé de bu changé de reste comme tey. bu dugg boobu doone. waaw commencé na change gis si lu yëre bi. Ah, mi lay yow mi ah. nga barki de dafay dugg si ma ne ko sañ sañ na mu ne ma saa waay laay diir mbagg. dégg man dafa bëgg def comme Amadou Ba. Euh, gars yi émission day jeex xanaa. ok yow tu tu seras convoqué demain. <laughs> Lamine Bokk merci beaucoup euh, sama sama sama sama ay grand yi nga xamante ni vraiment ni ngi jàpp ci liggéeyu Amadou Ba euh, moo tax il faut ñu dédicace leen muy euh, Moussa Sam Sam Daaf nekk fii ci Dalal Jàmm ak ñoom grand bul fàtte Dabay Baar jabaru Arma Ndiaye effectivement ah, Dabay Baar Prési Cissé. ko jaajëfal Cheikh Senghor aussi. bi nga xam ni moo jàpp ci digital bi ak ñaaxarañ loo. alors Cheikh Senghor il a dit. Mhm. Amadou Ba tendance numéro un sur toutes les plateformes digitales. effectivement qu'il est en train de surveiller depuis sànq. voilà ñu ngi ko doon ñu ko doon wax sànq bi. waaw nañ ko bu baax. Mhm. ak euh, voilà grand Elimane Lam. bul fàtte Moustapha Paye sama xarit ba ca Canada ak euh, Momar. dañoo bëgg ñu koy gërëm ko jaajëfal dañoo bëgg Amadou Ba. <laughs> Hmm. tey communiqué la ñu yor quand même. Johnson Mbengue. Tu es bon. Tu es bon. merci. Hey, grand Johnson merci. Jack bu RTS aussi bu ko fàttali. s'il te merci voilà voilà on finit jeex na jeex na jeex na jeex na. merci beaucoup El Hadj euh, Style mi jàpp mhm. ci affaire yi Bouba Ndour bëgg. Mhm. te mënu ci fexe ba am. du ci jot voilà. Mhm. donc Tipeee naa la jox numéro téléphone bi Bouba. Uh-huh, uh-huh. après nga kooku. merci beaucoup El Hadj à tout bu Pape Cheikh pas l'homme bu Abba. l'homme non dama am ay dédicaces man tamit. l'homme mi ngi États-Unis <laughs> merci allez Abdoulaye Der ñu ngi lay gërëm yow tamit bu baax defe naa di nga di di nga tënk ci jàngat balaa ngay tàggatoo ak téléspectateurs yi je vois ñoom Khadija Bousso ak Diena ba Seydou ba j'avais envie de dormir de dem xëdd mm-hmm. xëdd malheureusement pour vous yéen a ànd ak Amadou Ba Amadou Ba donc 24 heures sur 24 vous êtes obligé de travailler vous n'avez pas le ab la <laughs> Der ñu ngi lay gërëm bu baax. Euh, merci Pape Cheikh euh, ñuy gërëm téléspectateur ak sénégalais yi ànd ak ñun ba heure bi gis nañ ni taux d'audience bi yéegee tey particulièrement et je pense que euh, la ñu leb seen nelaw tey rëcc wuñ ko on a fait une très grande émission avec euh, candidat boo xam ni li nga wax découvrir nañ facette yu bëri ci moom. di ko remercier aussi ci journée marathon bi mu am fexe ba xajal ci trop plus de trois heures quand même de plateau de télé mu ñëw nangu ko def ak ñun ni mu ko waxee jóge ba Casamance demoon aussi dans la banlieue ñu ko ciy gërëm di ko ci sant di remercier ñëpp ñi nga xam ni ci staffam la ñu jàpp ba émission bi yemb ndax euh, bëri nañu ci jàpp ci ginnaaw euh, bëri woon na péripéties mais finalement ça s'est euh, réalisé ñu leen ciy gërëm di leen sant Pape comme dañoo bëgg xëddi sous la pression de Khadija ak euh, Dieynaba Seydou Ba ma delloo ma delloo la gërëm yeeg sant yi non non non vraiment merci beaucoup voilà Amadou euh, donc tout à l'heure on sera là à partir de vingt et une heures pile maanaam suba fii la ñuy ndogoo donc vingt et une heures la ñuy commencé émission bi puisque minuit bu jotee rek dañuy arrêté lépp luy campagne ak propagande en première partie d'émission vers vingt et une heures dinañu recevoir itam beneen candidat donc demain on aura deux candidats ci quartier général bi Aliou Mamadou Dia bu PUR mooy njëkk a ñëw et puis en deuxième partie de soirée ñu dalal ki nga xam ni mooy euh, président Malick Gakou voilà donc demain on va finaliser ak euh, euh, campagne bi am na ay questions yu am solo yoo xamante ni dinañ ko laaj candidat yooyu la ci télévision Futur Média lay Makhtar yow la ñuy bàyyi nga tëj ndax yaa ibi sànq ñu ngi lay gërëm. gërëm tamit eh, ñi nga àndal toogaay bi yàgg na waaye sikar si neex na laay maxtaar j'aimerais juste eh, nuyu eh, bi gi ak waa influence influence plus voilà influence plus ñu ngi leen di ñu ngi leen di gërëm bu baax c'est vrai que bijou tàgguwul <laughs> bijou baal ma <laughs> ñu ngi lay gërëm bijou waaw eh Magui sama Magui la Magui bu président Amadou Ba tamit ñu ngi koy gërëm bu baax non on va tous quitter en même temps le plateau ah incha allah je merci beaucoup Camou protocole euh, bisu ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay gërëm Pape parce que li ñuy wax dañu bëgg président Amadou Ba dégg ko. <laughs> sama yaay nee na ñu jox président mu lekk ndax comme ndogwul foog mu xët. <laughs> jox naa ko tàndarma. <laughs> de <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax ci seetaan bi merci beaucoup tey Pape Cheikh ñëpp communiqué nañu yor comme ni nga ko waxee docteur Mamadou Moustapha Kane Abdoulaye Dieye Aram Michou Ibou Kara euh, Sagoro Serigne Bassirou Mbacké ñëpp a ngi yónnee nuyoo man nag dommage que waxuñu ci petite enfance ndax man xale yee ma ñor mais xam naa ni euh, am ngeen projet pour xale yi ndax dëkk mënuñu ko tabax te tabaxuñu leen ci <laughs> ay waay plateau bi ci condition yi éducation nutrition santé foog ñu assurer assuré eh, man xaw ma kan moo nar a nekk président mais dinaa bokk ci ñuy assuré ko que petite enfance bi loolu dinañ leen ko jagleel ndax euh, noonu rek la ñu mën a poser des bases d'une vrai d'un vrai développement ci ci dëkk bi. merci beaucoup équipe yi nga xam ne ñoom lay àndal chaque jour Aramichou pour euh, perruque bi Adja Mbène make-up bijouterie la solution pour les bijoux Baye Modou tenue bi et euh, ma assiste Marianne Mendy pour le tissu ñu dem xëddi parce que vraiment. et bu fàtte Adama Bey Adama Bey Adama Bey ñëpp ñëpp ñi ñi yónnee nuyoo ñëpp gis nañ seen. Ah. ñu tam yéen ñëpp gis nañ président. Mor Huchard bu ko fàtte Mor Huchard fàttewuñ la yoon. Lamine Camara moom bu ko fàtte ah Lamine Camara sama bu ko fàtte waaw moom ñoom kam ñëpp <laughs> ko fàtte Mohamed ak kan. moo Ndiaye Rahma Modou Ndiaye Rahma koo bëgg mu doole ko waay. mu ngoog defe naa jeex na li ci des dama koy leb ba ca kanam. merci à tous on vous souhaite une très bonne journée ñu dellu si waat merci encore au président euh, Amadou Ba Laye Makhtar yow lañuy joxaat euh, kàddu gi. nga tëj ñu jàng du ñu way ndax waxtu wi jot na. Uh-huh. toogaay bi yàgg na. yéen a yaru euh, lenn rek laa laa yéen a yaru laa buuba Serigne Cheikh laay. Laye yàlla dafa dogal. may denc doomu. bi mu koy tàllal loxo ni nga fi laa jëm si ni ma boo demee. Mm-hmm. nag ma nuyul président Amadou Ba. Mm-hmm. kon nuyoo moom ngi noonu. Mm-hmm. xam nga ko xam na la yal na yàlla barkeel. beneen bi ci des. amiin Serigne Ablaye Thiaw Laye. Laye Makhtar. mu Serigne Mor. mi nga xamante ne sax xarit la woon. yàlla sànq ci ngoon rek ñoo nekk ca ërumu maam Seydi. macha allah jàng fa 313 kamil. macha allah pour président Amadou Ba. jagleel la ko. Oh. ngir yàlla defal la ndam ci li ngay wut. Magui Chanel sax génne na ay nag. Eh, lii nga dëgmal yàlla defal la ci ndam. ndax eh, ñun ñoom ku nu àndal ñun yow la. yaay te loolu la sëñ Ablaye def si ngoon ànd ak ñun kon nag sa doom jooj ñu ngi lay wax na ko bàyyi xel beneen bi ci des ñu ngi ñaan yàlla may la li ngay wut waaye bu la ko mayee na nga bàyyi xel takkat yonent yi yàlla na la ko yàlla defal barki bàyyi naa jërëjëf bul fàtte Babacar voilà Babacar ñu ngi koy nuyu Babacar Fall mi Babacar Fall bi nii tey moom rek laay merci et à tout à l'heure waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen def seetu TFM